jërëjëf sunu mbokku téléspectateur yi ñu santate yàlla ñu julliwaat ci yonent bi ñu am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci Bantamba TV jàkkaarloo ak yéen ci pencum làmb wara a waxtaane lépp loo xamante ni jëm na ci làmb xam naa danoo nekk ci nawet sax bu jëkkoon réew mi bu nawet ñëwee gouverneur day tere ku tëgg sabar day tere xumb xumb day tere lépp booba réew mi nag booba ah ñii nekkoon ay gouverneur ak ministre yooyu dañoo amoon kilifteef bu ñu doon wane mais léegi loolu amatul waaw léegi bu nawet jotee dañuy bàyyi nit ñi sabaru danay bàyyi nit ñi def lu leen neex dëgg la nag ci liberté ak démocratie la bokk waaye nag fax fonk sa cosaan daf ciy bokk te yàqu ci dara te nit war na di fonk cosaanam fu mu toll ndaxte fonk sa cosaan dina tax nga xam foo jëm dina tax nga xam yow yaay kan mbokk yi ñu ngi nuyu doomu Sénégal yëpp. ak fu doomu Sénégal mën a ne ñu ngi leen di nuyu ah ñi nekk ci tolof tolof ñu nuyu leen ñu ñaanal leen yàlla na tolof tolof yooyu deñ ñu ñaan ci réew mi am jàmm doomu Sénégal yi nekk bitim réew ñu am jàmm mbokk yi nañ defaraat xol yi ñu doon benn ñu bëggante ñu jàppante ñu jàpp sunum réew loolu day tax réew mi di mën di dem te fi ñu toll naqar bi benn la naqar baa ngi jëm ci xale yi nga xamante ne nii dañu mel ni ñu nu xabtal yu dugg ci gaal yi yenn saay sa yaay lay jox paas yenn saay sa mag yenn saay sa mbokk nga dugg ci gaal yi ñu mat téeméer du nu yeewu benn bista te néewunu am na fanweer am na téeméer bu lab am na nàngam bu lab na nàngam bu lab te loolu day gën di wàññi ci nu ndaw réew tey jii boo demee ca Fass buuy tiis ga ma nga fa naqar ga ma nga fa jaaxle ga ma nga fa te du faas booy dong fi mu am ci réew mi bari na bari na ñu ngi leen di massawu yéen waajur yi yéen ñi nga xam ni seeni doom ñoo ci loro waaye ngal la ko mën a téye sa doom wutal ko passeport seet nu muy def ba am visa war mu am beneen yoon bu muy jaar bu jëkkoon gars yi daawuñu dem ci gaal yi aventure lañ doon def dañ daan jóge Ndakaaru dugg express wàcc malik dugg Côte d'Ivoire dugg Togo wala Burkina Faso jàll bu ñu duggee Algérie wala ñu dugg Libye ñu ngi jëm Italie yooyu yëpp dañ ko doon dox par étape la woon nag jaar nañ la daan nañ def un mais léegi da ngay dugg gaal bëgg dans dix jours quinze jours nga yegg Barsaq wala doo yegg nga yegg Barsaq doo yegg Barsaq boo moytuwul doo yegg Barsaq Barsaq nga yegg te loolu dafa metti non seulement dafa metti ci njaboot gi mais dafa metti ci réew mi on a besoin de ces jeunes moo tax nguur gi jóg leen ngeen am ngeen liggéey bu mat sëkk ca dëgg-dëgg bu dee liggéey dong ngeen bëgg am ngeen liggéey seen jeunesse sunu jeunesse bii di dem di lab ci géej gi ana yan matukaay lañ ci war a jël ba loolu deñ xale yaa ngi dee te xale mooy avenir réew yéen ñi dénk kaaraange réew mi yéen ñi dénk géej gi yéen ñi ñu dénk ngeen war nu aar yéen yéen nu war a aar jàppale leen nu ngeen aar nu aar sunu njaboot yi xale yi li ciy dee bari na xale yi dëgg la réew mi neexul waaye jarul bakkan réew mi neexul waaye jarul bakkan dund bu parce que ku dund rek force ak muur te loolu woy nan leen woykat yi woy nan ko wax waaraatekat yi wax nan ko yàlla gémmiñ gu mu xar dina am lu mu ci dugal te yàkkamti baaxul da ngay am fukki at ak juróom-ñett mais yow tollu woo ci am bay ñàkk mais ñu yenn la kër saawun xëyee naan la amoo jom war ngaa góor sa moroom yaa ngi nii ci géej gi leen jaar sa moroom yaa ngi nii diw de yegg na diw de ma nga Belgique diw de yi nga dëkk yooyu ngeen di dem yàlla ko yont bi laa leen di waatal dans quinze jours quinze quinze ans sunu réew moo koy dàq li yu am réew yëpp am na fi lii tax am réew war a yokk jëm ci kaw jëm ci kanam am na fi bàyyi leen di lang ci gaal yi di dem bàyyi leen ko jaru ko lan dafay wuti loo jox sa yaay añ reer ndékki mais boo toogee ci réew mi boo góorgóorloo am ko yenn saa yi ngeen mat fukk ku nekk teg cinq cent mille jël leen fukk yooyu ku ne cinq cent mille ngeen def ko société GIE léegi ngeen am dara léegi rek fukk ngeen ku ne am nga 500000 nar nga koo def ci biir gaal dajaloo leen ku nekk na indi 500000 fukk la 5 millions lay doon léegi ngeen ubbi seen GIE léegi ngeen am lu ngeen di jaay te li ngeen di jaay ci réew mi ngeen koy jënde ci réew mi ngeen koy jaayee wala ngeen ubbi entreprise lépp a ngi fi xale yi góorgóorlu leen kilifa yi yéen yi yor réew mi nguur gi gouvernement bi le président de la république dimbali leen nu ci gone yi xale yi dee bari nañu. te loolu day yàq am réew xale yi dañ leen di soxla boo xoolee li faatu ëpp na junni boobu gars yi dañ leen dul wax rek am na ñoo xam ne sax dun leen yëg am na ñu am na ñoo xam ne sax duñ leen yëg ah ñu ngi massawu ñëpp nag di massawu réew mi di ñaan sunu borom lii yàlla na fi jóg yàlla na fi jóg danoo mel na ñu nu xattal sunu doom yi ñuy xaru yenn saa yi foofu nga koy teg mais boo leen gisee dan naan réew mi dafa neexul te ki nu dénk réew mi pour mu réew mi neex mooy le président de la république Macky Sall ñu lay ñaan nga gën cee jàpp sa ministre de la jeunesse mu xam ne ay ndaw la jiite ministre de la jeunesse la ministre des mu xam loolu ay ndaw la jiite ah, ku ci nekk wàll wa nga nekk nga jàpp ci ndax réew mi neex loolu mooy tax réew mi neex boo gisee opposant woote xale yëpp dem fa amuñu yaakaar loo leen wax ñu gëm ko loo leen wax ñu gëm ko parce que gisuñu li ngay wax ci keneen keneen waxu ko loolu dong la du leneen xale yi jaaxle nañu xamuñu fu nu jëm ku leen woo ci loo leen woo dañ lay wi ndegem kii dem di dugg ci géej te xam ne ni mën naa mu dee kooku boo ko wooyee ci manifestation du dem day dem nanu xoolaat suñu réew vraiment metti na réew mi metti na li fi am metti na xale yi sonn nanu ba tax ñuy xaru di dugg ci gaal yi di dem seen waajur yi di ñàkk encore une fois waajur yi massa leen massa leen coono ñu ngi leen di jaale ñu ngi jaale réew mi yëpp nag ñëpp ñëpp ñu ngi leen di jaale di ñaan yàlla yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm te ngeen patienté pétrole baa ngi ñëw gaz baa ngi ñëw moo defar Qatar moo defar réew yi ngeen di dégg yëpp moo ko defar te xanaa lu tubaab bi lekk lekk lekk du lekk lépp xanaa dina am lu mu nu ci bàyyil ndege mi tubaab bi moom mi ngi taxaw rek sonal nu fattunu fattunu lool fattunu lool mbokk yi ñu gërëm ñëpp ñu nuyu nag ñu ñëw nag ñun ci li nga xamante ni moo nu fi tax a toog ah, làmb waaye loolu it da cee bokk il faut ñuy waxtaan ak yéen ci réew mi ndaxte ñu ne danoo bokk ci réew mi juddoo fi amul dara li na am yëpp fii la ci Sénégal ñu nekk bitim réew seen xel yëpp fii la de nekkul feneen koo ci gis nu muy def ba defar loo xamante ne nii ah, dina faj gàcce sama yaay laa bëgg laa bëgg teral du ci làmb di dong de. damaa bëgg yóbbu sama yaay màkk damaa yóbbu bëgg yóbbu sama papa màkk nga yaakaar ni mbër doo nga koy wax mbër yi doon jeex àdduna bi ay mbëri keese la te réew mi adduna bi woykat bi woy na ko da ngay léewtoo ba tas léewtoo bi metti na gaa yi jàpp leen ci ndax xale yi am ndam mooy tax réew di yokk di jëm ci kanam ñi ngi sant yàlla bu baax tey nag ñu invité champion ñu invité koo xamee ni li ñuy wax rek moom moom moom boo demee ab avance ko moo ko ngéntee moom dafa fekk ngemb li ci biir kër li magam daana wax man man xaalisu làmb la na ngénte fëgg dënn bi wane boppam ah doon champion bu mag na seen baay meloon seen baay dem na championnat d'Afrique dem na jeux olympiques dem na fu ne raaye gu am ni na ko nguur gi defalu ko dara dara te icône la da daan da nit jeu olympique wala championnat d'Afrique kooku ni ko ñaata lan la fay moom bu ñemewul wax ñaata lan ko fay te fekk muy bëreel ay millions lan ko fay yoo xam ne dafay bari kooku bu demee mën naa jënd kër mën na jënd lépp mu yenu la ba ci kaw dóor ci suuf bu ñëwee paas bu ko jëlee aéroport du ko am nan de réew mii nan ci wax a ah, nan ci waxul du baax de nan ci wax li nu war a wax bari na lool lool lool loolu loolu loolu baayam def na ko magam ñëw fi doon champion di bëre di daan nekk roi des arènes te xale bu ndaw tey jii mu topp ci tànk yi tey noonu kooku la ñu invité mu di Sa Thiès papaam tudde ko kóllëreem Sa Thiès ah duñ def lu dul ñu xool ko ah ñu xool sunu réalisateur won nan la doon duggee ci biir làmb ñu xool ko dellu waat nag ci événement am yi mu bëree ak li nekk ci kanamam tey ñuy masawu nag sunu xarit bu doo Fadam Fadam waroon naa yegg si waaye yoon yee xat ñu koy ñaanal fadam ah ñu bàyyi noonu ndaxte port bi fii ñu toll ni camion yaa ngi taxaw ah, ñu ñu xool ko tëddee bis kooku mooy Sathiès moom invité tey war a waxtaan ak moom ci carrière war a waxtaan ak moom ci li ak li ci nekk ci sunu kanam lii mi ngi ko tuuse contre rëg-rëg am laaj bu Babacar laaj léegi bii tuus bi ci ci rentrée bu njëkk bi la wala deuxième rentrée bi. moom mu tuusee génn ma de. non yow da ngaa tuus ba pare génn làmb ji. da avant ngay tuus génn. ba rëg-rëg di tuus laa génn làmb ji. bi rëg-rëg di tuus. waaw lu tax nga génn làmb dañ maa yónni woon moo tax. yow la ñu yónni yow ngay bëri ku lay yónni. waaw man la am na ba fan nga dem. non génn woon stade bi nag yàlla xam na ko. yaa woon ci biir stade bi. waaw maa biir stade lan la woon tegtal la. waa dañu ko tegtal rek. tegtal bi jàpp na de. <laughs> waaw alhamdulilah. depuis boobu ba léegi dégguñu la ñu bàyyi la nga nuyu. waaw ñu ngi dellu di santaat yàlla baax di musu ci seytaane sax. julli ci yonent bi si sant suñu ñaari waajur di euh, jiite ci kàddu bi si ñi génn àdduna ñëpp yàlla leen yàlla yërëm xaarale àjjana ñi tëdd hôpital yàlla yëkkati leen ñu caab di ñaan yàlla jàmm ci réew mi yàlla tappe xol ñi ñëpp doon benn képp ko xamante ni yaa ngi sa aajo rek yàlla na méngoog la neex yàlla te lu gën ci yow yàlla na ko yàlla suñu borom may desi di ñaanal suma waajur bu góor ñu El Hadj Mamadou Sakho mm-hmm. di ko ñaanal mboolem jullit ko fekk foofu waaw bëri nañ ci jàmm nag. waaw ah. nekkat di faju aussi. di faju waaw dañ après combat bi doon faju si loo doon faju samay pol. fan la gaañoo yow. ci làmb ji wala avant waaw ci entraînement la gaañoo avant ngay bëre. waaw. Euh, euh, Mamadou Mamadou manqué woon. si. boo musaan a bëre ba ñëw parce que dégg naa yow nga mais copain am nga woon quoi. waaw sama xarit la woon si. waaw maa ko doon sañ a wax lu ko kenn du wax. lu ko kenn daawul. si waaw lu mu am lu ko métti. dina woo ñëpp waaye man moom man la ci gën a sonal. ndax même bu coow lu nekkul ci man sa man la koy sëf. yow la koy ndax su ma waxee dara ma yow sama doom da nga maa moo tax. ñëpp nag maa leen bokk jur mais yow da nga ma comprendre moo tax. Hmm. baat boobu tellement ko def ma doon marqué ci moom. waaw parce que dama ko neex lay wax papa ji moom papa ji ay copain la. waaye moroom lañu parce que mooy fàttali ko rek dañu combat bi mujjee fekkee ci dundam. Uh-huh. mii maag Moussa Ndoye Moussa Ndoye uh, parce que maa ngi xëy uh, ci suba gi dem uh-huh. këram fekk mi ngi tëdd boo mënu dara ah man mii di bëri sax xam naa ni uh, yàlla rek fi des boo mënu dara ba ma ñëwee ñi ngi toog waxtaan maa ngi koy tooñ naa ko baa lekk nga mu wax na parce que boobu boobu fu nank rek la mën a wax te nga war a dem bëri ji yaa ngi koy ci bi ci jour bi ma mën ko nag ñaanal ma ma dataan tuddee la ndam mi ci la xel bëti toog di jooy ci laa dem jël ndox jox ma naan ma ne ko toogal ma xaar ma tuuti mu jékki-jékki ba may dem mu yuux mais yuuxam boobu dama ko dégg. ah mu ne wallaay comme sedda nga sama xol di nga am ndam lu sedd guy. te dafa am benn baat bu ma musa wax waxati ma ko. Mhm. dafa da wax na ma loo yuut ci sama ginnaaw di nga am li gën sax li ma la yéene ci sama kanam. Mhm. loolu nag laa gëm ni moom lay dund. waay mm. yaakaar naa ne. loolu c'est émouvant loolu doom ak baay doon ay xarit seq loolu wax nan la am am na ko la mës a wax ndax am nga loo jël sa papa ci bëre mës nan la kaa wax ñun tey fit la ñuy wax man noo ko daan tooñ sax na ko ay lonkal nga mënoon da ngaa ëppoon doole rek maanaam waa jërëjëf <laughs> waroon nga cee toll ba xam ko bu ma tolloon nga xam lépp dëgg di fàttali ko aussi ba muy bëri Siteu xamul sax Siteu bu baax. mu ne dégg naa dafa njool carrément wala li ñuy def. waaw ci laa jàpp tànk bi nga xamante daa am genou parce que moo xam ne carrière am genou moo gën a sonn. mooy sonn mooy ci laa jàpp genou boobu rek mu yuuxu. mu yuuxu yuuxu su yaa kër yëpp ñëw yaakaar ni dara la. ba ñuy gis ma maa ngi moom ñuy bëri foofu. ñoom ami sama mag yëpp ñoom jàpp ma dóor ma génnal fii bàyyi paa bi. waay waay man ko bu ëllëgee bu may bëree te nga naan nag may woon dama lay rey <laughs> <laughs> bàyyi naa tutrak <laughs> ndeysaan yu bëree bëri daal waaw dëgg yàlla amoon na doole c'est vrai sutoon na leen mais du ñëpp du ñëpp la sutoon ah mu sutul woon Moussa Diame mais sino Moussa Diame la ci sutul woon bu baax ah ah Souleymane Diaw suteewu ko woon noonu mais daf leen ëppoon doole nag et puis moom doole naturel la yoroon mm. waaw doole naturel c'est vrai que nag dafa mënoon kot ak kal waaw tànk bi la lay topp <laughs> daa daaneel daaneel la et puis c'était un grand champion dem sur le plan international mm-hmm. def ci ay jaloore mais làmb bari coow tamit mm-hmm. surtout yéen côté Guédiawaye da ngeen a bari wax laal mën a wax lu tax <laughs> chaque jour yéen a ngi ci réseaux sociaux lan la réseaux sociaux yi danoo dëkk Guédiawaye wala lan la ku yeewu rek yaa ngi jubal Guédiawaye waaw Bécaye loolu moom dama ci euh, jégalu ñëpp aussi di jiit di jégalu sax ci euh, commencement bi maa ngi nuyu yéen fi toog ñëpp. ñi présenté yaa ma ko bu leen nuyoo bu ba <laughs> présenté ñii ñëw ci. waaw xam nga fu jàmm xaj. Uh-huh. bis dina mës a ñëw coow dina fa am. Uh-huh. waaye damay jàpp ne bu coow amee rek lépp buñ ci demee xel ak dal mun nañoo régler suñu problème te kenn du yëg. Uh-huh. diggante ñaari nit la ñeneen wax nañ. mais bu doon sama sago. et du mhm. diggante ñaari nit de téeméeri nit la bu kii ayee tey bu gën a am suba këla jël géejaway laa gis sa fi mel ne réseaux sociaux yi géejaway la nu taamu tey ña nga ca liiru jaan bu jógee ci liiru jaan ña nga ca guy gi ak booy bi daanu dimanche passé nu mu tuddati. déedéet. ah bu Siteu ah bu ñu jógee ci bu Siteu ñu dem ci Lamine Golo bu jóge jógee foofu ñu demaat ci la demaat ci Lac de Guiers gis naa ko mu naan Siteu ñoo yàq làmb dem ci fils de Balla dem ci fils de Balla mm-hmm. mais lan la yéen pourquoi ngeen bëgg yooyu werante boobu lan la non ñun bëgguñu ko parce que ñun chaque fois bu coow amee ñun géejawaay lépp li ñu jël ci kursu ci suñu làmb ndaara lay doon mm-hmm. loolu moom bu la neex nga am seetlu bi bu la neexee nga am lu parce que bokk nu ci njëkk a taxawal cent pour cent pour géejawaay waaw xoolal jamono jooju ñi fa am nombre de victoire bu dee bu bu dee bu bu dee la ma xëy ma ko benn defar la ñu mhm. kon yaakaar naa ñun jàmm mooñ jik waaye nag loolu yëpp dañ koy jël rek sante ko yàlla man dama koy jotee ko ci loxo yàlla mais kantaan ak yenn jotaay yi xamante ni mi ngi am suñu biir mhm. man ñaan laa am moom laa chaque jour ñaan laa am ñu bàyyi lépp sedd mag ñi nga xamante ni ñoo fa nekk ñu woo bu xale yi ñu toog ñu waxtaan ak ñoom su ko defee ñu mën a seeti leneen ñu bàyyi coow li parce que coow li kenn comprendre ndax seytaane fu mu xaju lay dugg si. waaw waa man man dinaa leen dinaa leen yedd man li may yeddee mooy. Mhm. booy yi nga xam ne bi ñu duggee ci làmb yàggut. amagun si dara defaguñu fi dara tojuñu fenn ñu bàyyi réseaux sociaux yi dem ci bëri ji gis nga Balla Gaye ak loo ko mën a sëkk sëkk sëkk Balla Gaye xamul woon réseaux sociaux xamul woon dara. télé la xamoon bu fa demee signature la ko fa yóbbu wala Bécaye Mbaye gàddu caméra am ñëw fekku këram ñu waxtaan waxtaanu làmb wax ja jeex mais géejëwee laa gis booy bu ci daan ñaari combat yaakaar ne mooy roi de arènes topp réseaux sociaux ku ñëw mu jël nga wax a wax ba xasaale keneen et puis ay problème mu ngénte ñëw na sama ngénte ñëwul sama ngénte mais nit ñi àndoonu pour diggante ci ngénte yi maanaam naa ay xarit intime du ma dem seen ngénte peut-être sama ngénte peut-être ma xewle du leen ko yëgal yooyu du dara ay détails la mais bi ngeen ñëwee nag dama leen koy wax da ngeen bëgg a détail détail yu réseaux sociaux bàyyi leen ko te concentré wu booy yi nga xam ne ñoo war a bëri ñu dem bëri ji war a Balla Gaye icône la Guédiawaye lam fa def kenn defu ko fa ndax moom rek moo fay roi des arènes loolu moom faral lu ma ko de man aw maa ko benn affaire yéen xam ngeen ko waaye damay wax dëgg bi dëgg bi mooy loolu. waaw na ngeen na ngeen dem ngeen entraîné jëf def li def li mu fi def ku ko fi def yombul de li mu fi def ci làmb ba Sénégal daj ku ko fi def yombul. ñi mu daan kenn mun a fexe ba daanandoo leen champion la ñi ko daan ñëpp ay roi des arènes ku nekk roi des arènes daanoo ko kon xam ngeen ni ndaanaan la ah na ma yàlla baal peut-être Issa yi daan na ko ca commencement ba ah mais ndaanaan la dee leen dem ci moom di gëstu di ko jël ci moom moo gën yaakaar naa loolu mu gën tey ñu ngi toog ak Baye la ñëw na gëj na fi torop moom it bu ko ci yàlla xiiree ah mu takk ay dàllam dugg ci entraînement yi ah Babacar ah ñu ngi ànd ak moom comme d'habitude lépp lu jëm ci réglement dinañ ci ñëw am na làmb waroon a am tëngéej demee amul loola li tax amul loola tam dinañ ci ñëw ñu teg lépp ci yoon ñu teg ko ci yoon parce que làmb tam ko tegul ci yoon du baax Abou Nour dina ñëw indi nu bilan wu li traditionnel indi nu li ci am yëpp ak nag le professeur Tidiane Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane ah mi ngi fii ñu waxtaan ak Sa Thiès ci lépp loo xamante ni dina tax ñu gën a xam tey ji kan mooy Sa Thiès Abou Nour maa ngi lay fay aaj Bécaye di nga xamal nu tuuti ci Sa ci Sa Thiès waaw ñoom maa lay fay fay di la ziar di jaar mu bokk plateau bi di nuyu le champion waaye di njëkkee di jaale sunu xam nga batteur yooyu dëggkat yooyu Babou Faye waaw dégg na ak ak Maodo Faye seen yaay ak wàññeeku démb moo wàññeeku ñoom ñaar ñoo bokk benn ñoom fu nekkoon Fatick non non ci kër baa bu Mbour Mbour mbuur fa la maire bi wàññeeku ndeysaan ñu yóbbu ko Touba tey <coughs> yàlla na suufu Touba oyof ci kawam ñoom boo xoolee maire boobu ak yaayu Babou Ngom. waaw ay mag rek lañ. waaw ñoo bokk ndey ak baay donc moo gaañ ñu koy jaale. donc di ko ñaanal yàlla na suufu Touba si sedd ci kawam. amiin di am mbégte di recevoir ku mel ni Sathiès euh, xam nga di wax ñu lay déglu yombul surtout sportif. Hmm. parce que parfois la mais moom communication moom ak gride. Hmm. dama leen naw seen communication bu baax. dina nuy wax lu tegu ci yoon bokk nañ si seen génération les meilleurs communicants si lañ bokk. Mhm. moo Gris 2. moo démb rek am am na sorti bu Gris def mais dama ko déglu trois quatre fois wax wax ji moo tegu ci yoon moom mi rarement lay déraillé. Mhm. moom mi ak foo ko fekk nag fu mu mën a. non non man ko dégg sax rarement loolu tamit. na ci gën a góorgóorlu parce que un champion c'est pas seulement ci biir arène. déedéet ngeen bu rek arène déedéet mais en dehors loolu mooy champion. boo gisee champion yu ñi fi nekk footballeur yi sax ñi nga xam ne football pare nekk te ay ay icône dafa am nu ñu mel am nañu nu mel en dehors rek. Mhm. en dehors de des terrains te loolu Sadio am na ko maa ngi koy ñaanal xaw ma ñan ñoo ko war wàllu communication wala boog c'est un don. c'est une des yar la mais daal yar bi. des fois yar la mais daal loolu moom na ah. na na si gën a kii. Mhm. kontaan ñu baax xam nga nag moom 2009 la la la la dugg ci làmb ji. Mhm. donc boo xoolee quinze victoires la def ak ak 2 défaites. 17 combats. 2009 la la ñëw ba 2023 14 ans donc 17 combats en 14 ans. donc moom am na plus de un combat un 1,2 combat par par par an li ko waral mooy trois saisons ba blanche la la def si si si carrière lu ko waral loolu. bi mu bi mu bëree si bi Covid bi la. bi mu bëree si si Boy Niang waaw ñaari année yooyu bëriwul. bëriwul après bëri ak ak defaat benn saison blanche soog a bëri ak ki nga xam ne moom mooy Reug Reug. waaw mais saison blanche après Moussa Covid bi la waaw waaw boobu moom waaw. Covid bi la waaw boobu moom waaw Covid bi la woon. Uh-huh. mais yee xam naa peut moo jëloon recul boppam. Uh-huh. après effectivement c' est ça comprend. Uh-huh. bu bu mu jëlee woon si kii mu jël recul. am lu mu jàngat ak yooyu ñu ne waaye moom tam a dal 17 adversaires différents mooy amagul revanche bëreegul revanche. bëreegul revanche. déedéet moom bëreegul revanche 17 yi mu bëree ñëpp amul kenn ku mu bëree bëreewaat ak moom. Mhm. donc moom it si àll bi la si phase àll la nekk. waaw ça veut dire que si yoo yoo xam ne ñoom ñoo nekk si te boo xoolee tam ay ay début 3 2009 boobu mu de mu démarré 3 combats la la moo leen gagné. Mhm. Boy Diouf Bombardier Junior ak ki nga xam ne moom mooy ñoom la gagné en en 2009. boo xoolee euh, neuf combats neuf victoires xam moom euh, naka lañ koy tuddee euh, le dixième dixième boobu la la daanoo contre contre Malick Niang. Malick Niang mais neuf victoires la amul neuf combats neuf victoires. Mm-hmm. il a fait plus que il a fait mieux que Balla Gaye six mm-hmm. combats la amoon septième victoire ba la la daan contre Issa Pouye Issa waaw mais moom il a fait mieux il a fait mieux que Eumeu Sène premier combat am la daanu Eumeu Sène il a fait mieux que Bombardier cinquième combat am la daanu ainsi de mm-hmm. moom di dixième dixième boobu am na dix neuf victoire doo ko daan dixième ba mu soog a daan boo xoolee le 3-0 la le hat-trick ki laa ki laa infligé mhm. naa Babacar mu koy mu ngi ko doon sànq. Mhm. ne ko réer la la la njëkkee teg si Siteu teg si mhm. Nees. donc ne xam naa ne solution solution Sa Thiès daal waa Nees waa Lansar amaguñ ko Maxime Bergan ak waa <laughs> ñoom Tidiane Faye amaguñ ko xaw ma kan mooy kan fan lay jógee waaye waaye amaguñ ko. niveau de combat tam de combat boo boo gisee ma koy woowee le feu follet. de de de l'arène di ko comparé ak Henri Camara. doon def léeg-léeg da daan daw léeg-léeg ba bëgg na bal bi moom Ani Kamara. moom genre boobu la dafa gaaw. boo xoolee moom il une moyen de une minute seize secondes par comme en na contre Jordan une minute euh, trente six la seconde la Lacrosse une minute cinquante une seconde Siteu une minute vingt une seconde boo ko boolee trois yi def di diviser ko par trois mu jox la une minute seize secondes mooy ay combat am duy fanatique. du yàgg. excepté contre Zarco un peu contre euh, kii. Euh, Boy Ngaay un peu contre Rubis Sasako contre Rubis sax boo xoolee ni mu waroon kiiwee parce que dafa ñëw rek engagé rek rek. waaw bon loolu dinañ nañ si ñëw peut être. mais yooyu ci chute bu njëkk bi la jeexee. waaw waaw waaw voilà donc boo xoolee moom ay combat am donc euh, boo xoolee cinq combats man yi ma jàpp ne mooy combat yi gën a am solo moom nag mën na mën na bañ a d' accord ci loolu booy booy booy Ngaay di ko waral mooy. derbi woon. booy gaay combat bu booy gaay ci bëre moom mais am na ci chance ah chance bu bëri am na ko bu métti la woon sax combat bu métti la woon booy gaay tamit kenn mënu kenn mënu non non booba boo yéegaan que ñoom booy gaay booy gaay da ngay sëpp ñoom fi ñu entraîné da ngay tiim kër école ah? Ah? dëkk comme fii nii fii may kër gi waaw bi ah, kër gi bi ngeen société bi ngeen jàkkaarloo mooy kii bi te loolu fa ngeen di entraîné waaw dan daan entraîné sax matinal bi. ah da nga doon toog nii di sëpp. mais mais moom su nekk écurie Double Less après. après après après Dakar la nekkoon bi muy bëree moom ndakaar la nekk la dem Dakar ah, Double Less waaw donc booy ngaay laa jàpp euh, bi si topp mooy nekkureel c'était une confirmation et puis combat mooy li nga wax combat bu métti la woon. et puis ah non ne ko réel combat euh, li tax ne ko réel bokkul ci grand champion yi damay tomba ci yàgg mu jaaxal ma mbër la Tidiane dina ci ñëw. waaw ma def Zarko Zarko ba li la ca laxasoo war a tax. fekk le 21 mars 2010 Balla Gaye 2 daanoon Modou Lo hmm. Balla Gaye indi Sa Thiès Zarko Modou Lo indi ko. ñoom ñaar ñoo naroon a yàq mu am lu ci waaw mu am lu ci laxas man pour man <laughs> après Jordan bi lu tax mooy premier défaite am contre contre contre Malick ñaar la jël Jordan donc waroon na am amuloon droit à l'erreur parce que ñaari champion duy faral di teg lay défaite donc il fallait mu mu génn si bi bi si des mooy. naturellement rëg-rëg. rëg-rëg man maa njëkk a daan rëg-rëg. Ah. après 16 combats. quand même euh, premier défaite mu infligé ko à Reug Reug ça je pense que c'était pas évident donc les combats choc bon wax nañ ko Malick Niang Boy Niang donc moom presque ay combat dafay faral di dafay faral di metti. dinañ ñëwaat loolu à peu près ah mooy à boo boo boo dégloo. ak wulli bokk na ci combat yi gën a metti nag. bi bu njëkk ba waaw wulli léeg-léeg mu koy waaw <laughs> waaw. boo déggee li li Abou mhm. sa carrière. Mhm. ni ma ko présenté. waaw naaj sax. xanaa di xeeb euh, victoire rek comme nu ko tiijaan di jàngale. <laughs> ah sa première défaite caaxaloon na la wala. waaw première défaite moom. lu la daane lool confiance bu ëpp. waaw confiance bu ëpp nag wax bu ma la rek ma leen dem leen toog leen seetaan ak moom. mais après nag ci nga mën a xam ne yow mii nag. Hmm. li mën a mën a doon def war. Hmm. parce que boo amul défaite moom dëgg yàlla da nga naan koo jàpp rek yaa ko mën. yaa parce que tellement que confiance bi xel mu dal mi doo xalaat yenn yi sax. mooy daan daan daan daan daan daan. di di daan di daan di daan surtout nag. bu xam nga teel a daanu loolu tax bu la bu tombee nga nekk xale. Mm-hmm. wala book bu fekkee am nga encadrement yi yoo xamante ni kilifa la ñu. amet peut-être yooyu ñoom ñoo ci gën a mën a dimbale. ak mm-hmm. ñi nga xamante ni yaa ngi bokk ñëpp écurie nekk mag mais ñun dañoo tombee suñu écurie ñëpp ay boy lañu. Mm-hmm. ñëpp. yow bi ngay daanu ci Malick Niang yaa ngi école Dubales man fii may premier combat bi ma génn école du Dubales bii waaw mais boo bàyyee école ba du tas non am na gaa yaa ngi fa mais naka la fa gaa yi di nekk doom yi Dubales nekk <laughs> mais boo demee ñëppay dem non ana waa ji la daan topp laa entraîneur la ko Bada xaw ma fa mi ngi fa moom ma nga fa waaw nga xam léegi comme dafa jóge màkk lii da ko bàyyi booy day ñu ajusté noonu rek jërëjëf waaw léegi ñu daal di dugg nag ma ma nuyu wala ma nuyu Tidiane Tidiane technique gu <laughs> noo gisee mbëru sa mbër Sa Thiès mbër. waaw gannaaw ba ñu sant yàlla julli si Mouhamed sant suñu ñaari waajur ñu nuyu waa plateau bi yëpp rek di nuyu yi di nuyu champion Sa comme ni ko Abou Ndour waxee daanaka maanaam def na lu yëpp mais dab moom dafa bokk ci mbër yi nga xam ne ci génération parce que ñun ñoo leen raw si làmb. mais moom bokk na si génération boo xam te ne si génération ñi nga xam ne ñu mu ëpp si maanaam combat jànq yi mu bëri. dafa mm-hmm. bëri. di booy seet diggante bu ne ko réer combat jànq la woon. Malick Niang confirmation gis nga. mook mook kii nii euh, Boy Niang confirmation gis nga yëpp ay combat jànq la ba digganteem ak Zarko ay jànq la. Mm-hmm. moom dafa bokk si génération ñi nga xam ne chaque jour bu ñu waxee dañuy wax ne carrément lii combat la duñ ne du daal. looloo tax nekk na mbër moo xam tamit euh, li muy bëri ma li may li may li may li may wax sax damay wax ne carrément lan moo tax mu jël yenn poids hmm. parce que bu nekk da nga yor bëri bu gaaw pour man waroo jël poids. Hmm. surtout poids fi nga war a jëm nii si luur yi yenn poids yi boo ko jëlee dina la empêcher te ñii da war a dugg seen biir génn. Hmm. te moom dafa nekk mbër moo xam day bëree rein ndigg lay bëree. ndigg moo tax moo nekkoon seen combat météo parce que ndeko day bëree rein. loolu tax gisoo ko ñoom ñaar sa combat bi mu amee da gis saa bu mu génnee si Franc ba bëtt ko rek ñu ko doon daal déclenché mboot. waaw. <laughs> loolay problème bi moo tax nekk na ndaanaan wax dëgg yàlla. parce que ñaari ndaanaan tamit moom mooy loolu noonu. Mm, gisoo ko moo kii tamit te tamit li ma gën a neex si moom dañuy wax ne carrément day def ba erreur lu bari ci combat. ci combat mais nag bu du doon bu du doon daanam day day day daanu. day daanu. Sénégal ci combat yi deux défaites la am mais daanaka majeure partie combat bi dafa ay def na ci erreur. waaw moo def mu def benn erreur. daal mais ci biir làmb nag. daanaka gis nga bi maa ngi nii. waaw waaw mais toujours day am chance. day daan ku ku maanaam ku ku nekkul si biir làmb lii doo doo ko tal chaque jour bu ñu la jàppee da ngay seet foo génnee mbaa noo ci génnee mais ak sa à tout moment rek day moom chaque jour. à tout day wax naan carrément man naa ci génn. moom moo tax ndaanaan moom. Ah. day feeñ ba buñ la wëree sax ndoom bu ñu buñ la jekkoo da ciy mm. feeñ. da ciy feeñ waaw. yaakaar naa ni loolu ah, Babacar miin nga ko arbitre. Ah, moom nu mu mel ci làmb <laughs> mais fu ñëw ma laaj quoi. <laughs> ni ku sérieux de. ah ku sérieux ci làmb la. les du kaf du ree. waaw am naa daa am naa daa lay naawal yenn saa yi ne la xoolal def tegal xool. waaw comme ni ne maa ko waxoon ne waaye toog ci yàgg ma ne ndaw man <laughs> ni ku sérieux la ci làmb dëgg yàlla saa yi ñëwee bëgg a dugg tamit aussi moom fa lañ koy fekk mu taxaw. par rapport ngay gis koo xamante ne day taxaw bu soxnee dem toog mais. boo gisee wér taxul ma ne kii mu xaar ñu ko samp fii. <laughs> Babacar. waaw waaw Sa Thiès en fait euh, c'est un grand champion. et comme nu ko Abou présenté donc euh, c'est un fils d'un champion. un petit frère d'un champion. donc naturellement il doit un champion. Uh-huh. Euh, man arbitré naa ko te malheureusement. première défaite am laa ko arbitré quoi bokk. Euh, boobu rek nga ko mos a arbitré. Malick Niang non non arbitré naa ko deux reprises. am na ñu xam ni tamit juge laa comme contre Zarco bi juge laa si woon quoi. Mhm. Euh, lenn rek moom la ñuy mën a joxe comme euh, impression techniquement. Mhm. mooy il benn bagarre bu désordonné. waaw xeexam. baaxul baaxul xeexam baaxul. et également lu mbër di jël tànkam. dafay bëri. waaw li ko mbër di egg tànkam bi moom da pied pied bi. du ko mbëri ñemee nañ ko trop miin nañ ko trop quoi soo xoolee presque ay quatre combats yu nga xam ni da gis ni dañuy dem saisir lu tànk bi si te saisir na tànk bi mais boobu xam naa ni bëre bi dafa desoon. Mhm. Ah, euh, euh, rëg-rëg bu muy jël tànk bi aussi. Mhm. am na lu desoon. Euh, am na yeneen combat yu bëri ah yoo xam ni dañuy saisir tànk bi. Uh-huh. donc loolu peut-être moom il va donner des explications. Uh-huh. parce que pied gauche bi lay lay lay lay jiital toujours. Uh-huh. mais écart bi dafay dafay xaw a kii quoi donc da ngay gis ni facilement il est accessible. waaw donc loolu moom ñun remarqué nañ ko ci ay combat parce que en fait dañuy arbitrer mais. Ah, dañuy ah, technicien la lu waaw voilà disposition technique. combat bu nekk dañuy am disposition technique ci ci mbër yi koy bëre ko pour pour nga gën a mën a dugg ci combat bi. Mhm. donc moom loolu la yenn saa yi comme nu ko kii di wax aussi. Ah dans l' enceinte euh, il, il s' énerve vite mhm. <laughs> waaw ah <laughs> am na lu ma suruxal quoi. <laughs> boobu dafa na dafa mer quoi. waaw waaw bon avant avant muy génn di ñëw mais xam naa ni boobu c'était des considérations un peu mystiques et autres quoi peut-être euh, loolu la quoi euh, fekk xam nga soo sooy sooy bëree am ay mbër en activité ànd ak yow ci biir géew bi c'est-à-dire un peu le tolérer bu ngay ñëw indi sa cumikaay mais soo delloo bay ñëwaat xam nga fekk ñoom fils de balle encadré ko ak yeneen mbër man ko man nga ñii moom bu ñu kii xam nga dama waxoo dëgg quoi xam nga. Babacar day wax bu baax li mu wax dafa ne la waxoo dëgg. yow foofu rek après xam nga ma bàyyi parenthèse bi quoi ba xam ni tey bés bu mag la quoi nañu. nañ defar làmb waaw nañ defar làmb. ji quoi tension bi euh, bi. mais finalement da ngay gis ni tension am na parce que en fait. Euh, mais yow est-ce que dundoo tension bu gën a métti yooyu. oui man ah? dund naa tension yi gën a métti yooyu et puis yu gën a kii ku arbitré Manga Tyson. Manga Tyson xam nga. fekk waaw. fekk yow nga nekk benn little boy nii. waay xam nga ak considération un peu. tu as fait 22 ans 25 ans oui 22 ans dans l'enceinte j'ai fait plus de 200 et quelques combats grands combats wala 300 sax. waay comprendre donc yooyu yëpp. boobu maa ngi toog sax soxoor yi ak. waaw di jar <laughs> junqoob yi ak muus yi. waaw <laughs> rab yi. voilà nii laay def sama tànk. naan ah, ñu <laughs> ñun en fait euh, on a l'habitude de ces pressions quoi. de ces pressions mais mais mais mais ça balaa ñoo ñëw ci baay Balla dafa am lu ñu wax léegi. waaw pénétrer dafa yomb yegg la fenn fi dafa yomb lu tax. waaw xam nga adversaire yi nag dundu benn man peut-être. Euh, non loolu da ko bari le waaw d'accord mais dama ne peut-être yenn adversaire yi duñ benn am na yow boo tëjee sa bëri. centre dimanche duñu bëri ci. duñ bëri mukk caatu man mën naa ñëw tëj sama bëri. kenn du jàpp sama ñaam mais làmb ji moo dul safe moo dul neex. mais comme tellement que dama naan damaa préparé ko combat. naa leen ubbil. kii su ma ko mayee mu ñëw dina am atu loolu da ci am mais mën ngaa may atu te bopp. Hmm. waaye man noo ñëwee rek dinaa xam nu ma ciy génnee. kon tànk bi stratégie la quoi. non tànk nag peut-être dama ko tàmm di bëri mën naa laa bàyyi sama tànk. man mën nga ma yéen mën nga jël sa jàpp mën maa yenu mais yëpp du ay du du limo mën a sama bopp dañ ma ko jàngal. Mm-hmm. ay maga ma ko jàngal ay père Bada. sama papa da boo defee lii defal lii sama papa na ma parce que xam nga bu la cabaxalee mën nga damm nit tànk jàmbur. ba la dugalee ca xabaar. waaw man ko loolu lan mën a nekk. waaw mënuma kaay tegal cent mille francs boo yuuxuwul man ma jox la ak sama oto. ma ne kii de xaaral du ma sonal ma jox cent mille franc jox ko mais ma ko ca wax ba ma lonkee tijaan mi dina xam yooyu <laughs> gis ba ma keppee sama lo sama tànk sa loxom bi mm-hmm. man sama jom boobu dëgg la maa mujj yuuxu yaa yuuxu waaw mm-hmm. mais lépp rek ay jàngat la te it làmb xale mënta bokk ak làmb yi ci mag yi parce que boo xoolee qualité yi nga gis ci combat yi ndaw yi doo ko gis combat yi mag yi combat yi mag yi boo xoolee tam lépp dañuy négocier rek mais combat xare nag di nga gis kiy jàpp tànk bàyyi wala kiy jàpp tànk daan wala mu yenn wala mu mbot wala mu bët ça dépend lu ne mën na ci am mais peut-être dañoo nekk yoo xamante ni foog ñu bëri ba lépp nga xamante ni liggéey nañ si tamit il mu feeñ mais comme li ñuy wax rek lépp li nga xamante ni faible la ci man dinaa ko travailler est-ce que mënate nga koo baax est-ce que est-ce que loolu mën nga ko baax fexe ba kenn du la yegg fenn non parce que comme ni ko waxee boo ko defee da ngay tëj combat bi da ngay jéem rek kenn mënu da jéem rek et puis moom naturellement c'est-à-dire naturellement c'est un lutteur d'attaque benn combat laa gis ñu attaqué ko contre Nes. Mmh. Nes moo ñëw rek moom. waaw riir ci kawam. waaw mais yeneen combat yëpp temps de temps d'observation c'est-à-dire boolewu ko ci combat moom. boolewu ko ci. waaw boolewu ko ci combat bon peut-être observé dara quoi. du observé temps d'observation moom du ko. bari lewu ko. bëri lewu ko. waaw bu nee nii nii nii rek. public bi lay wax ni jug leen rek. même son dernier combat feeñ na ci ah. son dernier combat ah, parce que ñu bëri yaakaar na ni moom bu ñuy si son dernier combat dina dal def nànk mhm. mais il n'a pas changé waaw il n'a pas changé mais kon euh, ci dernier combat boobu c'était acceptable sax parce que euh, il fallait euh, que le combat soit dirigé par lui mm -hmm. sinon su mayoon boobu ascendance psychologique ci Reug rek waaw ak expérience bi da am ah, ak mëneen bi technique bi donc foofu euh, c'était bien mu briser élan élan élan. élan regret waaw ah. et puis Reug boo xoolee ñu ko daan ñëpp dañ ko attaqué. dañ ko attaqué ñoom Biram Mbissine Gandiaye ñoom. Ibou fii Iba Mar ñoom. c'est-à-dire gis ku ko daan te attaqué wu ko. te attaqué ko loolu moom mosuma. dinañ ñëwaat ci bu boobu baal la nuyu naa la. Mhm. ah yaa ngi jàkkaarloo ak Sa Thiès question wala lan nga ci duggee. waaw asbekaay maa ngi lay fay bu baax a baax a baax di nuyu suñu mbokk spectateur yu Bantamba TV yu ñuy seetaan à travers Bantamba TV di nuyu Babacar di nuyu Abou Ndour Tidiane Faye le professeur di nuy champion bi nga xamante ni moom la ñu dalal tey dem mbégte ak contentement bu mag tey dalal la fii ci biir Bantamba TV comme ni ko Abou Ndour waxee champion la ndaanaan la ko def 17 combats 15 victoires 2 défaites te ñaar ñi la daan war nañ la daan kan moo la daan Boy Niang numéro 2. kan moo la daan Malick Niang mais ñi nga daan kenn gënu leen doon champion ci làmb ah mais fi mu nekk nii nag axlu làmb gépp li ñuy wax mooy bien vrai que ni moom egg na ci VIP yi Sa Thiès mais axlu làmb gépp Franc ak Sa Thiès la ñuy wax. mais VIP yi. Ah? Franc ci VIP la ko. VIP léegi VIP bi tas naa mm-hmm. non VIP bi tas naa waaw boobu kuy kuy VIP non VIP boo déggee ah boo déggee man doo tas sax boo ah. ah Modou Lo ngay bëri Ama Baldé waaw waaw booy ñaa ngay bëri Modou Lo waaw girée ngay bëri Ama mm-hmm. ah mais mais mais kon amatul VIP ñoom ñëpp benn la ñoom ñëpp benn la ñoo tolloo c'est vrai que ni te moom ci cercle sax foofu la yóotu parce moom li mu gën a teg bëtam mooy Eumeu Sène xaw ma nag lan moo ko ci dugal ma dugal de ah non non dugaluma la <laughs> yow ku ne ku ne xam na ni Eumeu seen rek nga bëgg a bëreel xaw ma li mu daan baal la xaw ma mais tey jii li axlu làmb gën a soxla mooy sa diggante ak Franc ndax loolu combat jànk la ndax daan nga fi xale boo xamante ni mësta daanu muy rëg-rëg Franc mësul daanu ci lutte avec frappe bi tey jii maa daan rëg-rëg maa daan Franc tey jii Sa Thiès bu ko boolee ci palmarès sam palmarès du ko gën a ris waaw mhm. ah, xaw ma nag ndax dina nangoo jël franc xawma ou mais ax lu làmb gépp Sa Thiès franc la ñuy waxtaanee fi mu nekk nii mooy làmb ji gën a ñor mooy làmb ji gën a neex. ah ñu bàyyi mu tontu. waaw mën naa ne làmb jooju peut-être euh, ci camp camp beneen bi ñoom la gën a intéressé par rapport sama camp. Hmm. du xeebaar bi du dara mais man mënuma jël sama carrière saa yu ma bëree ba daan ba yaakaar ne dama war a yéeg ci kaw di wëlbati di bëri waat ak samay moroom di fa toog ba kañ. wala man dama nekk ci benn port boo xam ne ku ñëw maanaan la entrée c'est impossible. yaay baaraas bi daal. waay mënuma bëri ñëpp du rek rek du faral kenn dàkkalewu ma palmarès ci sama carrière bëri dóor. Uh-huh. kenn gënu ma ci risque ku ci bul victoire doo ma victoire kon man mënuma bëri ñoom bañ supérieur ma ci kaw donte ko man maay bëri ñoom ñu am ci man dara. Uh-huh. du dëgg li bar bëgg nag la mbëtt bëgg. <laughs> maa ngi ah, mais mais bu fekkee non li bar bëgg la bëgg la mbëtt bëgg dëgg la mais bu fekkee dafa toog di xaar yeneen combat ci kaw soi-disant les VIP est-ce que du am retard ci làmb. mais saison baa ngi. waaw ma ne man ma toog xaar. li ma li ma li may séentu moo ma gënal may toog di bëriwaat franc. Hmm. waaw am naa nag loo xamante ni maa ngi koy visé. te gëm naa incha allah naa si peut-être maa ngi ci avancé mais man maa bëggul jël avance boo xamante ni yëgguma ci domaine làmb jooju. Hmm. man awma problème làmb. su ma neexoon mën a ngeen dégg Sa jël na avance ak nangam. mais man maa bëgg lépp lu may def mooy ñu waxtaane ko ñu teg ko tàmbali liggéey bi comme nit ñi di jël ay avance ñi di ko teg man mun naa ko te kiñ ma wax wax dëgg yàlla moo ma gënal fukki junni yoon ka may di bëri wax ah <laughs> di sama yàlla yow dara du la ëmp <laughs> dara du la ëmp <laughs> non fi ñu toll nii benn combat war a mën a xaar Tapha Tine Eumeu boobu bon argument bi bi bi bi. mais Sa Thiès joxe wax Sa Thiès ak Gris Bordeaux comment la. waaw mais boobu lañ ko ci la bokk tamit. te boobu ci la bokk de. ci la bokk de eh, ci la bokk boobu ci la bokk. ci la bokk de mënu see génn. combat bu neexee ah, mais sa xam nga combat yu neex yi gars yi waxuñu gis nga combat Boy Niang Gris Bordeaux wala Sa Thiès Gris Bordeaux combat du ko dàq. combat du ko mais li argument yi mu joxe da naan na nga ci wala. banti mu bañ a toog du bëre bañ a bëre franc dem xaar yi. ñeneen day bëre. waaw ma ne la ñuy bëre. ah moom fi mu toll. non dinañ bëre. xam nga boo yeggee boo xasee plafonné. saison bi tëj na sax. non saison bi tëj na boo xasee plafonné moom ñoom yegg nañ mhm. kenn mënu la ne VIP doo ko ci génne. Ah, mais lan la VIP ci ci la bokk. non ci la bokk si VIP maanaam soo diggee mën a la même bu ñuy lim fukkul ko ci dugal. Mhm. kon VIP la bokk. mu mënu cee ñàkk. waaw moom nag moom mooy yor lu muy bëgg ak lu muy parce que mbër mu ne tamit di nga am koo xam da lay gën a. Mhm. foofu la tool rek. parce que tey moom boo seet. comme li argument bi mu joxe argument bi mu joxe. Tijaan damaa bëgg nga déglu argument man man d' accord ma ci argument am. Hmm. xam lu tax d' ci argument am. Ah. parce que déjà moom ak Géejawaay ah ku mel ni Lac du bëreeg moom Balla n'en parlons pas ah à il va pas lutter avec. Euh, Ama Baldé Ama Baldé comprendre donc tey. mais trois adversaires rek laa am yu mu dul bëree la ah. voilà c'est-à-dire non non soo gisee ma man li may ko noonu ça veut dire que ni moom ñu muy viser cest à day nekk lu restreint mais moom mën na dugg parcelle moom mën na dugg Pikine rek moom mën na dugg xaaral loolu si deuxième phase bi laa wax parce que cest à moom fu muy yootu waaw xam nga déjà ñu muy yóotu kan moo ci des kon Eumeu Tafatine Eumeu Tafatine Gris Bordeaux Gris Bordeaux waaw xam nga te ñoo ñetti ñëpp am nañu komba mm. waaw. comprendre mais seen combat léegi mu jeex. non attends seen combat léegi mu jeex. début de saison 17 décembre combat yëpp jeex. début de saison. début de saison. mais début de saison boobu effectivement su ko neexee mu xaar. Mm-hmm. mun na wax ni su ko neexee mu xaar mais man dama gëm beneen argument comme quoi que ni mbëru arène bi dañuy ragal mbëru lutte simple yi. ñu mm-hmm. jógee ci lutte simple. loolu man dama koy gëm léegi. donc mais man mën naa ko défendre moom ragalul leen. moom ragalul leen. <laughs> déedéet mais kon Franc na jox na jox Franc. voilà mais man je suis je d' accord la ak argument Sathiès ci mooy. Ah, xam nga combat bu boo gis dafay am kuy. ci ci ci ku muy de. ku muy arrangé de de dépendre sax ku muy dépendre. ku muy dépendre bu nee maag békaay rek dafay am koo xam ne maay bëgg a békaay. arrangé waaw naan waaw rek mu am léegi. Sathiès franc Sathiès bu ne léegi léegi rëy xam na balaa guddi gi euh, kii maanaam ci moom ci moom ci moom. la des xam nga 11 combats la franc def. kii am 17. Mhm. déjà différence bi 6 combats de de différence. mais yéen kii sax. franc franc. bi ngeen ko waxee diggante ma waaw. waaw ah, léegi Coens arrangé wu ko. jeex na loolu léegi c'est le langage. te pourtant nag. gis nga rek mais man gëm naa ni. c'est-à-dire tegee dara lu wóor. sa à dire la question. man man dama man bu ñu tegee dara lu wóor. non non c'est vrai bàyyi ko mu tontu foofu. Euh, dama dafa am benn wax ju wax joom solo. gis nga ñun ñëpp ay jeunes même génération lañu. voilà bien sûr mën nañoo magandi caat. mën nañoo magandi caat non bi man ba may bëri ba may bëri sama combat bii dañoo wañ sama loxo ma ma taxaw pour bëriwaat ak bëri ak Reug Reug nangoo ko déedéet boobu am naa leneen luñ ma doon wax li gën loolu mais dal ni yoon yoonu làmb ñaar yi ci nekk hmm. da ngay doon escalier ku ñëw nga jël baa nga am sa weccet di dem di bëri di teg sa ci ci kaw parce que yegg ci kaw moo lay tax am xaalis yegg ci kaw moo lay tax li say nawle di am nga am ko mais mënoo toog fii ngay bëri koo xamante ni te xam nga bëri tey Bombardier wala Gris Bordeaux wala keneen ñu daan ma exemple. Mhm. duma ma wàññi dara. waaye ci yoon tuuti mais boo bëree franc te exemple mu daan la da lay reculewaat beneen bi ci des boo daanee franc lan la ñuy wax. da nga bëgg a wax sa daan du ma du ma supérieur. yow benn njëriñ. non non amal na ma njëriñ ndax lu mu lu mu métti lu mu neex dinañ ko bind ci sama palmarès. waaw mais sur le plan dafa am yenn victoire yoo xamante ni. moo ëpp sax ci yow mi ko am. Mhm. que par rapport yenn yenn yenn victoire yi victoire victoire nag. Mhm. mais sag yi tolloowuñu. Mhm. ci ci adversaire bi man waaw mënuma toog chaque fois bu ñu waxee ñu ne kii moo ñëw <coughs> su ma bëri woon da nga ba woon xaalis bu weex taal la ngi nii ma jël ko su ma bëri waatee su ma paree bu subaa. am na beneen xale mbapat bii ñëw ñoom ordinateur yi <laughs> suba suba di ma conseillé na ma bu jëlaat ordinateur bëriwuma ak ñooñu di ci sax ba ma ma dem xool li ci kaw waaw sëriñ ah, ñett la ñu waaw dañoo bëri de ci daan keneen ñëw pare guñu boo yaa ngi ñëw as <laughs> li mu wax tamit li mu wax tamit mën naa ci mën naa ci d'accord parce que moom rëg-rëg li mu daan bërki démb mm-hmm. am na combat te bombardier lañ ko jox waaw maa daan rëg-rëg su ma neexee du ma jël franc donc normalement moom moo waroon a jël bombardier moom moo waroon jël bombardier wala jël man jëluma ah, ko. Balla Gaye <laughs> Balla Gaye ko jël moom moom moom loolu ci moom la yàqoo. mais moom ngeen laaj moom lan moo tax. saa bañ ko jël loolu loolu question la woon rek. Hmm. amateur yi combat bi lañ bëgg rek ça ne pas dire que ni dama war a bëri combat boobu non non. Hmm. yow yaay xool combat bi la arrangé nga jël ko. man lu man de man sax dama doon def démonstration te pareegu ma. Hmm. pour wax ne li tax ma d'accord ak Sathiès mooy sa à dire que Sathiès xam nga boo xoolee sax ci sax ak franc waxul ma ko mën a ah. tey tey la wax fii ak 3 ans 4 a kii. 2 ans 2 ans mais nii. 2 ans waaw d' accord 2 ans 3 ans. rek. d' accord. xam nga xam nga booy ñaar. waaw booy ñaar dafa daan brise de mer. ma ne booy naa yow yow doo da nga war a bëri ak saa ceeb mu ne père yow bëggoo ma am xaalis quoi yow. ma ne ko ah bon ma ne ko yow yeewu nga de mu ne mu wooy lu tax may bëreeg Sa léegi Sa Thiès mag moom combat la ci kanam amitié lañ jëm wala démb jóg peer buñ ko bëree léegi duñ fay am dara dañ ni fay ay 5 millions 3 millions lan ni te noonu lañ ma woo noonu lañ ma mu fekk benn booy bu ndaw booy mu euh, nu nga xeeti sax xale xale booy yooyu mënuma bu ko jël. kan. combat boobu noonu nga wax nii. waaw mënu bu ko jël. du léegi ma ko jël mënu ma na yàlla fii ci kanam. di nga ci am cent waaye ba li koy manque du bëri waaw c'est la vie dafa nga ko mbaay xam non non question enchère la non non non c'est-à-dire euh, gis nga bexe mhm. question enchère la c'est-à-dire c'est un combat boo xam ni moom c'est-à-dire quand il reconnaît que ñoom ñoo bokk même génération cest dire tey ils doivent se frotter xam nga parce que VIP yi waxoon naa leen ko fii VIP yi dafa nekk benn léegi dafay ferme parce que lu tuuti la mën na pour man dafa yaatu. non non non après nag ñi après ah, ñii. léegi mu tas mu tas waaw mu tas. xam nga léegi xam nga léegi mu tas. VIP bi mu tas. balaa moo tas du ma ci mos. waaw balaa vraiment <laughs> <laughs> bi léegi mu tas. que xale yi fii xale yi daan mag bu leen sonal seen bopp de carrière nag. voilà moom la bëgg a def adversaire yi. Malick Niang Boy Niang Reug Reug Moussa Ndoye Karim Lac Rose boo leen daanee quand xam nga et puis li mooy li kii wax la la classe du VIP dañ ko war a renouveler. Gris Bordeaux Eumeu seen Bomba Dieng presque par nañu day dem un an ou deux la par force la. gis nga loolu parce que euh, seen âge sax moo leen soo analyser làmb mbër bu fi dem ba am vingt ans de carrière mm-hmm. ah. Mm-hmm. waaw muy ci suuf. non da ngay yaa ngi ci décret. da ngay def décret par force la. par force la loolu làmb moom vingt ans foo ko def. yow déjà bi nga ciy dugg am nga vingt ans. donc da xool. am na fii des athlètes ay mbër vingt ans de dañu bàyyi. oui mhm, dañu bàyyi avant même. waaw avant même dañu ah, bàyyi. maintenant ñoom ñoom c'est-à-dire cest dafa am lu nga xam ni warul nekk nag léegi logique wu euh, lutteurs yi waxoon nañ ko fii. Mhm. franc bu mu ñëwee fii mu ne du la du laal coins man yan raison lay développé. Mhm. man pour man. franc moo gën a man du ma laal franc. moo gën a ñàkk lu euh, mu tuddati lu mu koy waxee franc. moo gën a ñàkk argument. ci bañ a bëri Quench que Sa a bëri ak franc. man nag pour man parce que xam nga pourquoi. tous les arguments ne sont pas. non non parce que kii mooy tane mooy tane bu franc. Quench mhm. euh, Quench kenn mënu ko waru koo bañ. kenn waru ko bañ. kii bañul franc de. franc it bañul bañul bañul sa bañul coins mais dafa bëgg a tëb coins dal ci kaw Fadal. Sa Thiès Sa moom du ko fa xaar parce que moom it dafa am keneen ku muy séentu loolu tamit da ngeen koy da ngeen koy sóoraal kon ñoom ñuy nangu par exemple xam nga suñ leen waxee nii da ngay dañ lay xalal yoon nga nga bañ loolu uh-huh. mais mais Babacar Babacar xalal yoon nu mu nekkee non xalal yoon nekkul foofu ah, déggoo Sadio li mu la xanaa. waaw nee na moom du jël franc parce que tey. tey argument yu mu joxe. tey non Sadio moment waaw mais tey jii nii. <laughs> mais mais ba amateurs yi est-ce que mën naa poser question kii. tey boo tegoon si lutte avec frappe. boo tegee rek rek teg franc. waaw kan moo jiitu. ci lutte avec frappe. waaw Sadio. non non franc ak rëg rëg laa wax. franc franc ak rëg rëg. waaw rëg moo jiitu rëg rëg normalement. waa léegi nga daan rëg rëg. nga daan rëg rëg mi jiitu franc rëg victoire la. 15 victoire. ak 200 verdict une benn défaite. benn défaite mais je veux nga daan rëg-rëg bi jiitu franc. Mhm. rëg-rëg am chance su chance am la. am ba bombardier. waaw yow nga daan rëg-rëg bi jiitu franc. léegi au lieu nga avancé yow nga nga nga jël franc bi nga xam ne rëg bi nga daan moo ko jiitu. non euh, Abou. dafay doy waar damay laajte ah. léegi moom ah, ci combat laa bëgg ah. am. na. am na benn mën a indi combat bi waaw. <laughs> Pape boo nu mënee indil combat rëg-rëg. lamb lamb mooy tonte bi moo bari. waaw comme ça mais mais Franc Franc wala balaa ñoo dem bu dee am nga question boo koy posé. Franc Quenz adversaire am a përir bari. Gris 2 même gi combat na ku koy dox. Quenz guy gi. Quenz guy gi waaw guy gi. waaw ñaar yooyu yëpp ay combat ay combat Sa Thiès am koy dox kan Mandione Ablaye Ndiaye kuy Mandione bàyyi Mandione <laughs> sama mbër laay bàyyi na bàyyi bàyyi bàyyi dégg naa nee na bàyyi na ah gaa yee ko bàyyi baal ma de et bàyyi Baye yow dinaa ñëw ci yow bu ci ka demee parce que yow Baye il ma wax ak yow. voilà la bu dee dafa am question booy posé saa wala ñu. seetaan la waaw saa saa dégg dégg nga li mu wax moom ku ne dégg na li mu wax. waaw fii la jëm wax naa tontu na ma rek. léegi kon ñu seetaan kombaam ak rëg-rëg ñu daal di dugg nag ci ay kombaam ak technique yeeg waxtaan ci li nekk ci làmb ji Sa Thiès rëg-rëg. combat bi boo ko seetaanee est-ce que mën nga ñu expliquer combat bi yow ni nga ko bëree ci chute bu njëkk bi avant ñu ñëw ci deuxième chute bi wala deuxième chute bi mën nañ ko mën leen ciy leen ciy wax du bari mais premier chute. <coughs> waaw boo xoolee euh, bari bi moom dafa dox àndiwaat tuuti. man ah. ngi avancé. ma doxee trois pas su ma ci laa reculé waat dellu ginnaaw pour mu ñëw ñu bari ci digg géew bi ba mu ñëw ci laa cubb suuf léeg moom di avancé ci kawam. ba ma sànnee gauche. ci la jiw la léewtoo nga diis <coughs> waaw dix léewtoo. waaw neuf dixième bi ci nga dóor waaw. waaw léegi rek moom mooy dóor mu dagaj sama tànk. man sama loxo bii ma teg ko ci kanam parce que da koy gêné du gis. du gis ci laa jëm jëm devantiru ngemb bi téye ko ci laa boobu gën a rocc pour dëbb ko naax ma gis ni day benn ci ba muy benn man ma jiitu ja sama tànk jiite ko foofu. Mhm. moo tax ba muy def rek. sama copain bi muy ñëw doom équilibre normal ma sonné fàkk ko. waaw ci def carte d'appui yow gis nga carte d'appui bi. gis ko moo tax ma bàyyi ko. après nga bàyyi. waaw su gis woon du ma ko bàyyi yàlla xam na ko parce que boobu mënu ma ko jekk foofu aussi di ko bàyyi noonu. di ko bàyyi noonu waaw mais tamit. mais pourquoi at bi woowaat la nga ñëw. Mmh. waaw parce que damaa gis ni chaque fois yenn saa yi day am erreur ci ñoom mbër yi jël ci wàll parce que gis naa tey jii su ma demoon nee nañ am na daañu ma ciy fekk. mën nañ ma aj mën nañ ma euh, maanaam mën nañ ma tegay daan daal waaw ci gàttal da naan dafa sax voilà sax lañ ko tuddee te léegi ñoom erreur bi nga xamante ni arbitre bee ko def duñ ko bàyyi xel après ñoom nag peut-être ñoom ak arbitre bi ñoom la man mm-hmm. loolu lu ma ci war mais ba ma ko waxee ba na ko ne kii def na kadap bi mënuma non non deful kadap bi ma ne ko lu ci mënta am yaa ja engagement bi mënuma waaw ma ne ko kon sifflé mais ma ne ko leer na leer na daan man loolu la wax nga ak arbitre bi man maa ko wax loolu nga ni ko leer na leen di daan naa ko kii daanu na xam nga ci daanu mënuma daanu gisuma ko ma ne ko lu ci mënta am engagement bi yaa ko jël yow laa mënuma waaw ma condition bi la mais ça bàyyi baal mais ah. ça mais bi dama gis ni xeex xeex bi nga indi xeex maanaam concentré woo ci bërëb bi bi ñu leen woowaatee parce que at bi ñu leen woowaat dafa siffler rek nga attaqué ko xeex son ko ci kaw moom mu mu jël la ci suuf su ma yaafusoon tuuti combat bi du am juju boobu du am ci jour déedéet lu tax. damaa blessé woon. Hmm. ci ci action bu njëkk par déedéet avant combat bi. avant moom laa la wax sànq moom moo taxoon dem faju bi. waaw billaahi wallaahi wataalaahi samay saf ak sama encadrement mi àndaw Pape Mama Moussa Fall Omar moo la war a ñëw ñëpp mu ne pour maj combat bi. Hmm. man maa jël sama kanam fas ko ba kenn du ma xool parce que xam nga domaine de làmb yenn saa dem fiy toll mën nga mën nga jël sa kanam bi yóbbu ko feneen. Uh-huh. dañ naan ah nañ ko waaye affaire làmb <laughs> mais woote nañu réunion pour ñu aj combat bi mais man maa leen mayu kanam boobu. waaye man maa jël sama engagement gëm ni man li ma bëgg dinaa ko am. mais ni ni nga ni nga bëree. moo tax ba ñu ba ñu ba combat ba bi jeexee deuxième site bi ba ko dóoree. Uh-huh. deuxième site ak conviction pour. boobu lu tax affaire bi gën a ba ma ko dóoree direct sama fii nii comme rësool bu bàyyi. Hmm. ci laa ne ko xaaral ma ni droite bi. ci lañ ci la ma song moo tax boobu mënu ma woon mënu ma woon téye dara. Mhm. man ba ni ma paree. mais sàmm ne même song la. même song la mais boo xoolee ci biir song bi song na ma ñaari yoon. mais sama loxo bi laa ko baare. bii mooy song bu mooy song bu mujj. bii mooy bu mujj avant même ba bii jeexee Pape indi bu njëkk bi parce que bii ak song bu njëkk bi benn la. bi def na ko quatre fois su bu njëkk bi bu mujj bi bu njëkk bi da ngaa mel ni koo wax. parce que boobu dama ko dóor kuur waaw sama loxo bi fii. Ah, du bii voilà xam nga bii da ngay dóor mu mooy. bii bii non dóoroo lu baax bii dóorul mooy quatre appuis bi. fii mooy fii mooy quatre appuis bi. Mhm. fii dóoroo bul baax parce bi ngay dóor sëgg na. et puis Reug Reug jël baax la fi bëri ba fii. Mhm. gisoo ba muy wàññi gisoo sama tànk bi. waaw mais déplacement bi bi mu di di dem. taxawul waaw taxawul. voilà dafa téye di dem kii kii di kii di kii di reculer. taxawul ah. dafa jël ba pare di dem. waaw di su ma écarté ak. ndox moom seet. Sa Thiès moom di ko rëgg rëgg jëlee. waaw li mu def rek moom mooy dafa yóotu ngemb. jàpp ngemb ba pare te bloqué bloqué bopp bi. léegi nag moom mooy seet booy seet euh, dernière action bi nga xam ne mooy euh, site bi fi mu amee deuxième action bi. Mhm. lim tenté ba daal foofu Sa Thiès. mooy benn zit bi. waaw da koo tante mais daa fekk saa si jàpp. jàpp ba pare écarté écarté tànk yi yóotu na pour def la mu bëggoon. mais da ngay gis sànq da ko sànni mu ñëw rek mu fàq dugal ko si biiram. loolu moo andi point 4 appui bi. waaw mu indi 4 appui. moom moo andi point et premier site bi pour man ah Sa Thiès mënoon na eggale action bi foofu. non woon bàyyi. est-ce que mënoo def leneen yooyu yooyu damay dégg ñu koy uh-huh. uh-huh. la moo xam nga xam nga site site la. Ah, la mais man dama gis dama gis parce que man mii maa ngi bëri mais yàlla xam ne sama ngor laa bëri si. Uh-huh. sama ngor rek laa na bëri si parce xam naa ni di profité di ñaanal Père Gaston yàlla yëkkati ko. amiin waay a dellu ci waat ci njabootam. amiin moom ak euh, famille bi ñëpp mais combat bi nekk na combat boo xamante ni man sama daan génn sama kër rek ñii fanaan ci buntu kër gi dama naan tey ji waruma daal ci làmb ci. Mhm. man dama daan toog di ko waat ne billaahi wallaahi wa taala su ma daanoo daf ma dama ko daan ba pare ma doog may daal. aussi euh, Bécaye am na loo xam ne seet naa si combat ba pare dafa nax rëg-rëg. ndax ndax ndax giñ ko ndax moom mooy day gis ne ñoom ñaar gis na ne Reug Reug dafa jël pois moom fekk mu jël pois mu wàññi poids moom. Mm-hmm. mu wàcc pour gaaw. <laughs> andi rapidité boo xam te ne dafa doy moo waral action bii am. Mm-hmm. mu rëcc sa la Reug Reug doon def ci. relation bi waaw même Reug Reug poids bi mu jël dafa bëri. Mm-hmm. mais Sa xam na ko ba am na encadrement boo xam ne wàññiloon nañ ko poids bi. ji xam naa loolu di ci ñëw. <laughs> ji mooy def yooyu. donc <laughs> da nga wàññi poids bien sûr. waaw xam nga nag problème mooy man moom ca fa ma nekk bu ji xoolee ni kii lay bëril mun na taxaw ne nombre de poids bi lay jël parce que dañoo pare woon ne dañuy bëree cent kilos. mais bañ ba toog mu gis jël poids munuma saalif waaw munuma nañu wàññiwaat affaire yi man ko am ah, manuma man ko ok baax te ñi ma ñi ma ñi ma ñi ma xam ñu ñu xaw a jege làmb yëpp. Hmm. ku ma ci wax danaa ma wàññi sa poids bu bu bum la bul jël yenn poids yi. normalement man ko waa baax. c'est poids de forme nga war a ñëw. pare bañ demee ci lañ doon liggéey ci exercice yu mel noonu. man hmm. euh, li ma li nga bëri ak ak ak Reug Reug yow yow luñ la xelal la wala yow bi nga sur séance euh, tenante si nga indi tactique loolu loolu loolu. li mu bëri waaw. Euh, maanaam audace bi. audace bi ak ak dox bi bi nga dox ci kaw rek rek. waaw voilà boobu laay bi waaw surtout loolu. waaw xam nga surtout ça. mooy dama man daw ko ma ne blessure moo tax sax yu bëri ma xaw koo dal nii mais dama ne ma blessure woon. Hmm. damay wàcc sama garde nànk. Hmm. di benn benn. parce que man ñi may dañ ne xeex bi. Hmm. bu yëkkati sa loxo bi. droite bi waaw droite bu mu mus a jug. man loolu lañ ma daan conseillé. parce que day boobu jugee sa tànk li jëm. ma ne am benn problème. boo xoolee morom moom laa débuté di xeexee benn loxo. Mm. di xeexee benn loxo mais booy xeexee loxo boo xamante ni moom la la sant te yaa ngi ci blessure bi. daal la saabu tamit. te yaa ngi jiital gauche bi di xeexee gauche bi. est-ce que dafay mm. dal dafay impact. waaw instant dama ba ba bi amee kaddu ba pare ba ñu woowaatee ci laa ko duur ba ma ko dóoree moom boobu gis nga sax dafa dafa reposé wu. Mm-hmm. boobu sama fii laa comme lu sumeeku. Mm-hmm. moo tax ba ma songee. pour ma jëlal euh, jàppaan ngemb bi problème la. mooy deuxième bi. deuxième bi même deuxième gis nga bu ma jàppoon ngembam. Hmm. combat bi xam na laa ko doon bëriwaatee. toog di ko déglu rek. da ko doon téye foofu. barki alxuraan dama ne damay toog téye ko parce que lii mënul dara kii moo mën dara kii mën dara téye na bàyyi ma jàpp ko foofu. doo def benn action. dinaa ah dinaa jéem mais du ma du ma jël yenn risques yi pour teel ko def. Hmm. et puis changé dara sa sa sa ngi daan bëree. te yaa ngi bëri un grand champion. am expérience ci làmb lu tax. waaw sa man na man pour man ni nga daan bëri nga bëri da nga ñëw attaque attaquant la ah, attaqué. mais xale la ñu changé la si tempérament. waaw loolu yaa ne yow yow mën nga. ci ci tempérament non non non c'est vrai. tempérament dafa gën a tàng. déedéet dafa dafa gën a dal. bi dafa dal dafa dafa. su gis naa loolu. non dalul euh, ci combat bi de. si si mais arbitre sifflé waatee. xadar la ñëwee non boobu boobu. action bi la action non non action bi la moo nekk ci xol bi. waaw mooy jug foofu. waaw neer mooy voilà. soo ko doon analyser. ci combat yu muy yu mu doon perte. waay comprendre nga xam ne day ñëw rek tag ak fuggam. mooy balancé wu benn combat bi la xoolal xoolal da ngay da ngay da ngay analyser combat Sa Thiès mook euh, kii. Boy Boy Niang. Boy Niang non boobu boobu dalul. Boy Niang am na benn instant boo xam ni c'est-à-dire orgueil champion moo ko jàpp. Mhm. moo tax mu continuer xeex. Mhm. mais su continuer woon xeex bi day day day récupérer combat bi. Mhm. waaw. comprendre. waaw bu daloon xëccaat Boy Niang bi ci digg géew bi. voilà ni ko ñëwul fii. kon day récupérer combat kon day na récupérer lu bari. léegi nag loolu xam naa ni bokk na ci enseignement ci combat bi li mu jàng ci combat bi. ci combat bi. si Moussa Ndoye la commencé su ma juumul. gis naa contre Moussa Ndoye. mu am un temps. un temps de réflexion. boo xam ne ak. lu non parce que boobu ci defet la jógee. voilà gars ne ko nag. foo nga tey tuuti ak paa bi ak paa baa nga fa. waaw ah, waaw mooy bi mais mais mais euh, euh, wax li Babacar wax léegi boo ma ko bàyyi ba la xaw na ci mais sa dëgg sa bëreeg booy ñaa amoo ci genn dal. non non amoo ci dal. lu tax moom laa dama ne moo tax man a la ba may bëree moom dëgg yàlla xepp ci la bokk. waaw feeñ na. nawluwuma ko woon dara dara dara. <laughs> loolu foo teg loolu. ci xëy na maa ko doon te jafe-jafe yi ma nekk woon yi ma amoon ci ci làmb jooju yëguma ko woon tellement que sax bu ñu waxee dama leen garaaw ngeen dem na ngeen toog nee rek. yan jafe-jafe moom mooy bëri sax du ma daan. kon dama yoroon benn malaat boo xamante ni chaque jour su ma demee entraînement bu ma ñëwee moom lay nekkal. ci malaat bi ngay ne. waaw doo a nelaw doo tal sa bopp doo tal dara. mais ba mu bëree waatee ba ma bëree moom na ba yëfi jàll ci laa ne ko làmb dafa am leneen lu bokkul. ak ak sa digganteeg sa adversaire. waaw mm. moo tax chaque fois bu ne prip waaw lijjanti maire bi. ñu teg ko ci jàmm lijjanti fayam ñu teg ko ci jàmm yow loolu lay def garaaw parce que yaa engagé bëri ci. waaw làmb dafa metti mm. contre contre contre contre boo ñaa yàkkamte nga. li ngay xeex xamoo foo ko teg jaxasoo nga ci biir géew bi. yaa ngi dóor di def nii et puis di gëm di dóor di def nii di def. di dóor ma ne mais kii loolu bëri bokkataar yi kenn xamul ah. <laughs> Sathiès loolu loolu Abdou. baal ma de loolu as loolu dafa bokk si caa si Sathiès dafa bokk ci deretam arbitre sifflé mu dox sa kaw. mais dinay régler quand même de. xoola ak adversaire bu mu mënti doon daf ci am mbir yoo xamante ni lii dafa nekk ci ñoom. Hmm. muy Sathiès muy Balla Gaye numéro 2 muy Ama Baldé ñii ab arbitre bu génnee seen diggante. boo ñëwul dañuy ñëw ñëw. waaw loolu dafa nekk ci ñoom. mais ak ak ak réflexion nag. mais waa ak réflexion et puis ak adversaire non Balla dina def nii. waaw déglu la tuuti. <laughs> ah Balla moom dina def nii déglu la tuuti defaat nii defaat nii. sa boobu même moom Balla sax seen différence foofu la. sa boobu daal. ah dafa boo amee combat. yi war a jëkk a conseil mais dama nga seet say mbokk. dama seeti say mbokk. waaw. dara nga bëgg say waajur. te woo ñi la jege te xam ni yéene nañ nga taf leen sa bu la wëree ni soixante soixante technique yi ngi feet laxaar fexe ba xaaj-xaajaal bi na ko jàng ci salaam coono goo gën a sonn ci préparation combat salaam gën a noppal waaye teg ci mënuma boo répété ni kii mën naa ko daan ci fànn bi ci fànn bi ci fànn bi jox ko respect waxul mhm. wax yàlla nag seen diggante ndax yàlla moom ndam ni mhm. boo ko joxee respecté loo yóotu di ko jox mhm. Mhm. parce que gaa moom man bu ma tuutee laay gën a am doole que bu ma bu ma kiiyee waaw mais ça passe ci ngay ëpp souplesse non non c'est-à-dire cest xam nga xam nga loolu il faut mbër yi di ko xam c'est-à-dire euh, poids de forme ku nekk da nga am poids de forme ku nekk da nga am sa poids de forme poids nag mooy comme li nga wax rek soo tuutee mais boobu du question tuuti c'est-à-dire da ngay ànd ak doole xam nga ànd ak souplesse li nga bëgg ànd ak agilité ko mm-hmm. li nga bëgg di ko def. mais comme ñun dañu nekk ci benn sport bu nga xam ni yenn saa yi pour nekk mbër il faut nga. Mm-hmm. waaw waaw. <laughs> il faut nga dana danay jaawale rëy ak am doole. doole. <laughs> la ñuy léegi nag dangay su la gisee ci ci argent bi ne ah kii indi na doole. indi na doole fekk indi woon dara <laughs> fekk na pataanga rek. fekk pataanga comprendre nga. bari na ci. non bari bari na ci. bari na léegi nag loolu moo leen kii maintenant maintenant ñoom. en fait ci ci ci ci kii yu ñu dem nag année yu ñuy dem ñoom ñëpp. il faut se il faut se rendre beaucoup plus professionnel. Mm-hmm. Mm-hmm. comprendre mm-hmm. xam mu ngi wax ni fu muy dem ñoom gi ak yooyu encadrement. c'est-à-dire de forme bi léegi par force la. dootul dootul évoluer naan kii laay bëreel damay def nii wala kii non non non hmm. sa poids de forme ngay indi. ngay indi waaw pour mën a bëree. pour mën a bëree. bàyyi mais ni mu yow dafa am benn question boo ko bëgg a laaj. Hmm. Euh, sa préparation combat ak Reug Reug est-ce que ni nga préparé combat boobu mos nga ko préparé combat ci dayo bi bés bi amoon rek. waaw ah. coow li bari. xëy na am na empereur ah. man moom li may dimbale dëgg dëgg dëgg dëgg su ma amul combat bu ma xëy naa dem fajar gi. ñu naan ak papi dem Saalum su ma demul foofu dem Olympique. xam nga problème mooy doo toog ba. saa woo amul combat ngay wax de boo amul. combat bu ma amul combat parce que loolu moo lay gën a mën a dimbale. moo la fi mooy maintien. voilà ma ngay maintien sa yaram. ba pare comme li grand bi di wax dafa am importance. nit booy bëri. war nga bëri sa adversaire pois bi nga xamante ni yaa ko moom sa bopp. Mm-hmm. ba dara du la gaañ. mais après lamb bu jeexee. Mm-hmm. war ngaa maîtriser sa poids bopp bi nga xamante ni bu ëllëgee boo amee beneen combat. da ngay nattara ne kilo laa soxla. kilo laay liggéey. li ci des da nga koy maintenir maintenir ko. mooy mooy wax ni c'est ça le débat actuellement avec les préparations de Gris man benn yoon suma ma laa jël pois ba jaax ba affaire yëpp te boobu maa ngi woon France ba ma demee ci benn salle waa ji daf ma dugal ci benn machine. mënuma yow normalement mois yi da war a am cent treize kilos. waaw cent treize waaw te xam nga ñaar boobu amoon nga lu xam nga ñaar boobu maa ngi franc lekk am na benn ganus bu nekkoon foofu. Mhm. Euh, kii de dafa neex. may daw foofu di physique rek ma <laughs> pare dem kii ba laal dem ba ma nee waaj na ma. di lekk rek waaw di lekk waaw da ngay lekk pare ak temps de récupération man nga xam ne du ma nelaw waaye ba ma nee foofu comme prison ba ma nee ak poids mu jëm ma am cent trente sept kilos. man damay dox sama xam ni man mii man maa ngi man man man lan la. yaa ma ne ma nee Sall waaj na ma da war a jël cent treize kilos. Ah, parce que poids. a en fonction de âge la. ak taille âge parce que sama papa la ma ko daa wax. dama wax ni kii dafa maa zalu. parce que man doomu bàjjan laa ko jàppee. waaw oh, yow li ma la mën a naqari. <laughs> mais ba ma demee ba toog. et sa papa am na ay temps il pesait cent quarante ans. waaw mais moom musul papa pesé na cent quarante. mais sa papa mu attanoon na ko. parce que dafa njool. musul pata te xam nga moom musul pata ak yàqam. bu taxawee da ngay gis muscle gis ni waa muscle yi waay. voilà musul pata waaw parce que boo xoolee système d'entraînement yooyu ak yi sax na. Ah. lekk yooyu ak. non yéen lekk yi doon mais gars yi ko dul lekk. mais ba ma nee ba toog après waa ji bindal na ay comprimé. man naan ko sama biir bi di daw munuma del def lii heure sangam dee fi ñëw. naaj bu tàng laa daan traîner. mais tellement après bu mu ñëwee ji na ma boo amee combat dañuy jël adversaire bi teg ko. xool ci point faible am ñu liggéey ci mais ci sa poids naturel nga moom ko am sa endurance am sa cardio am sa doole am sa souplesse nga xamante ne dara la sonal boo amulee combat nag. dañuy jël nombre de cent nangam yaa ko moom da ngay dox di sonn man damay football ak lépp du ma déranger sama poids ma mhm. man loolu faral ay natt sama yow yow am nga ba ay qualité yu xam ne dañ ko niroog euh, Tidiane. Tidiane mooy seen souplesse. Tidiane daa gaaw. waaw <laughs> ah. moo tax man saa mais non Tidiane dafa gaaw mais yow tam yeexuloo. <laughs> Ah, kii. dëggal sa waay. waaw c'est-à-dire Tijaan day fënd fu fu kenn foogut. parce que man man. Tijaan day jekk di. bañ nekkee booy xam dañ daan jóge suñu koñ. Euh. di daw ba seen ba lamsaar <laughs> barki alxuraan boo dama koy gis chaque secteur maa ngi ko gis muy muy daw. waa kii mu. yaa ngi daw. boobu booy laa xam booy boobu maa ci mbafari. <laughs> boobu. daan na sol daal militaire yooyu. waaw du <laughs> <laughs> ma romb. waaw. walaay kii kii kii tamit kii bëtam yi. waaw <laughs> boobu boobu boobu ma dara. ba léegi non champion la nees romb ngandaay bi ma ne kañ laay toll ba léegi ba léegi amuñu ñoom amuñu seen amuñu sa sa kii de sa sa garab. waaw sa garab la jàpp. saa ko ak ngandaay bi. lamb dem ba boole laag nees. nga eh. bëri moom bëri bu rëy nag. sant eh. yàlla. parce que dafa amoon benn père Bada laa àndaloon parce que combat boobu may waxtaan man maa ko ne combat boobu ngar ne na mënu ma que xam nga mën nga dem ba tolloog moom hmm. man ko su ma moom de dinaa bëri moom hmm. nga wax moom hmm? waaw maa ko wax ne ko kii ma tolloog moom dinaa bëri moom est-ce que xam nga sagesse combat boobu lañ ceg neex xulo yu métti <laughs> parce que da ngeen bañoon mu jël non nees dafa warul entraîné normal te entraîné ko waaw waaw lañ nekk ñu ne ko da ngaa jël koo xam te ne daan si suñu écurie bi ñaar kon nag yow danga war a kii parce que yéen ñaar seen combat dafa neex. Hmm. parce que jiitu ko si li muy def. moo waral hmm. arbitre bi mu dal si kaw. Ah, waaw waaw mais daf ko waroon jiitu si lii muy def ba pare moom nees dafa mën ci bagarre yi di jéem a dara parce que booy seet diggante mag am. te boobu temps boobu temps nees euh, jàppoon temps yooyu. poids bi baaxul bi mu jël baaxut ñu wax ne da ngay entraînement xam nga mu naan noonu nañ ko may deux semaine deux mois mu beru fële xam nga. boobu écrit ba. nekk te hamburger lay lekk. non boobu mu ber affaire yi moom rek. combat boobu tax ñu ñàkk ko si Sa mais combat boobu combat ne sawoon de. Hmm. waaw. waaw <laughs> mais euh, as. pour pour revenir arrêté xaaral xaaral am ñaari question yu la bëgg a boole. si rëg-rëg ah. mooy euh, bi nga dalante ak rëg-rëg kaw côté. physique puissance loo yëg ci rëg beneen bi mooy bi nga naan rëg-rëg naan ko sama doom sax bu ñu kii mu naan xam na li ngay bëre loolu c'était dans le cadre de la bataille psychologique wala da xam li li rëg di bëre carrément. da <laughs> nga doon jéem a nax wala. waaw loolu damaa toogoon ak sama sama benn doom Mohamed. Hmm. ba papa koy bëri kii wala kii nii rek lay def. Hmm. kii da ngay def nii rek def ko nii. gaañ a dë dëbësal quoi. ma ne ko xaw ma nii xaw ma naa bu ma yàlla jayee ba ma gis a ngaa da ngay liitoo ci làmb ci. ma ne ko doon muuru muuru sax xamal la gën a. <laughs> waaw loolu nga may wax ma ne ko waaw. waaw man heureusement ba moom football la bëgg. waaw man ko football bi daa waa d' accord. basket la ko waaye làmb moom. Mhm. coono googu ma teg sama papa ba mu bañoon ko. waaw maa ngi doog a xam ni doxul. li tax sa papa bëggul woon. déedéet mais mbëri bëri bëgguñu seen doom de. sa papa daw la koy bëgg a dee. ah doomam bañ a bëri. tam bëri na ko ci Umar ñëw ci man parce que kon benn jour dafa ngay da koy wax dafa dëgg moom moom coono bi xaw ma lañ waaw ma demoon bëri benn benn tournoi mais am nañu ko bëgg ah am nañu ko bëgg seen doom bëri parce que xam nañ seen doom mën na ci am dara man gis naa ay gis naa ay kilifa yoo xam ne ñoo ñoo ñoo jiitlante seen doom waaye mm-hmm. waaw ah, ah, ah, parce que Boy Kéré par bari na léegi sax dafa bari. Boy Kéré Boy Kéré mii mii mii mii. dama naa gis boobu maa ngi jën Kéré boobu ñu bokk salle olympique. day jëlante moom muy daw muy jël otoom topp ci ginnaaw. waaw kon kooku bëgg na doom dara bëgg na doomam doon champion. parce que non parce que gis na ci njariñ quand même. Euh, discipline la boo xam ne am na njariñ. waaw man de sama waaw doole mu ne bi na doole puissance am na doole am na doole peut-être euh, erreur bi mu def mooy poids bi jël waa bi. waaw poids bi war ko jël dafa bëri. parce que nit ku nekk dafa am loo moom mais man chaque fois dama naan xaaral ma xool ni muy chargé làmb ji ma chargé ko ci communication ci bu ñu dajee na ma ko énervé man loolu ci laa ndox bàyyi ko coow li. Mhm. boo xoolee combat bi man nga ne Sa Thiès ko da ko yenu mais moom laa bàyyil mu sëf ko mais poids moom dama koy conseil rek ku muy mën a bëreel na xam ne lii moo ko moom lii moomu ko. waaw léegi te mbër yëpp nag ñoo moom loolu parce que ñu ñëpp la yàlloon parce que bi muy bëreeg Elton eh, yow yow ëpp loo Elton te bi muy bëreeg Elton moom toll woon noonu déedéet déedéet toll sama combat bii la ëpp bii la mos a toll nii kontu tam xaw na jël tuuti maas mais toll woon ni suma ko sax tegu euh, da da lay tere bëri. bi bi jeexee coow li bëri daan na ko daanu ko daan ko daanu ko coow. da kay bu sama <laughs> yàlla bu ma kii xëcc ma nii. kii xëcc ma nii. ma ne léegi may ne ma dem xool combat bi xam damaa daanoo mu dañ maa daan. bañ ma mayee ma dem ba kii ma ma yeggee. barki alxuraani karim toog naa deux semaines yoo xamante ni ay prévisions ak lay jël. Hmm? ba ba nag ci laa den demaat cité góor gi fi ma doon fajoo sama traitement après ci la ma son na ma naa ñëw mu yóbbu ma fee ma ci kaw comme amoon naa visa. Hmm. ma dagg sama billet dem. Hmm. mais justement comme ñu ngi wax affaire visa. Uh-huh. te moom am na ñaari mbër yoo xam ne tey suñu fi nekkoon. Uh-huh. ay potentiel adversaire am lañ. muy Garga ak Yekini Junior. Garga de Garga 1. ak Yekini Junior Garga Mbossé ñoom ñaar ñëpp doxoon nañ sax suñu combat. oui ñooñu il serait ñu ñëw. ñu ñibbisi ñu ñibbisi ko parce que c'est-à-dire cercle espoir yi dañ dañ dañ ko soxla. garaab boo yooyu ñam nan ñam nan ñam nan ñam nañ dollar ñam nan oncle Sam pay <laughs> de l'oncle Sam deey deey daa ñam town dem nan town town <laughs> mais man dama gis ay mbër yu xam ni dañuy nekk fële am contrat ñëw garga mbër la garga mbër la c'est le lutteur Hmm. voilà a ah non. garga kenn lay def mais garga bu tuus. Yékini Junior tam mbër la de. waaw Yékini Junior mbër la. mais dafa am. mooy jantal mbëri. ah mooy jantal mbëri. non c'est-à-dire mais dafa am retard. te retard bi moromam yi mu ci nekkaloon ñu ngi ci pent bi. Mhm. donc bu ñëwee ci pente bi lay nekk rek. te garga bee mi ngi ci garga bee la mën na nekk. moom mën na mën na bénéficier ci ora par exemple. Euh, jàmbaaru wrestling jàmbaaru wrestling. c'est-à-dire tey day bénéficier wu ci ora boobu. même Garga sax su ñëwee day bénéficier wu ci aura boobu cet éventail day day day gën a day gën a. day parce que Garga manque de chance manque d' bu baax. ñu ko soutenir dëgg moo tax mu dem mais garga bu amoon ñu ko jàppale dëgg ci làmb roi des arènes lay doon garga garga ndaanaan la <laughs> garga papa garga mu tuus rek tarax laayu tuus yëkkati semoor mbër maa ngoogu danaan indi cosaan <laughs> ah cosaan rek la indi man man man boo tax fu ma gisee li may reporté la la may nettali c'est moom moom dafa nekkoon booy c'est vrai <laughs> dama ko naan dama la fan man dama bëgg mbër te vraiment Garga Mbossé c'est le lutteur. waaw Garga day indi cosaan kii itam da doon ah, indi cosaan. Paul Maurice. ah non Paul ah, Maurice ak Tidiane. ci la bokk waaw Paul Maurice non c'est vrai <laughs> indi cosaan quoi da ngay gis même même même France sax day indi cosaan. mais ana Paul Maurice. mu ngi fi mu ngi fi mu ngi fi waaw. voilà donc c'est un léegi ñu dellu si waat nag léegi ci carrière bi nag yow. carrière bi nag c'est-à-dire man dama bëgg mu ñëw ci erreur arbitre yi foofu quoi cest diir dire ñuy génn combat lan la ci lan lan appréciation la ci am quoi. waaw pour ñu pour ñu parce que gis nga ñun ñëpp ay nit lañ. Mhm. xam nga jour jour def naa erreur ci sama diggante ak yow. Mhm. boo ma ko waxoon sax peut-être ko bàyyi xel. Mhm. mais erreur bi jàppale arbitre pour man ñu jël vaar teg ko ci làmb ci ñu. vaar bi ñuy bañ. wala vaar bi gaari coow. mais keroog vaar am na. jour boobu vaar am na. mais affaire bi daal ñëw rek affaire bi nag kabaj fay. waaw non am problème. waaw léegi nag mais vraiment bu doon affaire boobu baax na. mais loolu vaar la. baax na de. parce que keroog vraiment bi mu ko wonee ñëpp gis nañu chute am na. léegi. moo tax moom ci ñoom ñii laa ñëw. pourquoi ñoom mënuñoo am bureau ci biir. waaw yow ma dégg. bu coow amee ci biir làmb. ñu jël ménagère bi ak ménagère u kee. encadrement maanaam coach bi ak coach bi ñu dugg ci biir. ñu vérifié bu ñu xoolee. mais Sa lu ñu wuti ci biir nañ ko def ci biti. déedéet maa ngi ñëw maa ngi ñëw maanaam ah, dafa am loo xam ne dañ ciy jiital waxtaan. bu ñu demee ci biir ba ñu xool. Uh-huh. xam ne lii am na. yow mbër bi ñu daan. Uh-huh. nga ne eh, sa mbër bi dañ ko daan. même booy fay sa vingt cinq mille sax nga fayee ko foofu. non man je suis parce que man moo ah xaaral ma yëgale benn <laughs> léegi bu ñu paree yow mi nga xamante ni sa mbër dafa daanu. peut-être yow mën ngaa jiitu ci noppam na ko booy affaire bi de lii ak lii ak lii mais tënket bu ñu paree ñu teg ko ci écran bi ñëpp xool. ñëpp xool ko. mais bu ñu xoolee nañu xam lii moo fa am parce que moo nga dina noppal sax coow yi am ci làmb ji. xam nga pour man waa làmb ji ñoo bañ. waa CNG ak ñoom Babacar seen règlement mayu leen loolu mais bi nu woonee jël bi ci écran man bu doon man la may arbitré damay woo leen ma Sa Thiès mu ñëw ma yëkkati loxo. non c'est-à-dire effectivement c'est euh, après télé bi c'était clair et net même ñun même ñun. waaye dans l'encadrement. bi ngeen toogee. non xam nañ ni y avait y avait y avait une chute. et bi nit la. mais si ma falaa ko il faut xam ne arbitre nit la. maintenant dafay juum. peut-être action bi ak ak. combat fu mu toll. ba pare moom action bi gaaw na daf ñu tiim. mais mais xam nga ne gën maa tamit doo ko indi si biir combat lu loolu musul am. lu musul am mooy am benn jour. c'est ça am. voilà léegi lu musul am am jékki-jékki rek am. voilà léegi nag ñu xam ne lii de ah. loolu moo tax en fait moom proposition dañ ciy d'accord c'est-à-dire VAR dafa bokk ci làmb. dafa bokk ci sport. soo xoolee non non cest à soo xoolee sax gis nga soo demee CEDEAO faar bi day toog. waaw waaw drapeau chef d'état bii. day am faar. faar bi day toog li ñuy woowee faar quoi ñun. Euh, soo demee beach wrestling. waaw da nga gis athlète bi nekk ci biir ju daan ko sax mu def signe. Mhm. écran mhm. ñu xool yu bëri ni écran bi ñëw joxe résultat. c'est vrai dañu war a évoluer. il faut ñu évoluer vers vers ça ba si début lay passé sax. Mhm. Malick Ngom nee na ma sunu boobu ñu tegoon noonu. di mais de 10 millions da leen di aidé lu bëri. waaw non ça def ñu géej mais mais nag mais nag mais nag comme que comme comme comme VAR lay tudd. waaw VAR est-ce que amul ci euh, simple yi. Euh, VAR amul ci simple yi. simple si alors simple simple. c'est-à-dire simple da ngay ñëw africaine indi indi indi indi euh, sa preuve quoi indi sa vidéo. ñu xool attale ci. Ah, rapidement après après tournant bi. mais comme li nga wax nii c'est-à-dire su boobaa. comme suñu salle bi par exemple mën nañ ko utiliser. Mhm. mais uniquement des arbitres. Mhm. parce que on peut pas être jugé parti. waaw c'est-à-dire mënuñu par exemple tey sa manager ñëw. Mhm. manager Reug Reug ñëw. ñuy visionner kii bi ce sera très difficile. nga nga nga nga. pour ñu xam Babacar pour nga gindi ma. est que loolu dina gaaw. si mën na gaaw. recours yi tax xaalis recours yi. no non non su boobaa su boobaa su boobaa dañuy <laughs> accompagner rek. <laughs> Babacar. Hmm? kii li mu wax c'est très important xaalis recours du dara xaalis recours c'est ay vingt cinq mille francs waaw parce que non li ma jaaxal mooy même bu même en lutte simple yow bëri nga lutte simple. waaw loolu li ma jaaxal gis. mbër bu nga xam ne tey dafay ñëw premier premier euh, tour. Hmm. te du ko wóor sax ni mooy jël combat bi mooy jël euh, final bi ñu daan ko. mu ñëw indi vingt cinq mille. def def recours. waaw mais lu tax lu tax moom bu gañee ci biir hmm? lu tax ko parce que parce que bu dee loolu waaw nga ko ñu téye ko. déedéet non ko war a non kon kon kon kon nga tegati. bu deful ah. nekk da nga perte bu ko téye. waaye déedéet non soo cest à xam nga yow tu da nga daf lay di wóor nii yow yaa am dëgg moo tax ngay ñëw. di indi donc soo indee y a une commission bu xam ni du du les arbitres. ci ñoo gérer ñooy gérer loolu. comprendre parce que tey ñooñu ñooñu euh, tey ci taable bi ñoom seen honoraire bokkul ci ci frais d'organisation yi. bokkul ci pour te su fekkee ne en lutte simple la. Mm-hmm. xam nga mais su fekkee ni. ci kii bi la euh, en fait euh, ci kii bi c'est la la commission réglement et pénalité ñoom ñooy dem àtte ah. mais comme nu sport léegi exigence bi cest tey c'est vrai lu mbër yi di avancé c'est c'est normal parce que daan tey ñu war la jox sa victoire tey tey tey ñu xaar deux jours trois jours la ko jox Mm-hmm. aussi beneen effet. mais nag Babacar am sax une fois. Hmm? xam nga combat bi Sa Thiès bëri ak Reug Reug. Mm-hmm. toog ngeen deux jours doo ko jox victoire. Mm-hmm. mais boobu Sa Thiès moom xam na ne daan na Reug xam na ne daan nañ ko. amateurs yi ñëpp xam na ni. balaa ñuy génn stade bi xam nañ. bi ñuy génn ñëpp xam na ne Reug Reug daanu na. parce que loolu amul amul woon problème. non xam nga ñenn rek ñoo ko xamul mooy ñi ànd ak Reug mooy gaa yi toogoon foofu. <laughs> non xam nañ ko sax. doon sànni ay xam eh, nañ ko. non non attends c'est xam nañ ko de. non non xam nga des fois di nga xam làmb mel noonu. <laughs> di nga xam ne daan dem waaye yaay fay nekk di yuuxoo ko xataraal <laughs> mais mais nga boo toogee fa ne man saa waay ji nag koy jàppale waaye xam naa ci leen nag daan nañ ko euh. loolu dafay am. as lutte avec frappe bi tamit làmb ju mag boo amee dix lampes yi ñuy taal war nañ ci wax. ah parce que dañu gis ni keroog journée jàmbaar la xaw ma. Mhm. mais Malick moo doon arbitré mais dafa ñëw dana lamp yi bu ñu ko taalul du combat bi du waaw loolu moom mooy problème mu stade arène nationale. mais loolu ci la la dépendre. lamp yi xam nga 10 millions ah. mhm. pour pour pour jënd carburant. Mhm. est-ce que est-ce que ki doon tëgg jàmbaar projet indi na parce que. mais il paraît que jënd nañu. carburant bi du promoteur bi moo ko war a jël en charge mais yow tam loolu nag. la promoteur yi dañ koy joxe la baaba loolu tamit la ñu war a lijjanti. waaw <laughs> promoteur warut a jënd gasoil. arène nationale dañ ko tabax mu moderne am lépp ci biir bu dam bu jotee dafa am service tien bu ko war a mën a gérer loolu yëpp mi ngi aju ci arène bi amul kilifa amul gestionnaire ku ko war a gérer teg nan fa rek ñu koy ñu koy ñuy garder. même projecteur yëpp du tàkk. mais projecteur lamp yi commencé nanoo yàqu. Mhm. écran bi boo jëndul gasoil doo ko tàkk. Mhm. problème mu lamp yi tam ci gasoil bi la boo comme ni nga ko waxee mais loolu da dul yoon. non non du yoon. du yoon c'est-à-dire il faut que ñu waxante dëgg. c'est-à-dire gis nga gis nga il faut qu'on respecte la lutte. mais non non c'est-à-dire Babacar ñun ñoo liggéeyul ñun Sénégal. li président li mu man mooy tabax arène. def ci li ci war lépp mais la ñuy def nag ba affaire ba baax. mais kooku nag du moom moom mm. fay fee mu toog. dina fa lijjanti problème mu arène nationale. Mm. mais non defar na ba pare. léegi léegi la gestion. oui mais le ministre des sports ki nu dénk sport mm. mais na wut bàyyi bàll bàyyi bàll kay day téyel ma. arène nationale ah, directeur war na géreel ma ko kooku moom mooy gérer li nga xam ne moo fa war a am. mais bu dee loolu amul ministre yi fi jaar yëpp kenn def ko fa toujours yaa ngi toog di xaar mais lan la ñuy xaar loolu tamit dafay a doy waar. non non gis nga as as il faut nit ñi lamp yi fay. waaw keroog laa ñëw fekk ñu mbaa la ah. ñu ne noonu lumière amul. Ah. ñu dugg arbitre loolu wóorul non non mais que xam nga xam nga su lumière bi manqué mm-hmm. ah, day am ay ombre uh-huh. yu nga xam ni ay mbër bi keroog am na benn combat bu nga xam ni si euh, su fekkee noonu nekkul ñoon ay de grands arbitres uh-huh. te mënoon nañu siffler benn semblant de chute te fekk amul chute ndax euh, ombre bi pénombre bi quoi buy am si ci ci diggante ñaari mbër yi euh, Bégaay te dafa am beneen affaire bu ci am. <laughs> te li mu wax c'est important. non dafa beneen yooyu. waaw takkandeer <laughs> moo mooy garaaw beneen bi mooy cest à Euh, comme ñun en fait en plein jour sax mën nañ def erreur. waaye xam nga il faut ñu aider ñu vraiment réduire. cette pourcentage d'erreur la marge d'erreur muy benn et question de sécurité la aussi mhm. xam nga xoolal keroog on nous dit semi mooy diggante timis euh, kii bi quoi bés bi ak guddi gi ak guddi gi waaw ah waaye kon di nga dem guddi mais nga jël sa matuwaay mhm. xam nga est-ce que contrat de concession bi dañuy wax ni promoteur bi na jënd gasoil pour électricité am. te loolu amul ci contrat bi. Ah, CNG bindu est-ce que astafurlah. dégguma boog benn promoteur wax mais contrat de concession bi mais dañ koy imposer. contrat de concession bi parce que daa mel ni loolu dañ koy imposer le le le le promoteur. le pro actuellement waay. waaw léegi nag promoteur yi da ngay ñëw soo compter boo compter mënuñu dépasser. treize kii projecteur projecteur waaw. treize. treize waaw yenn saa yi du nga ko dépassé. mais ba ma keroog keroog non keroog taal nañu ba vingt vingt deux. non non mais ba ñu. xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw xam naa man damay compter. Hmm? moi je suis le superviseur non defal naa defal naa rek defal naa du Malick du Malick moo wax c'est-à-dire c'est c'est c'est une décision hein, que la commission a pris à l'instant ñu def ko. yéen bi may ñëw ci géew bi laa leen fekk. waaw ba nga ñëw du man maa la gàttandu. waaw wax la lu mu la wax. waaw nga débat. <laughs> man ne bu ma demee ca ca télé ba. voilà dinaa wax ne waa arbitre bi ak yàq làmb ji. <laughs> donc donc <laughs> mu ne ma ba nga wax ko. dafa dafa am lu nga xam ni c'est-à-dire on peut ñun ñu yaakaar ni ñun. dañ on est complice. Mm-hmm. alors que on n'est pas complice ñun dañu war a ñëw gis enceinte bi nekk dans les règles yu xam ni athlètes yi mun nañ compétir. mais est-ce que loolu CNG ci boppam waxuma nii ah. CNG. waaw compagnie ñoom Aziz Gueye ak ñooñu. est-ce que amuñu ci part de responsabilité. Ah, je pense que war nañu seet benn problème loolu bu koy réglé. waaw si contrat bi mais nga xam ne euh, promoteur bi buy fay. fay lépp en tout cas mu mu nekk mais loolu tamit ñëw bu jour ñun ñu la yaa koy fay te fekkee bon fekkee ne 500000 par exemple la lañ la wax nga ñëw bu jour bi inda indaale woo. mais loolu il faut nga fay pour ñu taal nga ñëw ba ci tout un problème. waaw xam nañ ci dara. waaw pour woo nit ki rek ni ko kaay taal lampe yi wala branchel wala defal lii. c'est tout un problème da am lampe demee. war a ñëw installer say bagages ak yooyu. c'est tout un problème am mais pour nga jot waa ji yar caabi. eh non mi ngi ci ñaareel bi wala mi ngi nekk benn côté boo xamante ni <laughs> promoteur yi xaas wala ma ngay nelaw promoteur yi xaas bi ñuy luy stade bi mais kan lañ koy ko stade bi luyeewuñ ko yaakaar mais caution bi ngay joxe pour pour tëgg non caution yi la waaw kan lañ koy jox la mais CNG lañ koy jox caution yooyu dafa am loo xam ne ci defar stade bi ah. pour arène bi pour lamb ji la stade bi gratuit gratuit la da mais gratuite la mais am teewul am na lu ñuy joxe noonu. da ngay joxe non joxewuñ dara de. joxewuñ dara mooy lan. waaye joxewuñ dara. <laughs> Babacar da nga ñëw rek yi joxewuñ dara. Babacar lu ma la woon non un million nga ñu joxe un million nga daan joxe. waaye joxewuñu si Covid bi ma ma ma alléger affaire yi quoi. non daan joxe. mais waaye national bu dee si euh, stadium Iba Mar Diop. soo gisee soo 400000 francs soo gisee promoteur bu joxe nga indi def ko 400000. amatul. yan tey ñoo dem tëggi làmb. ah amatul li loolu. li loolu. mooy loolu kenn joxewul. <laughs> et eh, Babacar. Babacar am Babacar am na lu ñuy joxe waaye. waaw yow looy wax ni Asbega wax ma diw ak diw ñoo joxe. du ñu joxe caution. waaye yow mais est-ce que frais d'organisation lan la li wax nii. non droit d'organisation c'est tiré ci ci honoraire yi. ci ci ah, ci mais droit d'or lan la ñuy fay arbitre yi. waaw arbitre lu ñu leen di fay. lu ñu leen fay. ah c'est par rapport lu ngay fay mbër yi. dafa am benn bare barem bu nga xam ne su fa yeggee. Ah, li nangam ngay joxe ñu ne la mais Pape benn promoteur foofu. droit d'organisation waaw. waaw droit d'organisation. ci lay bokk quoi. voilà léegi ah, droit d'organisation ah boo fayee 10 millions. war nga dugal temps. mais temps boobu pour mooy fay bi non. déedéet wala loolu bokkul bokkul ak arène bi dara. déedéet loolu loolu. moom la ñuy dëkk si mbër mi quoi. mais vite fait. non non question ñu ah. parce que. du mbër bi lañ koy moo koy mooy ñëw indi loolu li ma jaaxal tamit moom mooy lan moo tax surtout surtout ma waat yow moom damay dégg damay gis ngay tol parce que gis naa keroog jour combat bu laal bi ak ak pakola bi bi bulaal booy bi àndee seetu bi négocier nañ ba ngay delloo bañ ba delloo seetu bi muy dem. waaw mais ngi jékki-jékki gis Pokola dugal seetoon seetoom max na mënatu ko moom mënatu ko toléré. moom mu dugal seetoom. non parce que day bind yëpp. ah day bind ñaar yëpp. waa loolu lay por moom dina ko def mais est-ce que jotul tey ñoom. mais seetu ah seetu arbre la yëpp ah, la mais keroog keroog keroog benn waay ñaata nga fay seet <laughs> combat combat bi passé benn waay rato la fa indi rato man daal dagg nañ ma waaye xam naa ni bari na ñi <laughs> moom bu leen àq tabaatin jàppee moom mu tabaatin seetu un million seetu un million ak ah, ah, guy gi nee na lañ ko dagg cinq cent mille mu ñëw naan ma père butéel cinq cent mille boo demee ci boutique bi mais na père li ma wax sànq li am importance man wàllu lépp loo xamante ni Euh, li ñu war a xoolaat la ci ci kii bi ci. Euh, arène arène bi jot na ñoom ñu toog ñu waxtaane ko ñu xool ci yenn solution la ñu mën a def. Mhm. parce que tam ñoom ñoo yéen yéen bu diis ndax ñi njaboote dañoo bëri. waaye chaque dimanche ñu am fukki fukki doom yoo xamante ne benn bokkut ak sa borom. te doom yi jur nañ leen doom. ndax mbër ci nekk yaa ngeen def supporter mais estade bi bu jagee ñu su ñun la jagal su bonee tam ñun la. yaa mais estade bi dafa gaaw a mais man pour man li gën a métti defar nañ ko benn sa seen fans club yi ñoo ko yàq. waaw mooy mooy chaise yi. waaw boobu moom moo tax côté boobu kenn man côté yooyu man bu doon sama sago sa doom chaise. waaw non ñu moderniser. sax man saa kees loolu rek laa bañ. Euh, xam nga mën naa laa woon léegi benn image. waay football. li ma ne li ma ne su ma juumul yàggul de say deux semaines. ay tubaab yi ñaan ay nit da nangam. seen seen xeex moo gën a métti junni yoon ko suñu bopp. bien sûr xam nga ay dóorante chaise yi dañ koy dam waaw ay léegi waaw bu fekkee problème dafa am foofu mais am na solution saisi mm-hmm. dañ koy dañ koy kii heure bu ñu ko monté ñu demante ko waaw mais demante ba kañ sindil côté boobu ñu fa nekk am na ñoo xamante ne bu ñu toogee foofu kenn du doka ne bàyyi leen ak seen siis mais boo yi nga xamante yow dèjà siis boo jëlee ñaar mm-hmm. trois personnes xañ ne benn ñaar waaw ñaari siis yi ngay takkale noonu uh-huh. trois personnes mën na fi bokk toog waaw loolu dëgg la loolu dëgg la. léegi bénéfice boobu place bi day gën a yaatu bénéfice boobu baax na fa nañ ko dindi. boobaa nag boo gisul 16. sax gisul weñ moderne. mais nag euh, moderne fépp la. gis nga dem naa seetaan masse Paris. Paris ñu am côté boo xam ne da la tuddee le fou. waaw waaw <laughs> yaa ngi dégg. mooy kiiwu parisien yi supporter yi gënuñu ñu leen tuddee dañu waxtaan te bu ñu jógee dañ naan ñoo gën a civilisé mais li ñuy xeex ñun duñ ko xeex mukk li ñuy yàq duñ ko yàq li ñuy coow ci ah, ay seen sport duñ ko ah, coow lan la mooy problème bi ñoom bu bu match bi tasee chaque match muy Marseille muy Paris bi passé amul dañ koy defar balaa dimanche di jëm fat nañ ko parce que bala ñoom am nañu xaalis bu ko defar mais fii boo defaroon tey bu beneen yoon dootoo mën a defar mais na père ñun dafa am ñu baaxoo ci ñu sport ñun yoruñu football yoruñu leneen yoruñu yi ñun sport bi la xam te boo fàttalikoo tey sa koñ bee stade bi ñu daan bëree foofu démb jóg <coughs> boo xoolee fañ daan toog ci ñaari camp supporters yi amul siis déedéet ak a néewoon li nga fay dégg ay coow. Mm. ndax amul coow pour ñu coow ay xeer la yi dem jëli. da ay génn ci biti booy. ñu léegi duñu duñu dimbale loolu mu am fii. non non mais mais xam nga dafa am benn affaire bu nga xam ne tamit il faut nit ñi ñu nangu ko mooy que cette war nañ ko mën a arrêter. mbër yi écurie yi war nañu mun a wax ak seen i chaque écurie xam nga tey arène nationale bijou la chinois yi ñoo ñu ko defaral may ñu ko imaginer la yow tey nga dem Chine. ñu ne la eh, loolu la gars yi di bañ lutteur. gaa yi nee naan gaa yi ñoo ci def 34 milliards yaa ngi indi problème. non mais mais mais xoolal image rek. xoolal <laughs> dañ naan dañ naan dañ naan lan. sama télé dañ ko bind dañ ko bind. <laughs> ñu aj dañ ko bind. Euh, en rouge. <laughs> ñu def don. de la République. de ah. Chine. Uh-huh. c'est écrit en rouge. don don mooy may. may dañ ko may. ah comprendre nga ñu may ñu ko. Mm-hmm. donc ci wàllu diplomatie war nañu mën a ñun. gën a préserver outil boobu ñu ñu may ba nga xam ne tey chinois bi bu ñu ko may su ñëwee am fu mu toog mhm. xam nga parce que ñooñu di yàq waru ñun dicter suñu loi ñun wala seeni loi ba tey lu lu am rek ñu ne ok nañu raser léegi ñëpp comme nga mel ni ñun Sénégal waruñu nekk dans des stages dans dans dans des euh, kii yu nga xam ni standing wu confort confort sécurité affaire yooyu non dañ ci war a nekk gis li ngay wax ni ay Parc de Princes wala feneen a feneen c'est vrai stade bu nekk rek. am nañu ko de dina am ñu fa nekk. mais képp ku fa def dara <laughs> képp ku fa def dara dinañ la identifier jàpp la. waaw dem. condamné la yóbbu la justice. waaw te dootoo duggati ci stade. dootoo duggati ci stade. Babacar fii amul benn mbër bu mën a wax. bu mën a jox ay supporters am ay instruction mënul ah, nekk déedéet du instruction non déglu ma rek. <laughs> mais question de sensibilisation. mais quand même déglu ma rek loolu mënul nekk parce que mbër li ko ah, topp ñoo bari. wallaay ah, na nekk de. ah nekk loolu c'est impossible. sensibilisation mbër li koy topp ñoo bari. te yemuñu xamul ñëpp. te yemuñu man benn problème benn problème. ak ni ñëwee ci problème la am waaw xam nga siège yi am na fu mu yelloo wax ñu dañuy dindi lépp. ñu jënd yi nekk loge annexe loge. ñu parce que gis nga quand même la benn affaire supporters yi daan toog ay 2004 2006. waaw ñu daan toog di tëgg seen asiko di yëngal di fecc amuñu ko fii. waaw dafa ñu bàyyi xel ci loolu. te gis nga stade bi. change stade bi arène bi moo changé. dafa rafet dafa civilisé dafa tubaab ba mopp. waaye am na benn côté boo xamante ni nag. xoolal lii ah, dafa rafet ah. unde nag nañu waxante dëgg. Ah. am na côté boo xamante ni soxlawul 16. bàyyi fa supporter ñu toog. mooy fee fee nit ne gi nga fee nit ñi ne. xoolal foofu rek lii lii nii supporter yi dindi ko da ngay noppalu. mais léegi yëpp jàll ay jàll jàll jàll. dana gën a jàll ak <laughs> te ci yàlla <laughs> mais l'essentiel lii dafa rafet. xam nga lii lu rafet nii. ñu jël ko yàq mais as da ci gën a grave mooy supporters yi dañuy tiim nii tribune amateur. di sànnante ay 16 16 yi di jël amateur te loolu. wóorul ma man ah, man ak Tidjane ñu ngi wut licence. pour tëgg combat arbitre yi ñoom seen biir. <laughs> ci seen biir. waaw ñoom lay bon léegi balaa ñoo pare tamit. Euh, Gris Bordeaux Ama war nga sànq yaa ngi woon si carrière wu Sathié wala garaaw. non ñu ñëw rek. ñu ñëw Gris Bordeaux da nga baax looy. déedéet déedéet yow yaa ah pour man des perspectives. non loolu mooy bu ñuy tàggoo rek. waaw waaw ah, d'accord loolu wax nga ne. Gris Bordeaux Ama Baldé coow li bari na. le premier octobre le premier octobre ñu neen mënoonu. loo yaakaar ni moo ci war a mën a. Euh, man dégg naa ñu ne semaine bii di ñëw maximum bon Fallou Ndiaye comme moom la Ibrahima Diop doon yebal CNG comme ne ko nee na ma semaine bii di ñëw au plus ñu am nañ yaakaar ne CNG dina leen woo ñu waxtaan parce parce que boo xoolee waxtaan yi ñuy waxtaan keroog yëpp waa kër Ama bokkuñ ci waxtaan bi. Hmm. CNG laa fa gis c'est kawu Ibrahima Diop ak ak waa Fass te nag Ama Baldé tamit mooy. kenn lu bëre ñaare bëri waxtaan sans Ama bëre ñaare il faut ñu waxtaan ak Ama Baldé bon naa waa Fass tamit nee nañ. Ah, man ko waxoon naa leen. mooy waxtaan ba waxtaan moom waaw nee noonu. du bëri le premier octobre loolu la ñu wax. Ah, sa en deux mois ma nga ci préparer ba a ah, ci condition nga boo nekkee ci li nga war a nekk. ma mhm. nga ko préparer c'est un mois. deux mois loolu dara. am ah, boo mee di bëri six mois sept mois moom. wala at bu ne benn yoon. baaxul boo keree <laughs> yaa ko teg sa bopp mais bu dee yaa ngi entraînement rek <laughs> yow avance. yaan mi xam na la ma koy wax. deux <laughs> nag làmb aajuwul six mois aajuwul sept mois. xëy na dëgg la promoteur bi dafa am loo xam ne ci te promoteur bi dafa sonn. da day sonn. Ah, ah, dafa que xam nag a diir ñun suñu xaalis ci gën a dem rek. li muy gën a jege gën ñu arrangé. waaw mais promoteur bi xaw ma dina ko arrangé. si promoteur que tamit promoteur teel a bëree ko arrangé ah, ñun suñu problème. lii bokk na ci. lu mu wax dëgg la wut ay sponsor yu doy. sponsor yu yu mën a sigil làmb. Mhm. ñu nekk suñu wet. bu ñu paree mooy promoteur yi ñu jéem di waxtaan comme ak mbër yi ni ñu war a waxtaan ak staff ak encadrement bi li nga war a fay nga fay ko mbër bi moom it naam ngor ba bu ñëwee bëre neexal làmb ji ba bu ñu paree promoteur bu gis ci boppam mbër bi gis ci boppam amateur bi gis ci seen bopp askan ñi lañuy seetaan gis ci seen bopp ñëpp kontaan c'est vrai c'est mois mooy comme li may expliquer rek waaye Sa Thiès il faut ñu ko wax ko comprend affaire bi mu demee comme Gris Bordeaux dafa jóge sa blessure mhm. que dafa ah, Dakar. Ah, mais waxal ma foofu de. non eh, non wér na wér na. Eh, wér na non damay ñëw pour gën a comprendre. ah ok c'est que boo gisee. Bécaye laaj na lii nii dafa waree ne carrément Gris Bordeaux dafa wàññi. ne du bëree le le le premier bi. waaw mais mënu ko préparer en un deux mois. tiijaan waa loolu important rek Bordeaux nee na wér na. ah non dafa ni comme nit comme nee na ñoom mënuñoo bëree. Ah. wér na waaye convalescence la bëgg a la la le premier janvier. le premier octobre kon ça veut dire que ñoom mënuñu préparer deux en deux mois. en deux mois ah, loolu ah, laa moo tax ma posé kii question bi man noonu laa ko ko mën a posé. <laughs> loolu laa ko mën a kon mais ma ngay liñ jàpp. ah non tontu ko ba pare. Eh, ay non moom eh, eh. tontu ma loolu. non non c'est super. bokkul ak loolu yow tontu woon nga ko sax sànq sa développement <laughs> wax nga ni c'est-à-dire su ni yow dugg nga si benn saison. di def li nga war a def. boo ci nekkee. soo si nekkee. waaw c'est-à-dire mën nga bëre. ku moom et puis sax xam nga am na ah, saison bi benn yoon nga ci bëre. waaw loolu yoon c'est pas normal. yow waroo ci bëri trois combats. Oh, wala quatre combats. dëgg yàlla. mais noonu la daan bëree. waaw loolu ko daal lamb ci sensé wu la. Ah. mais léegi daa tamit xaalis bi nee na. mooy tontu bi moo bëri as. xoolal ragalante promoteur yi promoteur yi eh, ñoo xaw a yàq foofu. mais normalement mbër war naa bëri. trois fois adversaire yi ñu de. mais mais Modou Lo Modou Lo Ama Baldé. war nañu ñu ne ko yaay roi des arènes. war nañu ñu ne Modou Lo bu yàgg yàgg dama lay wax ñu ne ah. bu bëree ak Ama Balde Ama Balde daan ko ko kuy doon roi des arènes Ama Balde. Ama war naa doon roi des arènes <laughs> mais kaay la ñu waxtaan dañuy waxtaan man man man dama dama dama honnête. waaw xam nga mais Ama Balde toog na 4 ans bëriwul. bëriwul kan la war a daan fii pour. war na nekk roi des arènes roi des arènes di dem di bëri ji Ama Balde. na jël ay responsable ñoom sax c'est-à-dire ñoom ñoom teguñu Modou Lo roi des arènes roi des arènes ñoom Bécaye Mbaye ñoo ko ko def Modou Lo mooy Modou Lo du roi des arènes bu officiel. presse bi ñoo ko tuddee roi des arènes. mais c'est pas le CNG. mais war a jël seen responsabilité. ni Modou du roi des arènes. Ama Baldé Modou ku daan doo roi des arènes. parce que il faut ñu defar làmb ji. mais di nga remonté non CNG nee na CNG mosu leen def roi des arènes lañ nangu muy bu Manga 2. Manga 2 du bu taay du Balla Gaye du roi des leen ko tuddee woon parce que presse bee la tuddee roi des arènes. mais du officielul fenn amul benn këyit booy dem CNG ñu ne la Yékini roi des arènes. Mhm. Gris Bordeaux roi des arènes Bombardier roi des amul. ñun la presse. mais nag man gisuma ci texte euh, euh, ci ci texte CNG ñu ne le titre de roi des arènes am na fu ñu ko bind gisuma ko. amul amul xam nga non c'est-à-dire. aussi ñoo créé roi des arènes. voilà c'est-à-dire c'est c'est c'est créé c'est euh, être du temps de Manga amoon na lu ñu officialisé woon mais depuis lors amul lenn lu officiel ci roi des arènes. ci roi des arènes. mais maintenant. Uh-huh. dafa war a nekk une exigence. ah bu nga xam ni tey. ñu taxawal waaw ñu taxawal ko. ok ku nekk ñu institutionnaliser taxawal ko. ñu ñu ñu ñu taxawal ko. mais moom dafa sànq dafa doon développé développement yu intéressant parce que làmb euh, promoteur il faut mu am benn. temps pour jaay combat am aussi am recevoir ay sponsor ak yooyu man je dis euh, lamb dafa manqué léegi euh, des lutteurs à la trempe de Tyson et à la trempe de Yékini man gisuma loolu waaw man loolu la oh, man nga argumentaire quoi xam nga xam nga xam nga lu tax parce que ñooñu dañ doon mën a jaay seen combat xam nga am na lu nga xam ni vraiment demoon nañ ko ba teye ko sax ñoom au niveau sponsoring tey dañ doon bëre wax am ak euh, le le le promoteur sax beneen contrat moo xam ni du bokk ci contrat wu. Euh, bi ñuy bëri waaw ah bi ñuy bëri ah non dugg na fi moom ak Bombardier wala moom ak kan la moom Mor Fadam bi ñuy bëri Tyson indi na fa sponsor concurrent wu sponsor promoteur bi. ba mu indi fi benn problème. xam nga par rapport ak problème bi fan la ne. Hmm. dëgg la am na ci mbër mais am na ci problème mu promoteur. Hmm. promoteur dafay am argument. Hmm. promoteur dafay am ay bagages day am relation day mën marketing. day am image. am image am une personnalité promoteur yii fi nekk ku fi mën a dajale ñaari sponsor amu fii Gaston mën na ko Gaston buy ba tëgg ay quinze sponsor la koy gis euh, alburax euh, alburax wala Aziz bu muy bëri dañuy indi sponsor Luc Nicolas buy bëree day indi sponsor mais ñii di promo mbër yooyu ngay wax dañ fay fekk ay promoteurs yu leen protéger yu leen accompagner muy Tyson muy Yékini muy ñoom Tapha Gueye ñoom Balla Gaye boobu lamb ji meloon noonu mu meloon c'est parce que les promoteurs dañoo amoon ay sponsors yu leen accompagner te ñoom dañoo am ay argument yu ñu yóbbu ci sponsor bi ni kon lii laay tëgg lii laay def lii laay def koo ko gis ci boppam mais léegi promoteurs yi amatuñu argument boobu qu'on se la vérité. est-ce que amul sax ñuy dem di yàqalante seen. mais dañuy dem. parce que yow mën ngaa tëgg lamb. waaw nga dem ci sponsor bii. mu jox la dix vingt millions. oui ma dem ci moom laaj ko quinze mille. quinze millions wala dix millions. mais est ce que bu yàggee yow. li may fere ka kii ma gën a moins cher ma jox ko. mais bu dee mbër. mais mbër yaa ngi fi. waaw Modou Lo am na personnalité. Hmm. Balla Gaye am na personnalité. Hmm. Eumeu Sène ku ko tëgg mën nga am ëpp sponsor. Tapha Tine mën naa Bombardier la même chose bu dee ci problème mu mbër dëgg la nag ñële amoon nañu standing bu Tyson classe la. qu'on se dise la vérité classe la. c'est ça Yékini classe la. mais ñoom Yékini dafay fekk Tyson dafay fekk euh, ma euh, Gaston fekk Philippe fekk fa Aziz Ndiaye ñooñu mën ko tënk. c'est-à-dire mais ñii seen amuñu chance boobu promoteurs yi ñu dajee. dama bëgg dama bëggoon wax ni. cest à soo soo gisee ma euh, lim ñaari mbër yooyu. ñaari mbër yooyu ils ont un fait un travail xam nga sur leur personnalité. waa ba nga xam ni le ñoom en tant que produit. Mhm. xam nga mënoon nañu récolter lu bëri. waaw c'est vrai waaw beneen bi mooy. cest dire tey tey tey ñoom je pense bien que par exemple ils peuvent aider la lutte à avoir leur sponsor des sponsors waaw Tyson ak Yékini peut-être Yékini mais Tyson est-ce bëgg na làmb ji non c'est-à-dire. Euh, mu génn ci làmb ji. ñëwul def ci làmb ji dara. Ah, mais est-ce jotu tamit ñu woo ko. voilà cest ci bokk ci kuréel bi ba bëggee dëgg da parce que y a problème moom moo gis ni làmb buntu la. non non c'est parce que du dëgg. Bécaye parce que am na problème <laughs> tey am na nga naan xel du doy voilà ñàkk xel bu doy moo tax ma ne est que jotul comme moom ñu woo ko mu ñëw am na ko ci yenn kuréel bi maanaam li nekk ci moom te nekku ci ñun Yaxya Jóob Yékini c'est ça Yaxya Jóob Yékini kenn woowu kenn woowu non merci dafa xam xam li ko dafa xam li ñëw ci làmb gis nga tiyaat di ah, tëgg ay làmb ay ñu fonctionner noonu c'est-à-dire c'est vrai c'est vrai euh, loolu loolu ñuy def mu ngi dundal làmb mais lu gën a dundal làmb il faut qu'on se le mooy le sponsoring. tey un Tyson wala un Yékini. Tyson ah, nag mi ngi ci pétrole su ñëwee su ñëwee par exemple. Tyson naan ba lay koj. su ñu ñëwee su ñu ñëwee su ñëwee par exemple ànd ak ay promoteurs. waaw xam nga wala nekk derrière des lutteurs. je pense bien que ni sponsor ñoom par rapport à personnalité rek mun nañu am benn influence bu mag ci apportu sponsor. ana écrit pour faale am na bale ah doo ko dégg na ku fa nekkoon Aliou Mané léegi Amérique lay dem ku koy jàppale kenn kenn ah, ban mbër a fa nekk ay Boy Valdo ñoo fa desoon Valdo ah? moom moo Valdo. Gambien def wala Valdo carrière la. ku ndàq bëre Valdo. mais jàppale wuñ ko pour mu mën a dem. parce que ñoom tam seen écurie seen bopp la woon. Hmm. Yékini bi mu jógee Ndakaaru la Ndakaaru tas. Hmm. après Yékini Ndakaaru kan moo nekkati Ndakaaru. Hmm. c'était unique dafa mel ni danoo defaroon Ndakaaru pour Yékini. danoo defaroon bul bul faale pour Tyson. mais bi ñu demee seen écurie yi dafa Yékini sax mun naa ko parce que Yékini mi ngi tëgg ay làmb. waaw d'accord na mais ci lan la tey dañu yëngu ci làmb. waru xaar ci woo ko sax man d'accord lan ñu koy d'accord ma fu mu xaar ñu woo ko parce que tey jii lu mu def lu mu doon rek làmb ko def. làmb ko def. waaw dama d'accord nag vraiment. pour c'est les personnes yi nga xam ni qu'il faut aller. les voir. voir pour ces problèmes de sponsoring. mais pour lan. non oui c'est c'est apport la apport la pour làmb ji c'est-à-dire bu leen bu leen gisee noonu apport la pour làmb ji. xam nga seen écuries yi ñu nekkoon tey nekkatuñ fa. kii mais les écuries là am na ay dirigeants. mais un dirigeant da nga war a réfléchir lu lu lu lu. lu war a politique politique bu baax. Ah, waaw effectivement xam nga pour pour pour lu tey sa sa sa sa sa écurie. man dama déggoon ne sax dafa bëgg euh, kii nii euh, présidence nekk CNG. kan Matar Ba man ministre. ko déggoon vraiment def na ay pas ñoom ñëpp avant muy samp CNG bi woo na leen. woo na Yékini woo na Tyson woo na ñëpp. mais il n'a pas maanaam. na passif bi mooy xam nga ñoom ñaan ñëpp nekkoon nañu seet ji moom war a delloo waat Tyson rek Yékini nekkoon nañu seet ji xam nga ay waaw woon nañ leen am na yëg <laughs> am na yëg ci nit am na yëg ci nit am na yëg ci sport bi kan ministre bi mooy ministre des waaw man c'est-à-dire da koo talul. kan la <laughs> mi ngi calculer kan la mi ngi calculer kan ñu ko joxal mu tal la leen ci kanam. dëgg yàlla. Matar ba daa sant amuñu ko. ah waaw dëgg yàlla. ñu ah, ñëpp moom lañ sant wax dëgg yàlla. Eh, semaine passée demoon na euh, final nawetaan bu amoon fële. kan la Kaffrine xaw ma. kan <laughs> premier ministre bi. Amadou Ba Matar Ba daal daanu ko woon sax daanu nga ci laam. déedéet non Matar ku ko mu jël la. waaw ku am sa xalaat ñëw jox ko. da lay déglu da lay déglu su baaxee mu utiliser ko bu baaxulee mu ne merci jël jëf waaw xam na lépp. xeeblu football bi xeeblu dara. fépp la doon def gis nga ni ku nekk dafa am fu ko yàlla cërale. waaw Matar Ba yàlla ko cërale ci sport. Mm-hmm. bu fekkee li ma wax da ciy gis dina ah ah <coughs> Ba moom lañ moom lañ bëgg ñun suñu ñu su suñu làmb. suñu làmb wax dëgg yàlla am na suñu jot am na suñu yéene. man te noonu la mel ni nga wax nii noonu la mel ci football bi noonu la mel ci basket. sport fépp lay dem man Matar ne sax damaa bëgg su ci làmb gis eh, lu mu yàq waaw comme lan. moom Matar gaaw ci comme lan yoo xam ne. ci na yu yu bëri yoo man. man ministre yi koo ci gis ku ñu tuddeewul làmb doo ñëw ci doo ñëw ci làmb mais Matar ku ñu tuddee sama gunge la. billaah waaw. acca nga ni nga ne Matar bu ko tuddee. Eh, abu ma ne yéen ministre abu bàyyil kii wax du ma digal wax Sathiès eh, eh, <laughs> kii bu ko bàyyi mu def dafa ni am na lu baaxul lu mu def dama ne damaa bëgg mu wax loolu lan la bokk naa si ñi nga xam ne apprécié wuñu la la manière de faire de Matar voilà bi kooku droit la quoi doon jigéen man d'accord Matar Ba bëggul ku ko critiquer Ba bëgg na ñëpp ànd ak moom ñun ñëpp ne gongo te ñëpp googu amul amul yàlla sax amul loolu Matar Ba boo boo boo demee sotti te yow benn benn benn médium nga jël ko dal si kaw mu woo la bureau bu nga ñibbi mu jox la enveloppe ni la paasal loolu mooy sa sa sa sa sa làmmiñ lañ tëj ko waaw Matar Ba noonu la man boobu c'est une gestion mais CNG bii tout ça la xam nañ. Mhm. Matar Ba loolu loxoom mu ngi si. Mhm. loxoom gi gi génnu si. lan li si samp CNG. oui moo ko fi samp. ni <laughs> mais mais ni ko sampee. Abou man man je trouve que ni Matar Ba. c'est-à-dire sincèrement. il a benn gestion démocratique de le sport du sport. Hmm. sincèrement. Hmm. parce que moom acteurs yëpp dina leen woo. waaw da ngeen dajale. ñun ba ñu amee différent ak le CNG. le CNG il nous a appelé plus d'une fois ñu toog waxtaan démocratique. mais moom woote wo xaaral woowul waa waa Lille xaaral non xaaral rek. xaaral c'est-à-dire dafa am lu nga wax léegi. gis nga soo ñëwee nag. mais mënoo woo ñëpp ah. mais non astafurlah mënoo mënoo def lépp baax. dafa am lu mënul ñàkk. attends parce que ba mu soxlaa mobilisation mais man mais man mais man man mais bu bu muy consulter man xam nga ay actam ay actam laay wax par exemple tey ba muy def le comité directeur euh, du CNG. mais doyen Ngor Semou mu ngi ci biir donc. maa nga mi ngi ci biir. waaw waaw waa lu simple ñu ngi si. ñu ngi si mu ngi ci biir. ñooñu ñëpp Yékini mu ngi ci biir. comité directeur euh, CNG. waaw waaw ñoom ñu ngi ci biir. waa lutte simple c'est des c'est des personnalités de de de la lutte simple. loolu xam nga naka lañ. waaw xaaral rek dañuy waxtaan non non c'est-à-dire c'est-à-dire man. abu ku mel ni ku mel ni Matar Ba xaaral ma yeggali ba joxul gëdd. xaaral ma yeggali xaaral ma yeggali abu ku mel ni Matar Ba. xaaral ma yeggali xaaral ma yeggali bàyyi ko mu yeggale. bàyyi ko mu wax mais bàyyi ko mu wax. dimbali rek tuuti. même bi mu fiy def. ku mel ni Matar Ba dootoo ko am de. nga de. ku mel ni Matar ba. ci sport mais bàyyi leen ko mu argumenté quand même. football bi ci lamb bi ci basket bi mais ku ne ku ne amuñu gisee. waaw d'accord mënoo def lépp baax. Matar ba argumenté ñu waaw fi fii woon nañu di di di consulter. gis nga mu woo waa waa waa lutte sans frappe. xam nga nag. woowul Manga eh, Manga déglul da nekk nekk roi de ni mu wooyu nit ñi si ay ay ñeme ngaa woote Sénégal ci lamb woo Manga de. Mhm. kenn ko le le roi des arènes le na ko di le CNG mais kan la woo waa waa lutte sans frappe nga xam ne Mataraba di leen woo. attends bi bi ñu ko wee bi ñu ko defee reproche ci la dem gaaw woo woo maire Ngédial bi Alpha Sam dem woo ñoom Ngor Semou yow nit boo ko ñu mu doon woo ñëpp da lay woo la la veille deux jours avant ne la yow bàyyi bàyyi wàll tey la vendredi dimanche ñu ñu ñu ñëwal bureau ñoom ba ñoom kii 11h lañ leen woo ne leen à 13h ah, ngeen ñëw si même jour la ñu woo ñoom Ngor Seck ne leen 13h ngeen ngeen ñëw lo loolu mooy woote. parce que dafa amoon une France une France boo xamante ne dafa rebelle wu mu ne non bu ñu defar. nañu jéem a gaaw woo. waaw c'est bon paay ñoom dañoo bëgg wu rek. rectifié na rectifié na xam nga man man man loolaa doon wax c'est-à-dire moom moom sincèrement fu mu sentir nii problème am na fa. xam nga woote na nit ñi dajaloo xam nga mu boole leen. quand même de impliqué vraiment doon nag tey jéem wut consensus. no impliqué na ñëpp soo xoolee soo xoolee léegi seen CNG bi nu mu mel. gis nga Babacar. soo bañee ku la mere. waaw ah. gis nga àddina. Ah. boo nee da nga da nga. bëgg kenn du mer ànd ak man. loolu mooy mënul nekk. Hmm. loolu idéal la mënul nekk. waaw Babacar li Matar ba doon doon bëgg mooy. ñëpp ne ànd ak mënul nekk. non àddina yàlla sax. kenn ñëpp ànduñu moom loolu moom da ngay nangu teg say say say mbir saa kees nangu nag nagul yow amul conviction ne lii ma teg moom moom lii mooy am li bi kay wax nangam sa doon nekk. mu teg conviction. man xam nga xam nga nit lu nga dund ak moom ngay mën a. ngay mën a seere. man man dama dund dund ak moom loolu. waaw ma dund ak moom dama ñëw ak def. lii la ñuy wax kërëb kërëb. ñoom Malick ñoom Sidor lii lii lii lii. Hmm. mais moom il nous a compris il nous a dit ok li ngeen wax dëgg la. ah euh, boobu yéen du ma du ma du ma nekk fii. di kii la tension était telle que. Ah, waaw je vous invite vraiment ñu ñu toog di régler problème yi ndànk par ndànk. mais c' bien. c' bon c' bien. en tout cas en li ko li ko bañal ci sport bi xam naa ne. lu mais daal Sénégal mënul toog sport bi nag Sénégal mënul toog te du am pendant xam nga ak sport nu mu amee solo. sport bi toll. comprendre euh, voilà te amul un ministre. waaw le département département sans ministre mais nag mën c'est pas normal et puis mënoo gérer mbay mi c'est pas normal moom moo gérer élevage waaw élevage ak sport dañuy sport rek état la waxu balaa nag dañuy dem ci ay échéances yu bëri waaw ah, sport rek ah, gouvernement non dëgg la ah lépp ngi ñëw lépp ngi ñëw ndaw ndaw ah, ndaw ah. l'ancien directeur de cabinet mooy son conseiller sportif mais mënul xam yëpp ci xam yëpp et ñu ngi koy ñaan président de la république fan yi fan yi rek bu réglé problème mu seen parti yooyu bu ko réglé <laughs> candidat bi benn sa candidat boobu président boo ko réglé nga jàpp ci kaw nga jàpp ci moom rek ko sax wartu wartu mën a tax <laughs> xam nga xam nga kii tamit dafa bokk bokk ci ñu ñu yaakaar ni moom la ñuy taal ah, moom it xalaatam yëpp nii foofu affaire bi dafa doy waar mais na liggéey rek yàlla baax na li ci des yëpp ki ci war a li ñu jiitu ki ci war a jiitu dinañ ci yëpp nag Sa Thiès loolu waxoon ma laaj ko ko problème mu technique balaa ñoo pare waaw technique ah? fi ñu sol carrière bi laay laaj waaw waaw waaw ci li des franc moom ba ba bëree woo franc <laughs> yaa wax loolu no non dama ne bëgguma bëree gun actuellement. mais ñoo bokk benn génération. waaw mais bëree woo moom. fi toll bëree woo moom bëri man sama soowaam moom laa wax. beneen bi ci des mooy dama am kilifa. Mhm. am ay encadrement ak sama staff. ñoom nag ñoom ñoo may jox loxo. jox ma tànk na ma jógal jaar nii ma jaar nii. yow ki nga bëgg ëmm man fi ma non non ñoom ma bàyyi ngay wax yàlla xam ne ne ka ma benn bëgg. et puis nag man eh ça man d'accord naa. seen ah ëmm seen combat la. ci kenn ci ci zone boobu. et foofu da nga war a dem jëli revanche. yaa ma la mooy la laa ci mhm. parce que du ñu bëri. parce que du ñu bëri. mais lu weesu loolu. ñoom ñëpp ak Ama. Ama waaw Ama am nattu la sarax la moom lu ne nga koy yekk waaye garaaw kon daal tafaati tafaatin booy ñaa ëmm seen. ñu ngay lim nii ñi ma lim ñoo eh, gën a jege de. booy ñaa loo ko ci tuddee na moom ba pare. waaw mais day jël day jël léegi balaa moo jël revanche nan wax ci ëmm seen tafaatin. waaw lamb ju neex la de ñoom ñaar baay taxawoon na te aussi di nuyu bàyyi. ndax <laughs> sama sama yan Aziz njabootam yi ma gis naa ñu ànd yëpp ñaan yëpp yàlla nañ ci yàlla yàlla jot ci ñi ko ñi ko ñi ko yàlla taxawu leen si yàlla la nit day bégal njabootam gis nga waaw bu la yàlla mayee teraanga mhm. bégalal sa njaboot yenn saay booy wàcc ngi indaale sërite dëgg la <laughs> ah, indaale pom nga noonu mais man aw ma benn décision bi may jël ñu <laughs> dama koy jëlal sama bopp man lépp lu may def mi Moussa Fall Andaw Pape Mama ñoom euh, baay Aziz ak Kor Ndiak maa ngi leen di baax a baax man ñooñu ñooy yaa yaa jël comme kilifa. yaa may dégg. suñ ñëwoon te wëlbatu nga dellu ginnaaw damay dellu ginnaaw. parce que peut-être man liñ ma liñ ma sant rek moom moom laa am ndigal pour defe ko. ça daa mel mais sa relation ak Balla Gaye lan la. ay ndey da ngeen rusante wala. ndey dañoo bokkul gang nag. da ngeen bokk gang bokkuñu gang. bokk leen gang bokkuñu gang yow moom bokku leen. yaa rek bokk bokkuñu gang. bokkuñu gang. parce que boo xoolee bu ñu mun nañ mun na yendu ci kër gi mais budul nuyoo rek après man maa ngi ci leneen. da ngeen di nuyoo rek. waaw dañuy nuyoo rek da nga ko rus. dañu waaw yàlla moo ñu rus waaw dañu rusante mais yenn saa rek dooma dañuy jël yëf yu. da ngeen di raak raak noonu raakuñu de. yenn saa ñu bëri mbedd. non di ngeen def def kër gi waaw loolu nag tàngal foofu ñàkk comme Modou Mbaye nga woo kuccal ko waaw xam nga mu yolee ko dem du mm. ñàkk mais daal da ngeen ruusal ma dëgg yàlla. parce que moo ak aussi sama beneen mag moo nekk Italie. moo nekk Italie waaw mooy sama taaw yaay. malal mais ñun benn lañ ah peut ñu ngi ci jàmm en fait ci li ma mën a wax. waaw ak li ma gëm te loolu moo mm-hmm. maa ngi ci jàmm ak moom maa ngi ci jàmm ak samay famille maa ngi ci jàmm ak sama doom baay yëpp. Mm-hmm. wax dëgg yàlla. Kanta nag aw ma benn problème ak moom franchement parler ku def sa bàmmeel. mais sànq da wax ni sa papa. yàlla na yàlla yërëm. dafa la doon wax ni euh, nit bu mu bàyyi ay mbokkam. Mm-hmm. par rapport ak Balla Gaye ak yow ak Casamance. Mm-hmm. est-ce que le lien mu ngi fa ba léegi. fi bàyyi woon li fi bàyyi woon est-ce que paa bi nu mu fi bàyyi woon. parce que Balla fii la toog moom fàtte na Casamance complètement. <laughs> waaw kay daa juum rek. man daa juum man mi man mi dox yow. parce que sama combat bii nii. def naa fa ay ay ay ay fani fan yi fan yi fan. Casamance waaw wala ay semaine te euh, li nga wax rek mooy dëgg ndax sam papa fa juddoo. saa wàcceel sa loxo bi. sam papa fa juddoo. waay fa la yaroo fa la màggee man mënuma laa nettali dara ci sama carrière papa mais moom moo ma daan nettali ci li ma gëm. parce que man sama papa danaa jël ay nit yoo xam ne mbokkam kese lañu sama papa danaa gis ni koo xamante ni moo sañ a taxaw ne man Bignona laa dëkk damaa ñëw fi awma fi kër barke Arxuraan mënal dugal. billaahi wallaahi wataalaahi suñu kër bëri woon nañu fa nekkoon danga naan moo leen jur xamuñu sax jur leen. moom dafa bëgg mbokk dafa fonk mbokk. waaw kafewu ko reetaanewu ko. dëgg la mais li nekk ci moom nekku ci ñun sa baab li mu xam xamuñu ko sa baab fu mun a dugg ñun ñu fa dugg te sa baab ma bàyyi xel ni chauffeur la woon te yoon boobu rek la leen jël di dawal. ñun lu ñu mën a am rek mooy comme caravane bi ñu daan def. di fa waaw di jéem a. jéem a xam lu ñu yokk waaw ci suñu dëkk. waaw donte ko loo mën a nekk ndam ci ñun. waaye maa ngi ñaan yàlla caravane yooyu na fekk jàmm ci biir Casamance ba bu ñu koy defati dañ koy def ci ci ci ci mbégte rek. Mhm. pour ñu xam ni seen doom yaa ngi nii saa ñu demee wuti. mais caravane yoo am solo la ah. solo te amoon na solo trop. man dem naa ci benn yoon Ziguinchor na taayeen. waaw am na bu ñu kii ak. mooy bi avion bi naree daanu yow. <laughs> te ngeen di jàppandu ne koy jàppandu ci avion bi <laughs> ah, mais daf c'était bien. parce que dama fa dem dama gis vraiment regroupement bi mbokk yi ñëw xarit ñëw ñëpp ñëw et puis vraiment mu dundalaat foofu. ah boobu boobu vraiment neexoon na trop baax na su le plan sportif et puis baax na fu mu ne Casamance et puis di dox jàmm mhm. parce que Casamance dafa di dëkk bu neex mhm. Casamance ñëpp ko bëgg Sénégal dëkk bi nu gën a bëgg mooy Casamance ndaxte dafa di dëkk boo xam ne dëkk culture la ah maa ngi nuyuwaale reen reen bu bi ñoo na reen maa ngi lay nuyu ak euh, roi yëpp maa ngi leen di nuyu waaw maa ngi leen nuyu ba ñooñu samay xarit lañu samay kóllëre lañu. waaw dama xarit waaw dama fay dem. ba da am foofu ay cumikaay. ah non mais man xam ngeen ni man dina laa ma ne ah, mais dama koy leen dama bëgg xam ne rek Casamance dëkk bu mag la fii ci Sénégal ba nga xamante mais sa papa bi ngay wax léegi bi muy bëree fekku la fi ñun la fi fekk sa papa bi muy ñëw ndakaaru xamuñu ko mais taayam moo tax ñu xam ko et mu ñëw mu nekk Fass nekk nekk naan ñoom Mbaye Guèye waaw parce que magam fa la dëkkoon. waaw parce que magam et puis magum mbéy la woon. comprendre sa papa ñëw si làmb ji régné sa papa dafa imposé wu. ma di la ko xamal dafa ñëw dugg ci mbapat yi bëri ci benn mbër rek la jël sa papa Robert Diouf la tudd. waaw ah, waaw père ah moo la jël sa papa à part moom ñi si des ñëpp dafa bëri ñoom daf leen a daan ku ko ci daan daan na la et puis doonoon un champion ba pare bëgg Sénégal. sol na verte jaune rouge bu dul benn ñaar génn dem bitim yu indi ndam <coughs> sa papa da daan bëri ji sur le plan international mu am ñaari médaille jël benn bi kenn ku mu àndal ko amul médaille mu na ko yow jëlal bi takkal bu nu demee ñu wax yow yaa yaa yaa jël booba tele yi melul ni nii <coughs> ay journaux rek la journaliste bi nu àndal mën naa noppi du wax dara def na ko man xam naa ci dara am na am na mbër bu mu ko defal man ma xam ko. dëgg la waaw parce que man dama xam lu bari ci làmb bu ma maanaam du ko les bëri na am ñaari médaille jël benn médaille bi takkal ko benn mbër bi ni ko bu ñu demee yow yaa gagné bii catégorie bii. Ah, man maa gagné catégorie bii. Double Less def na loolu. dëgg la non c'était un homme man nag du question dafa nekkoon sama xarit. man ndax kal bi saako bi. Ah. moo taxoon man ak moom lu ne lan doon waxante Double Less damay waxante mo yoo xam ne yéen du ngeen ko fekkee. waaw <laughs> danoo danoo nekkoon ay xarit yu baax a baax a baax. vraiment maa ngi koy ñaanal bu daan si mu ma yowee. Eh, ah del déglu bii waaw mën na ko bii may lan <laughs> mën na ko bii ak kee bokul mën <laughs> na ma saalifu waaw del déglu bii saalifu déglul bii mën na ko bii lu mu tudd <laughs> mën a bekaayu mën na ko bekaayu day reporté rek kañ dem wax wax xam benn jour ñoom ma yow oh yow yow waroon ngaa fekkee ma ne ko lan la mu ne ma yow bu fekkoon ñun ñu am milliard milliard yu bare bare mais ñii nga koy wutal xale ma ne ko nii lii mooy seen chance mais yéen lii yéen a ko liggéey mais dama la koy wax rek bëri na fi ay combat comme bi ngay wax léegi ci lucidité sa papa bi muy bëreeg Mbaye Guèye son premier combat lucidité moo tax mu gagné booba Mbaye Guèye comme kan ci mbër yi fii amul sax ku ma la ko mën a tëkkaleel ci popularité amul moo gënoon si siiw Ndakaaru gépp topp mbay Guèye mm-hmm. mais sa papa lucidité tey la ko daane. moo tax bu ngay wax léegi tey ah. comme popularité Tyson la amoon. waaye am Tyson bu ëpp mbay boobu Mbaye Guèye waaw comme bi Tyson xewee. parce que nee na ma nee na ma nee na Mbaye Guèye mos dox ba arrêté caravane. Senghor mm. Sandaga papaam ko njëkk a waxal. Mbaye Guèye dafa daan lundi mu dem Sandaga Senghor war a génn war a jaar boor boobu mais Seng gaa yi danoo jaaxle il a fallu ñu xool naka la ñuy def négocier. bu président rom pour te dire popularité boobu muy gàmm sa papa war a bëreeg moom lébu ndakaaru yi gàllaaji ndakaar lépp mbay géey mais sa papa bëreeg moom ànd ak fóodeeg farlaay ah ak ñeneen daan ko dama lay dama lay wax tuuti rek sa papa champion la moo tax ngeen war a góor góorgóorlu lu ngeen mën def ko yow loo mën def ko. incha allah mais nag dab sa papa yombul. non non mënul dama leen koy wax dab seen papa yombul. mënul nekk parce que beneen niveau la woon. mais daay euh, suñu daan toog mën a mën a bëri mën a bëri mën a waa léegi kaay mujjee toog nga may xeeblu ci domaine de làmb man ko am mënuma waa am boobu yi benn caab bu ndaw ñu ànd ci benn néeg loolu benn maal la mm-hmm. dénk na ma ko ay at bàyyi ci néeg ci la ma ne ibbil maal bi ma ibbi ci lépp ay médaille mhm. ak lépp ay médaille la manu may naa la nga jël benn takk ci saa yoo demee wutal ma yi diis bu la neexee nga ne maa la moom waaye ma si mu war te teg ak waa coolu yow garaa nga yow far mos naa naa lire benn yoon ñu ne convoqué nañ la équipe nationale mais vingt quatre heures nga am waaw bu dama feebaroon nag ah. ndox moom sax dem yàlla xam na ko boobu ñu préparé Omar sax ak Modou Lo VSA la woon. waaw fa la fekkoon. fa la fekkoon waaw. moom ak Tyson 2 ñoo bokkoon catégorie de poids. waaw man boobu dama feebaroon. kii looy dugguma dem mais boobu dañ ne CNG bu la convoqué demoo. dañ lay suspendre yow lay mm. da ngay dem ba xam da ngaa feebar. Mm. ok laa la àbb di dem. su ma demee contact su ma ñëwee di wàcc rek. waa ji dafa toog aar Makhari Thiam. as mooy grand grand daanaan yi jóge Sandaga mbéy ga xew. dama dama lay nettali ah. lees <laughs> a ngi toog ne waa ji gisul lees bu naan lees ah ma yeex muy dëkk béykat kii buñ ko jàppee wax wax ñàngal la ñàngal ñàngal ba gëtee jekki-jekki <laughs> te jeex <laughs> taxaw ci kanam mu ne ko loo wax yi mu ne ko kat man yaa ma gënal sama ndey gënal ma sama baay ndax lees lees a ngi jóg du jeex di jóg rek di jóg rek di jóg waaye di ko xool nu jóg mu ne ko yow da ngay moroomu béykat yi pour te dire comment était ton père mhm. ah noonu la nekk woon waa Ndakaar xam nga Ndakaar dañoo tàmm boo fi ñëwee mhm. ñu def la seen ngaakaar boolewu ci wax mu jàpp ñëpp daan. te dem na ba nekk ci bopp bi. man bu ma daan jox loxo nii dem na ba xam nga pëdd ak li ma mën a jur rek tout ça booy jëyee sama loxo téye ko. waaw da ngay xam ne kii moom moom moo ko. non boo gisee loxo bi. waaw moom moo ëpp doole. am yàq nag moo tax. waaw ah, téye ko nii man du ma bouger. am nga xaalis béykat yi sànq seen famille ñëpp ñu ah waaw dem seeti kii Pa Modou Mbaye le grand jox ma kii waay xam nga xam nga bii ça. Jamil wala. Nour laa waaw ah, Jamil Jamil. bi yaa ngi koy naan. ay Jamil Jamil ñoo dëkk <laughs> sa waay la. non mais Jamil xaritu mbër yëpp la. waa Jamil mais ah, mbër yëpp Balla Gaye ko ah parce que. Balla Gaye ko resonal. Mhm. te lii moom ñëpp la ciy jox ni naan. waaw nuru laa mooy bu baax bi. sama gars yi xoolal bii am na suukar mais am na sans sucre nag. bi buy la am na goyaab am na lépp nuru laa kenn dootu leen ko wax sax. karosol baa ngi noonu dafa am solo day faj ah nebedaay bi nag moom. moom never die la tudd ci anglais. du dee mooy du dee. ah du dee. naa dem seen dëkk. waaw naa dem dëkk ba never die nuuru laa. <laughs> never die. kii boo <coughs> EDK boo dem mi ngi fa gis ngeen mi ngi nii nuuru laa bi dee dee laa ci never die bi baax na trop. sensibiliser baax na am na goyaab waaw. ay eh, Jamil ñu koy nuyu bu baax nit ku baax la nag. ah keroog bi sama yaay jógee Màkk moo may sponsorisé. Nour la bu am nga question boobu bëgg laaj. Nour la bu bëri la ma wala. ci carré la booy man de li ma ko bëggoon laaj mooy ci. balaa ñoo kii alburax. li mu signé ak Eumeu Sène ak Tapha Tine amoo fa benn prox doll boo ci ci laa bokk aussi ah. ci nga kon dafa signé waale ak yow samay mag samay mag a fa nekk di tëgg xam nga tey problème adversaire. Mhm. du moo tax ma toog. Mhm. nekk ci li war a nekk. aussi tamit di ñaanal Youssou. diggante Mor Kankan. waaw Youssou yàlla may ko ndam. mooy le 20 waaw le maa ngay ñaanal Youssou aussi. mu ngi ci sport business de. mu ne yaa ngi ci sport business bi. non parce que gars yi dañ ko promettre lii la ah. non non non non mooy tasaante ma seen ku daan ñu doon. waaw cette cette famille la. moom moom moom la ñu. mu ngi ci sport business la bokk. waaw waaw su ma nee foofu laa bokk ci sport business bi. xam nga <laughs> xam nga li mu la promettre nan la Tapha Tine gis nga gis nga seen ku daan ñu jox la ko. gis nga Balla Gaye man aw ma problème boobu. non waxuma waxi problème booy bu ma wax waxi. man pare na man man aw ma problème boobu pare naa. ñoom pare nañu pour yow ku daan ñoom ñaar waaw loolu la pare ñoom ñoom mu nga ci waxtaan ak ñoom. mais waxtaan nga ci ak ñoom. man ab ñoo nee na ma naa bàyyi ba yëf yi tas. ba combat bi jeex lijjanti yi ah voilà kon kon leer na waaw ah, waaw nga di ko. ma ni Balla Gaye ah. c'est un grand champion. lu tax dafa am fu mu toll woon ah ñu naan du bëreeg diw du bëreek diw mu jox leen mu mu ne leen kaay leen. jox leen sens. xoolal bu muy bëreeg Tafatine. Mm-hmm. comprendre boobu su ko neexoon mu bañ a que nekk na roi des arènes. nekk na roi des arènes. mais Babacar boo xasee ba nekk doo roi des arènes. war ngaa dire voilà leneen loolu. déedéet mais boobu. boobu Tafatine non boobu Tafatine ñëpp ko fi bàyyi. waaw ñëpp ko fi bàyyi. Ah, attention parce que diggante moom. non ñëpp ko fi bàyyi parce que ñemewuñ ko woon. xool loolu laa la ba bari parce que mais su fekkee ni nag yow da nga toll fenn fu nga xam ni Elton bëri bu mitti commencé ko daw ak Abdou Diouf dafa foofu tamit Balla war a champion la ak Bombardier daan Bombardier wala après la daan Bombardier déedéet dafa bëri Bombardier ba pare ba pare doo ko bëri Balla Gaye doo ko bëri Balla Gaye Elton la bëri bëri Bombardier waaw xam nga xam nga xool xool xoolal tey xoolal combat yooyu c'est des combats épiques yu Tapha Tine def mais tey Sa Thiès ne veut pas emprunter la voie de Balla Gaye beneen bi mooy. pourtant euh, ay combat yu métti la dee ah. Sa Thiès. Sa Thiès pourtant combat ah non Sa Thiès ah, non waaye yow ñëpp a tey tey tey. Hmm. par exemple le franc bu mu war a bëreel wala Serigne Ndiaye wala keneen. Hmm. xam ni des gens de sa génération. Hmm. parce que Balla benn instant dafa def option de sa génération. donc kalaafa ko ci dugal. ak Tafatine boobu kalaaf la. non non non pas Tafatine. mais booy bi muy bëreeg général mooy maanaam kalaaf bi ñoom Issa Pouye ak consort boobu. mais ñi tey soo leen tëggoon kalaaf duñu duñu Ousmane Diop. ñooñu non as benn benn la ñuy def Balla Gaye moom li mu def ci làmb. Mm. du yomb mbëri def ko parce que dafa daan. Ah, génération daan ay magam. waaw ah, dafa daan ñi ko mag dafa daan daan ni mu tolloon daan ni mu tolloon daan ni mu def ci làmb moom wax dëgg yàlla wax waxi bombardier la ah franchement lan rek say rak bombardier say mag bërek say waaw waaw bombardier moom it vraiment waaw mais nag xam nga bu tombee woon mu nekk fa di bëri kay moromam rek heure bi doo ko dégg ci omet dina bëri ak am fu mu yem dem di yëg ci kaw xool lu mu leen lu mu yóotu te parce que man pour man làmb ñaar yi moom xaalise la ci dugal d'abord mhm. d'accord naa ko de Ah, waaw bien sûr. waaw mais am na xaalis boo xamante bi rek quoi. <laughs> baal ah, ma xaalis bu ma gën a business mais am na beneen xaalis bi ma gën a bëgg que boobu. boobu voilà. du dëgg. gis nga yenn saa yi. Euh, euh, nga dem tey mat Saalum wala. ne la projet un milliard a ngi waaye pour ren la. waaye boo toogee 3 mois 4 mois projet 10 milliards mi ngi foofu taxaw waaye ñaari benn nga ci jël di nga xaar ba jël bee mooy gën a. bu 3 mois. 3 mois bee gën te moo gën a sax ku mel ni man ku bëgg xaalis gi day daal di plongé ci man daal jël ci projet boobu rek. yow 3 bee la gën a la mais wax na la ci daa a fayeeku doo ko fayeeku mais yow leer na la ni am na adversaire yoo xam ni boo bëriwul ak ñoom saison bi saison ba ci topp da nga ñoom mais saison bi jeex na deux mois saison bi jeex na déwén non non non déwén noonu dama ci essai bu soobee une semaine moo ci des une semaine waa ah, saison bi. kay wasala. une moom wax laa la wax. Ah. dégg na la am na adversaire yoo xam ne moom yàgg yàgg da ngeen di daje. waaw mais ñu bu ñu waree daje ñu daje mais mënoo toog foo xamante ni. du soxla bu ne nga daje moom. bi ñuy mu jox koo ko jox day jël. <laughs> waaw fusion bi koo ko jox dégg koo ko jox mu bëri <laughs> te jom ak fulla ak fayda moo ko sonal tey jii. Mm-hmm. kookal la bàyyi ma njoon waay jom ak fulla ak fayda. Ah. moo ko sonal ba koo ko tegal mu jël. Hmm. su fekkee eh, mais mais kaay kaay nag bàyyi nag temps yi moom en temps yi moom doxul. xam nga man nan ma baalaat man man man dinaa génn ci làmb jël. <laughs> waaw gannaaw closeur foofu. <laughs> bi ko boy bi daan. jaay bàyyi deful benn réaction. non oh, oh, non seetaatal combat bi. benn benn benn kii bi nu mu tudd ko tuddee. hypercule waaw rokkos boobu. benn rokkos bi la bàyyi. non combat bi. war na ko nomba mu référendation génn c'est dans le combat bi waaw. c'est dans le combat bi dañ ko sax nga gis combat bi. boo ko amee teg ko. combat bi combat bi. Pape boo ko bu dee programme nga ko. c'est technique de. non bu baax. non bàyyi na. bu baax man man d'accord ma bàyyi bàyyi def sa déclaration. ah man d'accord non man d'accord mu bàyyi bien sûr. non man mais bàyyi wàññeeku naa. man d'accord la du bàyyi mais man waxuma ko bàyyi bëri bëri laa wax. non moom laay ñëw nii nii. voilà booy seet diggante Bébé Diène lam ko may. la ko waratoon a may. lam may Bébé Diène. lam may Bébé Diène parce que dafa may Bébé Diène ba mu jàpp. te du woon mm. yoon. non du ko dugg fu ko neex. waaw loolooy problème bi xam nga Bébé Diène loolu avantage am la. waaw que ba Bébé Diène bu ko bàyyoon di fetal benn benn bu Bébé Diène day maamu si sa tànk yi da koy mën a am mbaar mbaar mu jàpp ko loolooy problème bi mais même loxo bi mu war a utiliser utiliser xeexul. xeexul mais benn rokkos la. war a koor bi mu war a def mooy da ko war a jam benn benn benn benn. bu mais booy bi mayu ko loolu de attention de looloo tax. et booy bi mayu ko loolu mais yow yow yow bébé jën. Mhm. sooy seetaan ay combat am. Mhm. mais bébé jën souplesse souplesse ngeen am moom la am. Mhm. waaw non kenn wendu ko. comprendre nga kenn wendu ko tagit mu mu mu mu mu dugg avantage njool ak ndaama laa lay. waaw dama avantage njool ak ndaama. te xam naa ni bébé jën conseillé nañ ko ci mu bañ a xeex. waaw non loolu du avantage. comme naan parce que Bébé bu leen fàtte nii. Bébé Diène xeexul bii mooy deuxième combat bëre bi mu bëree baaxul. parce que Bébé Diène ak def na quatre prises. Hmm. c'est cinquième ba xaw ma quatrième ba mooy doog a baax. trois te te jàllale na ko ñaari yoon. waaw loolu tax ba ñu ko li ma dis ko ba baax na. te danger bi moo doon. parce que problème bi moom jàpp. waaw bu nekkoon andi doon dara première action ba lay jeexee. Mm-hmm. non indi na dara. andi bu baax. boo xoolee yaram bi sax dafa dafa dafa combat baa ngi nii xoolal voilà bii nga gis nga benn ngi noonu. ñaara ngi nii. gis nga te fii dem dem boo waroon fii da ko waroon wër ba na ci. daf ko ko may. wet bi jàpp la wet bi. doole aussi doole. da ciy feeñ fii ñett. waa la am na a ndomba mu dindaat. day day mais sans réaction la. Pape euh, yoon def. parce que fi ko booy bi yegg bu hmm. ndaama bu duggee si biir njool. mboobu mooy am avantage parce que chaque jour man su ma duggee si biir ndooma si biir njool du ma la may nga actionné de man maa actionné. mais Tidiane doole feeñ na fi tamit. non lu lépp non xale ah, moo gën a féete xale. ba pare moom moo maanaam moo gën a topp ci bëri parce que xam na ne avantage mooy jàpp li mu mën moom mooy dugg génn dugg génn. am na euh, fii njool njool tout réagir ni mu war a réagir daal. day bàyyi booy bi di manipuler lu mu ko neexee. non <laughs> parce que booy moo nekk si géem. moo nekk wax rek da ko li mu ko li mu ko war a li mu ko li mu ko war a xañ. moom moom moom la ko njëkk da ko manœuvrer de fii. da koy manœuvrer ba mu tëdd doon tànk yi ngeen ah. yaakaar ni jàpp na bu baax. non entraîné combat bi de. jàpp na de te ñoom ñoom liggéey na de. même bébé jën bëriwul lu baax de. bébé jën lim fi bëri liggéey na de. ah bébé bébé jën def li mu war a def def na ko. li mu war a def. waaw def na ko parce que moom wane na ne carrément man maa jàpp dugg naa ci biiram. Mm. ba jeex tàkk kon action sur action lay def monte du ma bàyyi mu seet bébé Diène mu def yëpp ay prise de risque la. waaw mais bu ko bëree keneen. parce que dem ba yegg suuf suñu nii. risque bu mag la parce que da nga gis muy gët waaw am na am na nu ñu la def rek nga nga toog mooy champion rek. Ndione man en fait d'accord mu bàyyi mu bàyyi. bien sûr mais d'accord naa mu def gàddaay. mu entraîné mu defar non mu gàddaay. bu gàddaayee temps mu jeex de da njoon sëriñ baa ko ñaanal fii la toog. waaw <laughs> ni ko demal géej def li ngay def chaque dimanche njoon léegi ko ba. waaw waaw. Espagne kese mi ngi dox ko ba lamb ko bëgg na gàddaay. lamb ñoom da ko bëgg. su ma doon moom damay gàddaay. et njoon ñëpp ko bëgg bu mu bàyyi de njoon bul bàyyi de xaw ma ñaata lan lay fay. bu bàyyi mais na gàddaay bon ah, balaa ñoo dem Modja lu ngeen ci wax Modja Modja ak Dame Sène Dame Sène Dame Sène. Mm. Mm. waaw seetaan moo ko. combat la waaw seetaan la seetaan la combat bu neex la. combat bu neex la macha allah. est-ce que yaakaar naa ne Dame dafa naagu woon. naagu na trop parce que booy seet ci signature contrat bi da ngay xam ne Dame dafa naagu. dafa naagu. ba pare dayoo ni mu joxe woon combat bi ak état de forme bi mu yoroon. bi mu yor que bi mu ñëwee si biir làmb ji. waaw dafa dafa gën a wàcc. yoratu ko dafa yoratu ko. ba pare dafa yaakaar ne tey jii si làmb ji ba bisimilah fur man maay mën si xeex foofu. waaw mais da ngay gis. est-ce que li mu ànd ak waa parcelle waaye da ko dominé cinq lutteurs parcelle trois yi quatre yi am ndam. est-ce que du loolu tamit. <coughs> non parce que kee da ko bàyyi ak làmb ji. <coughs> attention de. da ko bàyyiwoon ak ji. teelu ko bàyyi ak làmb ji. cest à daam lu mu waroon def ci làmb ji yëpp def na ko. il a dirigé mais ba baax na voilà il a le combat xeex bi baax na seulement euh, kii nu mu tudd le lutteur de Yoff la. Modja Modja c'est-à-dire ci deuxième en fait deuxième partie bi. il a utilisé son intelligence. waay dafa ñëw mel ni dafay sax ci xeex bi. Mhm. Ah oui donc boo la ko bett. comprendre voilà. dafay sax ci xeex bi loolu yaakaar ko woon ci da ko plaqué taf kay. voilà loolu yaakaar ko si la oh. <laughs> maanaam maanaam maanaam. daam daam seer mi ne tey jii nii bu àll bi subulee fër moo ko. dàq loolu laa la wax. dina ko def li ko def dàq ko ay coups. waaw te da koo dàq sax da koo demit da koo daa dem dàq ci ay coups. waay. loolu lay problème bi ba gis-gis bu ñu jàppante. mooy mooy ba mu blessé ba ñëw ba ñëw. cest à moom dafa dafa dafa ñëw pour xeex. daam jàpp ndijoor bii. jàpp ndijoor bii. nga mhm. mu ja. non xam nga jàpp ndijoor bi mu jàpp ci ngembali boo daan moo daan daan. non mais mais tam xam nga booy seet ba gis nga daam seen li mu xeexee bëree woo bi mu jàppante. xot hmm. nañ ko tegaat làmb ji léegi booy seet daam seen droite droite la teg. Hmm. moo jël droite la teg loolu lañ kaar koora kooree. waaw bi ñu jàppante dafa def changement pied. andi pied gauche bi pour andi hypercule. dafa jëli ah. beneen la ko booy jëli xoolal jàppante bi après gis nga fii ñoom ñaar ku ne droite la teg. gis nga ko ci biir xeex bi yëpp. moo tax xeex bi am. Euh, moo tax xeex bi jaarale waaye xoolal ñu jàppante gis nga ko. waaw moom mi ngi takk fee. waaw pour dama moom. waaw de pied boobu moo tax xaw a andi ko. naaru sogaas non as dama may foofu rek parce que man pour man si daam seen nekkul ni dafa naagu de dafa xamul Modou Dia moo tax dafa xamul Modou Dia moo tax mu bëri moom loolu mën na nekk tamit parce que ñoom ñaar ñoo dëkk non soo géej géej ñaar boo gis am na benn benn benn xam ko ci bëri ba bëri ba ci bëri bi laay wax bëri Modou Dia toll waaw parce que man laaj naa ko ko mi ne ma mi ne ma mi ne ma xaw ma kii mooy jamono ko ndax seetaan nga ko mi ne ma déedéet lijjantiwuma ko sax. ah bon waaw looloo tax. est-ce que loolu du waxu mbër. waxu mbër da koy wax rek waxu mbër mais parce que boo xoolee. xam nga bi bi ah. Modja demee ah. Ardo. dañuy visionné techniquement les ah. combats ba Ardo bi Modja demee Ardo ba ñëwaat. Papa Sow nee na ko bàyyil xeex bi tëgg bëri. boobu am na lu mu koy wax. waaw mais moom xoolal xoolul sax bëre bi xeex bi rek la gisoon. waaw parce que gaañ na ko mu yaakaar. waaw gaañ na ko mu yaakaar da koy doon. voilà c'est ça naaru sogaas naaru sogaas ak booy bi nu mu tudd. Liss Ndiago Liss Ndiago lu ngeen ci wax. man dama ne Ndaaru Sogas indiwu fa doole. non du ñàkk doole gi. lan la. risqué wu ëpp moo ko ëpp daal. ku risqué làmb ja naaru. naa lu mu risqué. dafa encaissé ko ba pare taxaw risqué. non risqué wul. non dafa risqué jël ko ba pare taxaw risqué moo déclenché moo déclenché xeex gis nga ko. xool leen moom moo déclenché mais xam moo ko andi si mais préparé na combat bi. moo déclenché moo déclenché xeex bi waaye da koo yóbbu mu taxaw mu fay par force. ba pare sax seen coup dafa jiwaloo. dafa jiwaloo lu naar di gaagaa moo booy bi jiwaloo nañu. te naar dafay dóor di sa di di gëm. di gëm dafay dóor di gëm. et gis naa fa yeneen booy. Tony Junior. waaw Talfa ak Talfa. Talfa ñaar ñooñu yaakaar naa ne ñoom tam war nañu xel. ñu ñu bàyyi leen xel daal. ak ak ak parce que Tony Junior laa gis mu daan booy bi jëli bi boo ko xool dafa yomb. boo ko dee xool. mais bëri la ko ci mais mais xel la. <laughs> xel la <laughs> xel maa rëy. te ki te ki mu daan ki mu daan baytiin. baytiin bokk na ci espoir u géej waaye. baytiin et puis non ah, da nga naan baytiin baytiin baytiin yi. ñaari baytiin yëpp ñoom ñëpp baax. moo tax ma ne ko ñu daan baytiin yi. baytiin yi dañoo mën a bëre. dañu mën a bëre. Ah, kenn ki ci Mor Fadam la ne. si kenn ki nekk Bawol Bawol Waalo Waalo. yaakaar naa ni yegg si noonu ah wala am ngeen. man li ma bëggoon laaj Sa rek. dafa amoon base dafa amoon benn base euh, yëmbal. Hmm. ku ne xam na ko digganteem ak Siteu bi mu ngi koy waaj moom boobu noonu doy maanaam lu doy waar loolu génn yëmbal. Hmm. parce que dem na benn instant boo xam te ne. yëmbal buun waaw yëmbal buun bi. mokk hmm. yi ñoo ko bokkoon euh, damay facture bi. tonnerre tonnerre ñoo ko bokkoon. moom bokkoon fu noonu say supporters ñoom ñoo ko waxoon bokk parce que même loolu bu doon génnee day drainer ful bu garaaw mais après dañoo gis mu daw foofu noonu gënul si yow nga téye fee ne téye fii nii. Mm-hmm. waaw boo xoolee nag xam nga dama dama ñaari famille. Mm-hmm. boo xoolee sama yaay. ñu ngi golf ñu ngi golf. waaw sama papa moo nekk buun. Mm-hmm. man góoru yaay laa dèjà ma wax dëgg <laughs> man fa laa jëkk fépp mais est-ce que xam nga li ma daan bëri yëpp damay fanaani golf. di xëy di leen kii jawaay mais maa boobu nag coow coowu làmb dafa saxoon trop trop trop. waaw te boo xoolee jamono jooju. ay tore ñoo fa nekkoon ko au niveau. Mhm. booy Sey. Mhm. Euh, Mbaye Gueye Junior. waaw. Mhm. yow bëriwul Boy Sey de. waaw. waaw waay. mais ñoom ñoo fa nekkoon comme mbër yoo xamante ni ñoom lañ gën a bàyyi xel. mais man tamit comme sama baab fu mu dëkk man faay dëkk. mais tellement que ba pare sama yaay bu mu tuxoo nag ci laa dañ séddale di partager ci laa jóge école de Balla Gaye parce que man fa laa njëkk a tàmbale. fa dem buun ñu créé école bi parce que ba ma fay nekk boobu créé wu ko. amul dëf amul dara man ak ñoo Ousseyn ngi ñoo fa nekkoon ak ay taalibe Père Bara boobu mi ngi créé beneen écurie euh, su ma juumul euh, Père Mansour la xaw ma écurie Père Mansour ah. ci lañ jël yenn gars yi ñu ne nañ toog waxtaan ñu jéem a nekk benn après ñu am ñu nangu am ñoo xam ne nanguwuñu mais ñu nangu nekk nañ benn ñu commencé bokk benn écurie ci lañ créé équipe école de Doubalès ci lañ fa nekk mais tellement que li ma naan bëri lu ci ëpp yenn saa yi su may physique ak yooyu. wala yenn saa yi dama naan sàcc dem géejawaay di contact ak pour mën a sàcc doole pour mën a. bu ma bëri sama adversaire mun maa yomb. Ah. man des fois yooyu laa doon partenaire bu nekk ci écurie bi bu la mën a kii amu fa woon quoi. non dem naa benn instant na dëgg yàlla il faut ma dem comme ñoom Balla Gaye ñoom la de ah. pour mun fa am. pour am contact bu baax contact boo xam mais comme ni ma la ko laajee. dafa amoon tas tas na tasul tasu nag la xam ne tasul. tasul baaba ah, ah, am nga question boo koy laaj. waa en fait comme euh, comme comme question kii la rek Tidiane. mais man lu may kii mooy est-ce que sa sa présence. ci écurie bi. cest yaa ngi dem écurie di contact beeg yooyu. waaw ah. est-ce que non xam na maa ngi di Balla Gaye waaw nekkatuma foofu. non non mën nga am say ñu bëri il nga dem. tamit non Balla la laaj yàgg dem école de Balla Gaye waaw kañ nañ fa jóg barki de parce que Youssou moom combat. yaa ngi entraîné ak boo quoi. si dañuy entraîné ak ñoom. Mm-hmm. parce que da mënoo am combat ñu lay jàppale boo amee com bu ñu amee combat nga toog seetal. Mm-hmm. ba léegi nag boo amee tey sax ñu mën nan laa seetal. parce que boo xoolee sama émission euh, sama ñaari interview yëpp yu barkaat démb suma juumul école ba la woon. lan fa nga ñu ngi foofu. ñu ne woon foofu. Ah, dafa am luy dal VIP quoi. waaw ah. c'est-à-dire suñu yeggee benn niveau bi rek. ok soo motul ñu déserté ñu déserté écurie bi. Mhm. bàyyi écurie bi. waaw ma ma jàpp ni lépp xel la rek ba jéem a jël xel bu nite bi jiital ko. Hmm. waaw xel bu nite bi mooy <laughs> xel bu nite bi mooy xam li la war nga def ko. waaw parce que am na loo xamante ni. lu ñëpp bokk la mais am na loo xamante ne bu la neexee na nga ne yow loolu yëfu baadool est ce que écurie boobu di ngay maye booy loxo ñu xamagul dara nga leen di jàppale entraînement. na ah, ça dépend que xam nga tey jii. dëgg yàlla tolloo boobu du chaque jour mën a dem. waaw mais diiran bi nga fay mën a dem bu ñu amee combat da ngay ànd ak ñoom bu ñu amul combat tamit mën nga pare di foog booy ndaw ndaw yi sax di bëre ak ñoom. Hmm. parce que loolu moo fi nekk boo amee li nga xamante ni moo nekk ci yow te nekkul mais jëm ko sol ci moom. mais est ce ngay dem beneen équipe di ngay dem fenn di entraîner du loolu non ma ñaari kii yooyu rek la yaat. ah oui. Hmm. ak ci gii. waaw waaw maa géej jege na ma. ak ji waaw ji ji ak ji waaw ji waaw ji olympique. ji dañu euh, Omar Omar jël teg ma ci loxo. ci loxo hmm. dëgg yàlla. benn soxna nga am man seetlu na ñuy entraîné na ma. benn soxna nga am. waaw benn soxna. benn tool. Ah? toolu ko. mais xalaatoo ñaareel la. pour ñemewoo ko <laughs> tey loolu na la. société yi. <laughs> sport business bi. waaw waaw amin amin amin sa jabar jabaru mbër la quoi. waaw. dëgg yàlla géré na ko ko waaw ku ma <laughs> déggal loo dëgg yàlla. nag mais euh, écurie bi laajul defaraat Sa Thiès. laajul. Balla Gaye écurie Balla defaraat. école ba. waaw Balla waaw Balla Gaye non non pas tellement wax wax yi ñoo tax rek mooy loolu mais barki démb bu fekkee yaa ngi seetaan internet bi. ñi naa naan ñoo doon coow di wax nii ci ci internet bi parce que alxuraan ñoom ñëpp si di fa la leen fekk billaay wallaay wa taala ku nekk sa bopp xool ndax jubóo na ñoom fils de Balla ak ñoom ñëpp li mu wax ay yuusu euh, ñu boobu yuusu yuusu lañ daan yuusu mooy préparé combat mhm. mais da fekk ñëpp ñu ngi woon foofu li mu ax mooy au niveau de organisation kii maanaam waxtaan bi xam nga boo xam nga Ndiaye kii naka Ndiaye kii nekk seen président xam nga nekkul woon la le président. kii Ndiaye. Moussa euh, Moussa Ndiaye Moussa Ndiaye moom vice kii la woon après président bi yooyu ñu war ko defar bi père Balla bi fi kii bàyyoo bàyyoo ko yàlla jël ko. père Balla tamit euh, Balla Gaye 1. est-ce que ba léegi am nga beneen coach yooyu parce que am na ay temps mu doon dégg kii coach bi nekkoon Parcelles Mbooloo nu mu tuddati leen euh, doon nañ négocier ak moom pour mu ñu foofu mais côté boobu la am nga quoi est-ce que staff bi. staff technique bi staff. Euh, man nag lu lu mën a xew Lamine Golo moom moom laa fa xam comme coach. Lamine yàgg na fa aussi. Hmm. bu dëgg yàlla yàgg na fa trop. man moom laa xam comme coach parce que gis ma fa kenn aussi. Hmm. mais quant à nag yenn coow li moom mën na nekk rek mais teewul boo mun. cherche jàmm nga yemale ko sa diggante ki nga jote <laughs> mais mu bañ a dugg ci écurie bi <laughs> ah, du waxu écurie bi waaw seytaane moo mën a tàggale ñaar ñooñu mm-hmm. boo duggee suñu écurie tas lépp mm-hmm. te nag ko dëgg yàlla war nañu éviter li yàq loolu parce que tamit moom laa rek bu ñu paree kii am problème ak kii kenn mun na génité ci économie bi fi jiitu la bokk tamit waaw ñu koy sóoraale non ñaari nit bu ñu jotee sax hmm? wa ñaari nit bu ñu jotee boo ci mënta wax lu rafet rek maanu mais damay bëgg bës ñëw génn wax ci loo xamante géej way laa na ni di wàlli bañee yooyu baaxul ah, Lac de Guiers nu mu daan def bu daanoo wala bu nu amee match niil wala mu ne sàcc nañ ko bokk jubbu mu lay yeewu rek kay ñu wër ko est-ce que tamit ah, Bécaye man la bañ Birahim Ndiaye nangam <laughs> géej way amel noonu liiru jaan noonu jaan côté pële. keneen jaar ne liiru moom ku eh. ko comprendre booy boobu ma wax moo daanu bëri. ndax moom moom bëggul kenn ku laal ay njaboot. bu sita bu sita bu sita waaye booy <laughs> réseau so xoola caméra lañ bëgg. est-ce que gisoo ne tamit est-ce gisoo ne seen seen seen seen ñàkk daje bi ngeen doon bi ngeen doon daje écrit nga xam ne dañu doon daje. waaw. ak léegi ni ngeen maanaam ni ngeen tasee kii jaar fi kii jaar fi bu leen gëjee gisee ko am combat capital ngeen daje est-ce que gisu leen loolu moom mooy andi gën a andi coow bi. waaw mais nag am na ñoo xamante ni damay ragal ñu doon benn nopp. waaw ñu ñëw ci Tijaan ni ko Saal bi moo la wax lii. waaw ñëw ci man na ma Tijaan la waxal lii. te moonte te ce que Tijaan moytu ko. exact waaw de am na ñoo xamante ni loolu loolu loolu doo nga seen. mooy seen àdduna. dañuy dem ci kii wax fa lee dem ci kii yóbbu fa lii léegi nag ñun bu ñu gàttee xel bu ñëwee li ñu njëkk def mooy ah, mooy tonte da ci jaar defuma waxuma te waxuma ko defuma ko mm. loolu la ñu war a njëkk a parce que mm-hmm. képp koy éviter yàqkat gëm naa ni problème yooyu sa doo ko am ndax kenn du sañee ñëw di wax mm. te yenn jotaay yëpp wax jokkalante ay ñëwoo sama ngénte eh, gëj gise bi la rek bàyyi wax ngénte <laughs> non gëj gise bi la rek léegi nag dafa amoon dafa amoon koo xam ne moo la wax noonu waaw na ko yàlla yërëm xaaral <laughs> jaral mu jël ay deux millions dem jënd ko lekk teranga waaw teg dajale ñëpp daaw da sekk daa jënd crédit comme ci woo jotu la càccag lay wër na dama jëlil ma diw baa nga yem yeeku parce que ñun dañu doon seet a jàmm suñu diggante. Mm-hmm. mais yooyu nag moo fi li ñu woo mais daaw de nekkatu fi. Eh, mm-hmm. Pape Mama chaque jour mënul xëy. góor a gérer ma la nag war a def loolu. Mm. c'est waaw man keroog wax moo war a wut. gis nga yooyu may dégg des fois. Mm-hmm. mu un million. jën togg añ bu mat gaa yi ñëw leen ñëpp toog parce que moom la bàyyi bàyyi bàyyi baa la joxoon kayit bi. moom moo mën a dajale équipe bi. dajale leen ñëpp fii toog leen. ñu toog waxtaan gindeeku. Mm-hmm. bu beneen yoon Balla defal loolu. nanga def loolu génneel. li ngay dem di des fois nga kii nga social. nga social ko foofu nga génne un dem jënd nag jënd lépp ñu togg añ reer ñu waxtaan. loolu mooy defar groupe. da ngeen di dem ba miinante. Mm-hmm. yu bari dafay kii. man maa la xelal boobu dégg nga xelalal naa ko ñeneen ñi tamit mm. ñi nga xamante ni ñoom it duñ koy def <laughs> yooyu day gën a suude relation mm. dafay suude relation dafa baax quoi dafay te moom xol bu baax laa ma non la xool oh, man sama xarit xaw ma moom benn affaire mais damay wax sama dëgg rek damay wax sama dëgg de xol bu baax la yore de sa kar moom la ko moom laa la wax maa leen peut-être mag ñi ñoo war a woo xale yi ñu toog ñu waxtaan mm-hmm. ndax gis nga bu ñu bu ñu bàyyul di gëj a toog di waxtaan suñu biir gëj a gisee bi la rek. jàmm na am chaque mais dañuy gëj a gisee. oui oui entraînement ñu gisee. waaw école yoo xam ne ci nekk. yaa fay mi day xam fi muy bëre. maa adversaire ma dem yoon kenn ma dem na ko suulal ma foofu. waaw mais kooku tamit bu fekkee daa bëgg làmbam day déplacé wu dem seet. leneen pour nga entraîner pour nekk ci jàmm. mais jàngoro boobu nekkul nekkul kese équipe équipe équipe mag yëpp jàngoro bi la ñu. jàngoro bi la la moo tax ma ne ne ci ñëpp. ñi may wax benn benn si soo fa demee kenn du fa entraîné. ah baax na soo fa demoon entraînement doo fekk kenn. doo fekk kenn ñoom ñëpp a nga sa géej nga jàmbaarati li. écurie yëpp am jàngoro bi. il faut ñooy ñooy xam loolu di dajee di waxtaan boo gisee équipe football yi mën leen ñoom noonu dañuy def de. ah def regroupement dajale ñëpp ñëpp toog dirigeant yi toog ñu waxtaan toog lekk lekk dafay dafay dundal diggante relation. parce que ñun dañu bëgg yàpp ak ah, ah sama gis-gis sama gis-gis foofu mooy dama ne man réeroo rek moo am. ñàkk waxtaan. ñàkk waxtaan. réeroo amul. réeroo amul. ñàkk waxtaan ñàkk waxtaan <laughs> mais bu waxtaan amee déggoo mën naa am. déggoo mën naa am waaw sa bàyyee ko mooy li ma wax euh, bërki démb Balla Gaye rek. ma ne ko accident ci biiri mbokk. Mm-hmm. xel mu sell moo koy constaté. Mm-hmm. parce que nit mere la ci ñëwoo ci sama xew loolu ci fenn mm-hmm. waaw. maanaam nit ki daf la bëgg ba. waaw bu sañoon bu xewlee. nga teew nga teew et puis da nga koy sagal. loolu la mais du dara pour nga ñëw sagal ko rek da nga koy sagal rek wàññiwul dara loolu réeroo la rek. mais bu ñu waxtaanee déggoo mën naa man daal dama naa ah, ni question principale bi mooy si eh, athlète jubóole naa yéen ñëpp benn ah, ngeen. voilà et puis eh, Lamine Lamine Lamine Lamine Golo. ak Balla bu ma leen dee dégg damay tiit sax. eh moom te ñoom ñaar ay waay la noonu. ay gaañ lañu koy ay waay la ñu koy keroog ñoom ñoo ñoroon mbalakante foofu ci école bi. ah benn loolu sa borom benn samay fils la. li nga li nga wax. parce que kii moo ko war a def. moo war a génne. ci aw kii lekk na avance kii amagul avance. un million woo gars yi. <laughs> Ah, moom mi lekkul quatre avance man ngay quatre avance. dem mu jënd nag bu mag. waaw su ko demee naa ko naa ko ma ñaan ko un million wala ma lewoon un million woo écrit bi yëpp ñu toog ñu waxtaan <laughs> bon waaw mooy suñu kilifa nag ah mooy suñu kilifa mooy kilifa gi moom la Baye Balla joxoon kayit <laughs> bi mais dangay ah waa aj mais yow plus simple waa kay bien sûr waaw ñu ab surtout di lu ci laal kay xanaa aj bi kay waaw comme li euh, frappe bi ñoom ñu ngi continué ba le 27 waaw mais seet bi moom boo xamuma pour quelle raison mais xam naa nag kenn ñëwtul bàyyi moom ils ont dégradé le treize boobu jeex na ñoom ñoo mujjee tëgg donc boo xoolee adressé nga dafa am euh, dix huit journée gaal gi am treize euh, arène nationale am trois euh, Iba Mar am benn xam nga Iba Mar moom benn du deux deux amoon. Mhm. le premier bi Jax dafa tëgg lendemain Fallou Ndiaye tëgg rek si la am problème boobu. waaw Ibou Afia beeg yooyu. depuis loolu kenn kiiwaatu fa. mu nekk trente cinq journée soixante neuf millions la ñu si investir. adressé nga 18 millions gaal gi 27 millions 500 arène nationale 21 millions Iba Mar Diop 2 millions 500. donc si promoteurs yi euh, avec huit huit journées donc su moo tëgg vingt quatre pour cent des journées yëpp Jax moo ko tëgg trente quatre pour cent des cachets aussi moo ko génne. Jax vingt trois millions waaw. li mu journée bi yëpp vingt trois millions la donc boo xoolee si woykat yi aussi mbay ak soixante six pour cent des galas moom moo ko woy mooy saa yi boo jëlee trois euh, galas yi nga def ko ñetti pàcc. ñaari pàcc yu ne mbay moo ko tëgg. moo ko tëgg tam jéem laaj gars yi promoteur rek amateur yi lu ko war a ak yooyu. boobu yan woykat yi nga jël mais jël ci sa ci tëggkat yi moom moo. voilà waaw moom ñoom nag dañoo a amul ku ci am yenn. assemblée ku ëppale ñëppay ñëw kii Palo Kafal. mais est-ce que moom moo ëppale woon. moom moo ëppale mais du comme ni mbay ak. ni feeñee ci woykat yi déedéet du feeñe noonu. Hmm. moo tax kiiw ma ko trop boo beneen bi mooy doublé yi ñu ko def. Euh, ëbbali moo moo njëkk a doublé gaal gi. Hmm. Euh, quatrième cinquième journée Euh, kële euh, ngañ seen doublé gaal gi douzième treizième journée euh, Doudou Sané doublé arène nationale première ak deuxième journée donc grosso modo loolu mooy bilan bi quoi. mais bilan bi boole nga ci les dix millions yi. waaw waaw mooy vingt et un millions yi. mooy vingt et un dafa amoon dix millions am six millions am cinq. benn 10 millions rek moo am. waaw benn 10 millions ak 6 millions ak 5. bu ñu dee xool kan mooy le meilleur de l'année. si mbër. Ah. si si mbër. en en en lutte simple. waaw lutte simple. man dama naan ordinateur la. ordinateur waaw si. incontestablement. mais sax xam nga ne ordinateur. dafa mënul turam ordinateur ordinateur laa gis mu bëree. ordinateur ordinateur il est super intelligent. Mm-hmm. waaw. ordinateur moo lay daan ba pare te te du la laal. ah non demi final ba na mu bëree. laa xam ni kii xel mi rëy na. mën na et puis bëri bu ma daawul gis laa gis léegi ci tànk. dalay dalay lonk. dalay di teg ay dam yi <laughs> ci suuf non il est super. nga gis ko nga nga daal il est super. non non ah, kii tamit il est à remercier hmm. ko. Ah, vraiment. waaw mën na am ci moom waxuma la lutte simple. Hmm. mais lutte avec frappe. waaw bu ci góorgóorloo. mu ngi ñëw mën na bokk ci les meilleurs lutteurs. waaw moom tamit maa ngi ko ci encouragé gis naa ni vraiment mi ngi ci évoluer quoi ah kon euh, mais semaine bi fan moo ban dëkk moo tëj dëkk Palmarin Palmarin euh, Zambro TV moo fa tëj ñetti nag Palmarin da ngay jéggi dex gi da ngay jéggi géej loolu <laughs> Palmarin doo doo doo yéggi ji jéggi géej doo doo doo yéggi ji fer sax ji fer ah, <laughs> parce que bu dee da ngay ñoojoor ngay yéggi ñoojoor ngay waa ñoojoor nun def waa ñu ngi fi ñoom waa ñoojoor maa ngi leen di nuyu bu baax <laughs> dinaa fa géej nag parce que dafa am jéggi géej kay waaw loolu daal moo fi de. waaw donc kon kon di am mbégte. Ah, di la gërëma ah. waaw ci liggéey bi. Mm-hmm. vraiment di la gis naa sa émission ki démb. waaw ak ordinateur non. Tony Tony. ak ak Ngaye ak Ngaye Tony ak ak ak ah ak nu mu tudd Ganja Fama. Ganja Fama. ah kan la. nga gàññe faaw moo nekkoon sama droite. Tony moo wala non waxuma bii beneen bi. ah bële bële moo ñëw. waaw bi boobu laa a waaw et puis di la ci féliciter di la encourager. ngi préparé benn émission moom tam. Mm-hmm. ci droit wu làmb. texte yi quoi texte yi. lu teg ko ci yoon. day am solo loolu lañ ci bëgg. si ah, Tidiane am na benn émission bu muy préparé. si moom tam ci làmb technique ak yooyu. Mm-hmm. ah Sa ma abonné ci ñoom ñaar. Ah. <laughs> ma abonné foofu kon. ah man nag doo doo doo abonné ci. li li sëñ laa def. li ma li ma defee nii a yéen a ko <laughs> eh, ma bu dee da ngeen may sottal du ma ñëw ah. waaw <laughs> da kaa ñu ma di lim di lim ba ay lim far bu dee da ngeen may sottal du ma ñëw faram ne fi am nga sax. tey xoolal yoon bi yëpp yàlla ma tardé. non faram ñu ko yàlla defal ko jàmm. waaw ah, waroon na. néew nag wala amul oto bu mag ay mboto yii antanu ko de. kanti faram moom. <laughs> mi ngi noonu. bàyyi baal la waaw euh, kon kàddu bu mujj ah, xanaa santaat yàlla bu baax a baax di jégalu bu baax a baax ci kàddu yi ndax. maanaam di wax ci plateau yombul léeg-léeg nga wax loo xamante ni neexul nit ki parce que supporters yi moom ñoom bu nu sañoon li leen di neex rek nga leen di wax. waaw ah barki démb affronté naa guy gi laaj ko digganteem ak bébé Diène mais guy gi xaw na maa kii Diène ci micro bi. ñoom maag micro bi la boole rek daw seey génn énervé mais mu xëy journaliste yëpp di ko woo pour ñëw jël si ko pour mettre ma à mal ak guy gi ndeke ñi nga xamante ni ñoom nga bokkal géew bi ñooy say pire ennemi waaw ah, pour dem jëli guy gi rek ñu wax mais def leen ndànk ngeen teey bu ngeen bëggee buzz ngeen koy wuti dem liggéeyi liggéey dafa am yoon liggéey dafa am noo koy defee mais yow balaa ngaa mën a liggéey rek mooy nga fekk ñaar ñoo xamante ni danoo jotee nga yor sa micro boo demee ci kii jox ko micro dem ci kee jox micro yaakaar ni loolu mooy ñoŋal sa liggéey loolu daf lay tardeel soo bëggee jëm ca kanam da ngay liggéey ndax le bienfait n'est jamais perdu chaque jour ma wax leen ko. Mhm. waaw dafa am lu war a liggéeyee liggéey maanaam liggéey bi dafa war a am éthique ak déontologie nga bàyyi ñi nga xamante ni dañoo boo mënta wax ci ñaar ñi jotee lu jàmm fexe noo leen boole nga maanu ci seen diggante. Mhm. mais xoolal man CNG bi ni ma leen gisee ñu jàppante nii ci làmb gisuma ko ci kenn loo leen mën a waxal nag ñoom ñëpp benn lañ. ànd na benn lañuy wax danoo ànd. mais journaliste reporter <laughs> promoteur mbër waaw bàyyi ma waay fii li fi ne lépp kenn mënu ko wax maa ngi félicité jàmbaar production ci journée bi ñu jógee ah di félicité bu baax a baax jam production di leen wax ne rek incha allah ñu xaar ñu ak la Bantamba TV dimanche eh, bàyyi bàyyi balaa ngaa tëj ah. làmb ji waroon am dimanche suba mhm. te waa CNG ni du am waaw yow loo ci mooy lamb lamb ji lamb Tawfekh production. waaw waaw. parce que ma li ma wax. information bi ma am. promoteur bi amul licence. Mm-hmm. waaye li ma ci jaaxal promoteur tëgg na fi ñaari journée. Mm-hmm. xaw bu fu mu jaar ban kalama ñangaan la jaar ba tëgg. waaw tëgg na fi ñaari journée nag fële stade Ngalandou Diouf. Ngalandou Diouf benn bi ñun ñoo ko def direct. waaw beneen bi am na beneen télé bu ko def. waaw direct. bu suba bi nag xaw ma leen yan raison moo tax ñu ne leen du am. du intervenir wala. waaw mun naa ci intervenir ayca bisimilah. en fait euh, man ci information yu ma am mooy que euh, gala boobu ñu doon prévoir Tëngéej. Mhm. ki ko bëggoon tëgg amul licence su promoteur. waaw. voilà waaw ah. donc gala boobu mënul am. mais yow naka nga gisee mu tëggoon yeneen journée te amul licence. non man pour man du moom moo tëggoon yeneen journée. parce que man lu ma lu ma lu ma lu ma mës a recevoir ci ñu tëggoon euh, tëngéej c'est euh, nu mu tuddati euh, le promoteur la Baol Assane Assane Ndiaye Assane Ndiaye waaw moo doon tëgg moo tëgg xam ñu def xam naa ñu déggoo bon déggoo xam nga déggoo <laughs> déggoo avant Assane Ndiaye di tëgg fekk na Tawfekh tëgg na ñaari journée yooyu ba pare journée Assane Ndiaye bi ak journée yooyu bokkul de ah, ah bokk déedéet de kon Tawfekh moo fa tëgg ay journée te amul licence hmm. xam naa ni kon am na licence bu mu tëggee làmb ci que cela soit clair parce que mënoo bañ a am licence di tëgg di tëgg mais mënoo tëgg clandestinement non non clandestinement moom mënul am ah lu tax fekk leen ngeen a ngi amitié rek ma tëgg sama benn làmb fële non mënul mënul am xanaa xamuloo cest à su fekkee dañuy répondre rek ci ci ci règle làmb cest di amul benn manifestation de lutte bu am au Sénégal bu am au Sénégal te CRG bi yëgu ko. Mhm. wala CNG yëgu ko. sinon su amee CNG mën na wax léegi le préfet. Mhm. na ñun ñu arrêté ko. kon waa ji amul licence. CNG bañ na. PA amul licence. Bécaye man li ma ci yokk xam lan la. Ah. nan la CNG war a def ba topp ko la moo tax mu dëgg ñaari combat ñaari grand combat. ah non ci ñëw. waaw ah, mais mais mën naa ne. parce que parce que amoon parce que yoroon na licence bu muy tëggee ay combat. mais bu suba bi nag CNG daf ko waroon sauver dimbali ko rek bàyyi ko mu dëgg parce que ay millions la ci def. jàppale ko. wàññi wàññi wàññiwu leen dara sauver bés bi rek parce que bu dul dara sax mbër yi nga xamante ni dañoo bokk ci journée bi nekk ay xale ah. yoo xamante ni dañoo teg lu ne non mais xam nga xam nga c'est une manifestation événement da nga ciy dem di ci am njort bu rafet xamoo luy am ci événement bi événement bu nga xam ni ay papiers yu légal mooy tax nga am service d'ordre moo tax ñu envoyé la des superviseur moo tax ñu envoyé la ay arbitres ah moo tax ñu envoyé sapeur soo ko amul wax dëgg yàlla mënoo tëgg la voilà man bi may intervenir intervenir tey man intervenir naa du ma ko nëbb intervenir naa pour régler le problème mais CNG loolu lan ma wax fii ñu toll nii ana ay alkaateem ana arbitre bay dem ana te loolu lépp dañoo war a toog réunion ñëpp def ko tey le vendredi waa ji amul licence waa ji demoon na ba ni moom jaral na ko mu jënd licence bu ñu ko joxee un un million mu jënd ko tey mais CNG à 16 heures mënut a mënut a régler mun ko régler loolu léegi beneen yoon ñu ngi lay ñaan yow promoteur bi nga góorgóorlu rek beneen yoon nga xool booy tëgg làmb nga xam fan nga jëm. loolu daf ci am solo. noonu la et puis làmb moom macha allah làmb ñëpp war na noo xam ne daal làmb moom dañ koy war di teg ci yoon. comme ñun fii la ñuy toog ku ko tegul ci yoon ñu wax ko. kon nag vraiment war nañ ko di teg ci am na. loo ah, ci nee na nee na làmb ji mercredi lay am arène nationale. mercredi lay am ah, arène nationale. incha allah kon balaa boobu waaj dinañ régler situation. bi. waaw ah, kon léegi mi ah. ngi noonu làmb ji waroon am démb ëllëg. seen mhm. tënge Rufisque léegi mercredi lay am arène nationale d'après information yi nu fi jot léegi. Mhm. loolu lañ ci wax kon yàlla na yàlla def loolu mën a nam. Tijaan waaw di sant yàlla mujj bi di sant yàlla rek. yow tam ñu ngi lay gërëm ah technicien. <laughs> moo defoon ni sama mbër ba quoi. <laughs> mais xoolal yàlla moo ma des fois daanu siiw. waaw loolu dëgg la. waaw loolu dëgg la yow ki nga daan keroog. Eh. moo la gën a siiw. waaw loolu dëgg ba nga ko daanee <laughs> bi mu jeexee. Jaguar moo gën a siiw Tidiane. Mm. te jëli waaw papa booy jënde papa booy jënde ki ko daan. Mm. kenn xam ko. kenn du wax ci wax waxam papa booy jënde papa booy jënde léegi nee na tuddatul noonu jagar jagar la <laughs> léegi. majj majj majj majj comme li wax dama ñëw si Jaguar rek. parce que ah? xam na ne ku ne xam na mi ngi ci tolof tolof. tolof tolof yu métti dañ koy ñaanal rek sama collègue la woon yàlla dem na tey jii ni dem na uute lu mu am ànd ci njabootam moo ko yóbbuwoon. waaw kon ndog la mu fekk ko ci ndogal fekk ko fa. dañ koy ñaanal suñu borom tegge ko loolu. yàlla man ba mu ñëpp si ak si jàmm. amiin bu weesoo loolu tamit dañuy dañuy nuyu ki nga xam ne moo ñu defal lii rek buy Pape Faye ndax daf ne ma waajal comme tey la. ouverture bi wala du baax yaa non du baax kii kii kii nag Singane la Singane Couture la. Singane kii Singane la. ah Singane moo génn fii rek. moo tax ah. nee na ma waajal safar gi nii comme day soog utu ji tey. Ah. ñu ñaan rek ñu waaj ci dem si jàmm màggal gi. ñoo si jàmm di ñaanal ñëpp jàmm. amiin di ñaanal kilifa gi mun Muntaxa di ñaanal suma sëriñ mu yàgg fi loolu te wér waaw di ñaanal suma sëriñ rek sëñ Abbas ibnu sëriñ Bass ànd nañu indi borom daaru ñaanal ko suñu borom yàgg fi baax di nuyu waa Tiwaawan Lamsaar yëpp bu baax baax a baax di nuyu sama waa dëkk waa Jiloor yëpp di nuy sama mbokk séeréer foogale séeréer mi Tijaan fay naa si noonu Njokaan noonu njàll paax la yàgg nu ko doon ah. <laughs> sama doom day bokk alxuraan bandirabe foofu <laughs> pare <laughs> moo ñu ne yàlla Balla waaw yaa ngi nuyu sa mbokk alxuraan mu ne ah, foofu ah, dafa am sama benn rakk bu ma bokkal koñ bu naan mooma doomu dëkk bi mooy boobu eh? moom doomu dëkk bi. waaw Pikine gépp ko xam. lu mu def booy bu baax la nit ku yaru koo xamante ni ci social rek la doon dox. ci biir ginnaaw raay <coughs> dañ ko arrêté woon nag avant manifestation yi parce que dañu ji dañ ko jiinoon ne dafa dafa dem dajale ay booy pour ñu dem yàqi teer bi. te hmm. yëpp man gëm naa ne ay sos yu ñu. ah Ah? bul dugg foofu. non du man ñaanal ko. non dama waaw man maanaam ah, dama lay defaral laa bokk waaw yow lay defaral. maanaam kon boobu eh, kon baal la. kon temps yi gars yi dañuy jëliwaate. non waaw ma ñaanal ko. <laughs> bul ah, maanaam kon li ma bëgg a wax. <laughs> non kon li ma bëgg a wax. waaw mooy li ma bëgg wax mooy. ma ñaanal ko quoi parce que dama ko xam. sama rakk bu baax na maanaam dafa am na école boo xamante ni problème mu imprimante lañ amoon. mu réglé ko moom moo ko réglé. yàlla ko yàlla taxaw waaye ak yeneen ak yeneen te dafa nekk jeune boo xamante ni. xale bu am ambition la. nekk am avenir <laughs> ah waaw man daal li may ñaan. Ah, yàlla na ko yàlla teg yàlla ko yàlla dimbali. teggil ko di ñaan autorité yi ñu jàppale ko te yàlla. baal ko parce que xale la. wallahi al azim te ku am avenir la. waaw loolu rek laa mën a wax. waaw na na na nañ ma baal nag ci kàddu boobu. waaw man it am naa xale boo xam ne Macky Ba la tudd. Mm. nga Grand Dakar ñaar la nu sax ak keneen ki nga xam ne Ndiaye. Moussa. Moussa Gueye. ñoom tamit ci mbir yi la leen kenn nga sa turandoo Macky Macky Sall président de la république ñu ngi leen di ñaanal. ñu ñaanal ak sama benn rakk bu na leen yàlla dimbali ko bàyyi leen ñu delluwaat seen kër. Mm. genn wàll gépp ay innocent la noo ko yoo xam ne xamul sax du géej gi di wéer loolu rek. waaye nag droit ba duñ ci dugg mm. waaye ñoom yàlla na leen yàlla taxaw ñu ngi ñaan nguur gi xale yooyu ñu ci jàpp ñu doon ay innocent xamuñu lu xew ñii mm. dañ doon jàngi ñii dañ doon seetaan ñii xamuñu lu géej gi di riir ñu jàpp leen dugg leen ci kaso musuñoo dugg sax kaso mm-hmm. ah leen ni ñaanal yàlla def ñu bàyyi leen ci jàmm ak salaam loolu daal lañ leen ñaan ah yow euh, waa waa waaw xam nga yow d'entrée rek da nga def plaidoyer pour la jeunesse. pour la jeunesse voilà. voilà c'est-à-dire euh, on peut pas terminer l'émission comme ku si nekk su waxee rek da ngay gis ni am na si benn jeune bu dëkk mm-hmm. sa koñ bu ñu jàpp c'est-à-dire nom de ce de cette jeunesse la mm-hmm. ah nañu état bi. le président de la république. xool ci ndawam jox leen une seconde chance. waay les libérer ñu ñëw seen. famille ñëw seen quartier. parce que les gens souffrent. ñu ngi souffrir de cette séparation. waay waay xam nga même su fekkee ni tooñ nañu déjà liñ liñ fa nekk yedd na leen. te suñu dellu see si koñ bi dina am ñeneen ñu leen yedd. ñu jël mm-hmm. relais bi. donc dootuñu ko def dootuñu ko def. dootuñu ko def donc vraiment. ñun ñëpp ñu ngi def appel pour que prison yi ñu fa nekk. surtout les jeunes. les jeunes surtout les jeunes. ah monsieur le président de la république vraiment nga def grâce. grâce ñu bàyyi leen. ñu bàyyi leen. vraiment ñu dellu seen njaboot. il le président de tout voilà beneen beneen beneen beneen bi mooy bon si cadre émission bi je pense bien que vraiment euh, soo xoolee les nos invités là surtout les espoirs. Mm-hmm. c'est-à-dire ñoom dafa am ay chemin yu ñu teg seen bopp quoi c'est-à-dire benn ligne plan de carrière bu ñu bu ñu bu ñu teg c'est vrai cest ñun en fait pourquoi yenn saa yi ñuy ñuy xaw a insister ci benn kii dañu bëgg ñaari ñaari kii yëpp ñu koy jël quoi c'est-à-dire nit ñi c'est vrai am nga droit def sa plan de carrière ni man fii laa jëm xam nga mais dañ pour orientation bi nag jëriñ làmb moo tax souvent ñu naan xool leen aussi seen génération mm. cest à tey le débat bu ñu seqoon ak yow moom la ñu seqoon ak franc mais toujours da ngay gis ni. waaw waaw waaw ñoom seen option. vraiment fi ñuy xool waaw fu ñuy xool foofu rek la xool. ci kanam la rek waaw ci kanam rek. waaw accord <laughs> d' accord nañ si kanam la. mais nañu soraale aussi. que vraiment euh, lamb ji dafa am benn phénomène bu nga xam ni. cest à dafa da da léegi euh, dañuy gaaw a dabante quoi. waaw dañuy dañuy gaaw a dabante. te loolu suñ ko capitaliser ci làmb defe naa mooy ëpp profit ci ci mbër yi. Mhm. ci troisième point bi mooy aussi surtout sa plaidoyer yi par rapport aux anciens couloirs waaw euh, état bi prise en bu ñu waroon am si ñoom suivi bi. xam nga euh, euh, Sa Thiès révélé na benn benn secret fii fu mu nekk nii. Mhm. y a un trésor chez lui. waay xam ni day médaille de son papa. mais monument la war a mais ça c' est c'est-à-dire la il faut que. monument am benn musée musée des arènes. xam nga musée des arènes parce que soo demee kër kër kër Mbaye Guèye di nga ko fa fekk. soo demee kër léegi dañ yooyu yëpp yooyu yëpp mu ngi nekk ci kër mbëri. Pape Diop soo demee kër Robert Diouf di nga fekk. soo demee kër feneen di nga fekk comprendre donc non, il faut nag benn musée des arènes. il faut ñu wax ak ñoo pour vraiment nit ñi xam ni làmb am na ñu ko yoroon tey su yeggee fii am na ñu xam ni ñoo yàgg sàngoo drapeau Sénégal. xam nga ñafe. pour làmb ji yegg fii pour làmb ji yegg fii. te noonu nga ko waxee ci làmb ji. noonu la amee ci basket bi. noonu la ay musée yu bëree ngi ci biir Sénégal. ay yu bëri yu nu war a yóbbu musée ñi ngi fii. ay doomu Sénégal gañu ko. mais mënuñu koo yóbbu. vraiment. te loolu dafa di yoon. boo demee kër Duba lees la fa nekk rek lu war a nekk musée ba bari na. wala nga wax Aziz Aziz mu réfléchir si loolu quoi. kër nekk mu réfléchir si musée. Omar Diouane xoolal li fi nekk si ay médailles. waaw xoolal Omar Diouane ay médailles rek. voilà Omar Diallo son koy wàññee. wàññil son bi yebit nag basa yi ngay def yi affaire séeréer yi may waxatee ngi nii encore njom njom njom bantamba lay def nii bantamba njom njom lay def ah, xam nga kii mi ngi may won koo xamante ni ay vingt médailles la yor ah. ah waaw mi ngi nii xoolal moom it médaille am yi médaille yi kenn mënu ko ah. compter Omar Diouane waaw ah bëri na de Isabelle Isabelle Sambou Isabelle Sambou c'est médaille yu nu mën a yu nu mën a garder bu baax saa gërëm jërëjëf waaw gërëm nañ la. Mm. ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla sàmm la. yàlla taxaw la yàlla jàppale la. ci li nekk ci sa carrière. kaddu bu mucc bi lan la. waaw balaa moom bàyyil ma ma kii ñaari kaddu ci moom waaw. kii moom ci li mu waxoon ci début bi loolu lay waxat. di ko ñaanal moom fi mu teg tànkam bu mu ko fa teggi mm-hmm. si yar bi si teggin bi si communication bi c'est important. Mm-hmm. te ni mu waxee si entraînement yi naan bëriwul ay mbër yu def loolu muy di ko ci teg tout le temps. Mm-hmm. mbër da nga war di entraîné foo toll di waajal xam ne contrat du la du yooyu loolu am na solo ba pare nag di ko wax ne ko effectivement d' accord naa entièrement que nit da ko war man pour man Sa Thiès France c' est dans deux ou trois ans bu doon combat boo xam ne comme ni Sa Thiès rek. et trois ans bari waaw non euh, France il est un ou deux combats pour pour egsi. pour egsi waaw loolu laa jàpp le temps nag kii tamit ñam si ñi fi ne VIP soog a dem. xaar ko fa moom tam mu am deux victoires non parce que douze douze combats douze victoires la am. xool ngeen seen ñoom actuellement. waaw ñaata temps lañu def ci arène bi. waaw 14 ans déjà. voilà c'est te te 14 ans. xam nga. ku def 14 soo xoolee déedéet kii la 2009. kii 14 ans. waaw il est presque à l'apogée. oui. comprendre. Mm-hmm. te soo xoolee statistique lu mu lay wax nii statistique la. Mm-hmm. à vingt ans de carrière. yaa ngi ci. déclin yaa ngi ci déclin il reste six ans. mais Babacar waaw mais six ans yi aussi. Babacar daa am loo xam ne il faut ah, six ans yi soo xoolee soo xoolee la moyenne. du jeex waay la moyenne de de de ces combats. par rapport ci euh, kii euh, quatorze ans yi. waaw ah tu as tu as vu. waaw bon loolu beneen discussion la. du jeex du jeex mais ñu nga léegi si nii. Ah. actuellement nii VIP yi. fii ak deux ans si kanam di nga gis bu waay bi wàññeeku. yow fii am na am na ñu xam ne VIP dafa manqué si kaw. comme Sa Thiès bu bañee day bëre kii mbaa dafa. ñii ñooy doon VIP dans un an fii ak kii fekk ko si kaw. ci waaw dañuy bëre. ayca waaw loolu la parce que dama ne boo xoolee le cadre rek rek daan na fi Gris taxul mu am VIP. da da daan na fi Elton. taxul mu daan VIP. ah bi muy daan Gris 2 nag Gris 2 jege VIP. boobu waaw mais je veux dire je veux dire man li ma bëgg a wax mooy. mu ngi ci yoon. ndax gis nga douze combats douze victoire boobu yorul lancé boo boo génnee Yékini génnee Modou Lo amul keneen ku ko def douze combats douze victoire kon mu mu ngi ci yoon. bokkal la mm-hmm. loolu combat la fii ak un an. ah waaw et pour man waaw di santaat yàlla baax ah. Mm-hmm. di profité aussi bu ñu fi waxee lenn lu débordé rek ñu ngi jéggalu xam ni xel matul su ma tee xam ci yàlla la mm-hmm. man damay dellu di santaat rek yéen ñëpp. waaw ñaan yàlla aussi yàlla yàggal leen fi yàlla taxawal leen aussi ba lépp li ngeen yóot ci lu baax yàlla suñu borom sedd leen ko di profité ci ñi nga xam ne ñoo ñu jàppalee ñoom la ñu am muy Pape Mam Andaw Moussa Fall Baye Ndiaye Koor Ndiak euh, dafa la di gërëm aussi tamit euh, ñoom <laughs> sama gars yi may àndal commissaire Bira Euh, te à propos de commissaire am na beneen mbër bu tudd commissaire bu gaañu woon fan yële ba gars yi jaawale ko. Sococim Sococim Sococim Sococim laay wax te yéen amu leen Sococim. Ah, si si am ngeen Sococim ah te beneen Sococim moo gaañu waaw Sococim boobu gaañu woon sama goro la nekkoon na lan sama goro la moom moo gaañoon bokkul ak may koy wax nit ñi quoi bokkul ak Sococim bi ànd ak. aussi euh, du nuyu Assane bees. maa ngi koy sant étudiant mu ngi fi laajte ba léegi si sànq rek ñuy déggante ah. waaw di gërëm aussi waa waay yëpp waa Casamance Gambie teg ko ci loxo Sadio euh, ak euh, suñu fan club bi fa nekk yëpp mu ngi Sakho famille yi xam nga Balla famille yi Sa famille yi maa ngi sant ñëpp nag fépp foo xamante ni nit ak ñuy toog ñu seetaan aussi ñu ngi sant ñëpp di gërëm suma yaay bu baax a baax a baax a baax di ko ah, ñaan yàlla guddal fanam yàlla na ko fi yàlla bàyyi waaw amiin bu fekkee suñu njëriñ loolu gën a fekkee suñu njëriñ amiin di nuyu sama soxna ak buri euh, awa njaboot gu sew gi mhm. sama samay pale ñaar lañu <laughs> aussi di nuyu sama doom baay yëpp di tàmbal teg ko ci loxo malal xam kooku moo war a njëkk a bëre la <laughs> moo ñu sut ñu na heure bii waroon nañu taxaw Alassane sa doom baay la bokk Malassane Sakho waaw mooy waa Kasoor yi. waaw ñoom ñoom Badou. dégg ñoom ñoo ñoo nekk fii ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax. rawatina suñu yaay ak suñu tànt yi nga xamante ni tey bu famille bi neexee ñoom la di ñaanal suñu waajur yàlla bàyyi ko fa mu nekk ñoom njagalaadum ñoom ñëpp maa ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax aussi tamit xëy na gërëm autorités yi ñu jàppale woon wax dëgg yàlla ndax ku lim juum mais autorité yëpp Kédiawaay yëpp. Mhm. ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant. aussi itam di ñaan yàlla jàmm ci réew mi ku lim rek da ngay juum mm. mais maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp baa Géejawaay Kër Masaar buun sama kër papa imital tooy tooy maa ngi lay nuyu mais maa ngi nuyu aussi tamit Khadija di nuyu aussi tamit euh, famille bi samay xarit yeeg sama xale yi suñu booyi koñ yëpp xam naa ni guddi na aussi saa ñu ngi lay gërëm ñun tamit ñu ngi gërëm mbokku téléspectateurs yi tey fii lañ leen indiloon doon waxtaan ak yéen bëgg nañ ko àjjuma bu jot bu dee neex na yàlla ñu toog waxtaan ak yéen ci sport bi nga xamante ni bokk na ci suñu cosaan ndaxte li muy xumbu xumb sport bi. nuy wàllu ma Tafanaara ak Ahmed. Tafanaar waaw Tafanaar Ahmed Saada. sama waay la waaw ñoom moom damay na sonal ci combat. voilà non Tafanaar nit ku ah, baax ñoo loolu mais xel xaju fi daal. waaw yàlla Tafanaar moom ah. Ahmed Ahmed promoteur la. ah Tafanaar. Ahmed mooy ah, promoteur ah Ahmed mooy promoteur. Tafanaar jëf yi jàppale ci bëri. ah d'accord. et tafaa nga nuyul nu Anta Ngom Anta Papa Ngom nga nuyul nu ko bu baax moom it dégg naa bëgg na laaj baatu réew mi <laughs> loolu la jigéen ñi jóg leen ay da mbooj ak mimeek yéen ñëpp jóg leen ku bëgg laaj baatu réew mi jóg leen ay jigéen ngeen te il faut jigéen ñi am baat ci réew mi baat bu raw bi ngeen am ni ko Hélène di xeexee ak euh, Fatou Sow faat Sarr xaw ma Fatou Sow Sarr ni ñu koy xeexee guddi ak bëccëg yéen réew mi da ngeen cee bokk dangeen ngeen cee bokk. ñoom madame Penda Mbow ak penn ba waa moom yàgg na xeex moom mi ngi noonu jóg leen ngeen xeex pour jigéen ñi ñu jot gëddëm ba war dafa jot bés pale ba ñu ne ko fi fanaan ñu ne jigéenu fi fanaan ci ngeen bokk ci ngeen bokk mu ngi leen di encouragé takk leen musóor gi bu baax te liggéey xeex pour la démocratie te noonu ngeen dëkkee ñu ngi leen di gërëm nag di gërëm euh, mbokk yëpp di ñaan jàmm yéen ñiy dugg ci waajal dugg ci élection yi ñu ñaanal leen jàmm yéen ñëpp ngeen am doole te li ngeen xalaat li ngeen bëgg yàlla na doon njëglaayu réew mi ah et nag yàlla indi juboo nag ñu bàyyi lépp ñu ànd ñu defar réew mi réew réew mi tubaab yi dañoo am yaakaar gis nañu tubaab yi Afrique moo leen yor ñoom Niger la. per deneen réew boo dem. baal ma nga nuyul ma Mbaye Touré. maam bay Touré balaa boo demee da lay. xam naa ne namm naa ko waaye moom bu ñëwee. Ah. <laughs> dinaa la boole moom. Ah. te xam naa di nga fa sawar a dem. nga ni ma Boy Touré. booy bul def comme ñeneen ñi de ay franc yooyu. fii la ñu ñëw Boy Touré moom. mention spéciale. fii la franc ñëw am ko ma boole gisuma ko. fa ah nu mu tuddati kii ma la wax nii nekku fi. <laughs> kii mais ñaanal ma ko mu dellu ñaanal ma dellu ci jàmm. kon dellu si ci jàmm ak salaam ak famille ñëpp jibiloo aussi di jaale noobul papaam dafa gaañu parce que ñun foofu la ñuy toog ci ginnaaw. dëgg la waaw di jiital aussi ñëpp jërëjëf. jërëjëf saa daa am fu ma ne woon maa ngi ne woon ci Afrique. <laughs> yaa réew yi dafa am tubaab yi dañ noon nax bëgg lekk suñu yëf juboo leen Afrique juboo leen gis nga Sénégal juboo leen yéen politique yi. Mm. doon leen benn tas leen seen parti yéen ñëpp ngeen doon benn defar réew mi bu ngeen ko defee réew mi dina nekk ci jàmm waaye élection te réew mi jagul. xale yi xiif te ku nekk wàll ba nga féete am nga xalaat bu mën a defar réew yéen ñëpp parti yëpp am ngeen xalaat bu mën a defar réew ànd leen bokk ndey bokk bàyyi defar réew mi waaye bu ko nekk yaakaar ne bu dul man du baax du baax ba mukk yàlla na yàlla def ci réew mi jàmm yàlla na ñëpp gën a juboo ñu ngi nii ñu ngi dugg ci safaar gi nan ci ñaan xaadimu rasul bàyyi na fi loo xamante ni mën naa yor réew yàlla xam na ko buñ ko deferee rek yor réew mi këpp foo ci dem buñ jógee léegi màggal ñu nga jëm gàmm dëkk bi kër goo dugg ña ngay gàmm boo demee Tiwaawan alaaji Maalik ga fa ñëwoon gis nga la mu fa def nga dugg kër gi mu dendal kër Cheikh bu nga ñëw fii ci Yoff bàyyi laay nga dem Kaolack nga dem Ndar nga dem Louga nga dem Ceneba googu ñu dendal feneen fu ma limu kër maam Cheikh Omar Foutiyou Tall réew mi li mu am ci richesse boo dàq fuuf ay jamaa ak i or bu la neexee alpulaat la léegi nga xas fi joolaa wala séeréer loolu am na réew yoo xam ne boo ko fi defee guerre civile ngay indi ñun li nu yore moo dàq pétrole ak or ak jamaa nanu ànd nanu bokk ndey nanu bokk bàyyi bàyyi leen politique bi ngeen di xeexe alaaji Abdou Aziz waxoon na ko keroog ban tëralee Lamine Gueye nanu bàyyi politique bi nuy xeexee nanu bàyyi politique bi nuy xeexee moo xam nga moom moo xam moomoo moo xam nga jiitu nekk opposition nga nekk pouvoir wala nga nekk opposition yooyu nan ko ba opposition mu opposé pouvoir mu diriger waaye nanu am yërmande xoolaat leen xale yaa ngi lab ci géej gi di dee xale yi faatu semaine bu jot semaine ba la ña nga woon wookaam ba ca topp ñu ne kayaar ba ca topp ñu ne fële ba ca topp ñu ne fële tey ñu ne faas booy bu ginnaaw subaa ñu ne caaro yi bu ginnaaw tefes gi mooy son ah nan xoolaat gaal yoo xamante ne ni mënul napp sax ñaari jën nga dugal ci téeméeri nit bëgg leen a yóbbu ba barsàq loolu rafetul loolu rafetul et puis ñooñu ministre de l'intérieur Antoine jógal nga lijjanti boobu problème nanu aar géej gi soldaar yi jóg ñu aar géej gi xale yi bañ a tee dem réew mi day neex de dans quinze ans de yéen a ko moom nag du mag ñi mag ñi nga xam ne am na nu soixante soixante dix an boo mënu loolu yéen ñi am vingt ans quinze ans dix huit ans yéen a moom loolu bu or bu ja bu pétrole bi ñëwee ak gaz bi yéen a koy jëriñoo yéen a koy jëriñoo de kon muñ leen patienté leen dina neex Ablaye mu waxoon na ko billaahi daa aéroport la su gaa yi dem mu ne leen xool leen lii rek àll bii bépp ay tabax lay doon <laughs> boobu boobu booba Ndakaaroo ngi yem liberté 1 wala liberté li ci des yëpp gée géejëway sax amul woykat la woykat mu ne xool leen lii rek àll bi bépp ay tabax lay doon te xool ko tey almaadi cité biyaa gi yooyu yëpp loolu loolu moo lay won ni nit ñi am nañ vision man nag maa leen ko wax dans quinze ans réew mi day neex bu leen duggati ci gaal yi toog leen muñ leen nguur gi ñii bu nu muñee na ngeen leen wutal lu nu def former leen réew moo xam dafa jëm ci développement danañ former xale yi wutal leen yoon wu nu jaar ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp yi yëpp bëgg mu baax a tax ñu wax ko bëgg mu baax rek wutuñu ci dara bëgg mu baax rek Babacar jërëjëf Baye Balla Abu jërëjëf Tidiane ñu ngi gërëm techniciens yi caméraman yi ah ñu ngi gërëm Sa Thiès di ko ñaanal jàmm ak moroom mi mbërëm yéen ñëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm des nu tuuti 500 millions la ñuy fay. formaan damaa romb ni ma cim damaa teel a juddu xale yaa ngi fayeeku xale yaa ngi fayeeku cinquante oh teel naa judd waaye gis nga ñoom Sa Thiès ñi léegi ñu réccu léegi ñu ne danoo teel a judd dans dix ans lamb ci cinq cent millions la ñuy fayeeku man maa leen ko wax. est-ce que Double Less du ñëwaat. <laughs> ñëppay ñëppay. borom maa ngi lay nuyu. <laughs> ñëppay ñëwaat dans quinze ans dix ans quinze ans cinq cent mille la ni cinq cent millions la ñuy fay ci làmb ji. loolu na ngeen ko xam yàlla na yàlla defal leen jàmm defal ñëpp jàmm defal réew mi jàmm jërë ngeen jëf ci jàkkaarloo bi jërëjëf mbokk yi